voor Merci d'être avec nous ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média on va se retrouver dans quelques instants pour quartier général en attendant bienvenue ci before quartier général before bi mooy laata euh, quartier général di tàmbali ça c'est déjà make-up quoi voilà la c'est la meilleure de sa génération c'est la maquilleuse des stars donc regardez c'est elle qui me maquille regardez comment elle me maquille ah allez maquille-moi mais mbaa du ba faare xam nga démb traité nga cas bi. ay tey maa ngi xaar ba nga traité beneen cas. <laughs> non balaa may faare yow defal ma l'essentiel après nga bàyyi ma ak téléspectateurs yi donc yéen ñii seetaan ñu ngi leen di béggee fu ñu toll parce que yéen a fidèle euh, ci quartier général premier rendez-vous infotainment bu ñu leen di jagleel ci télévision Futur Média évidemment première télé euh, fii ci euh, Sénégal li may njëkk a def mooy fàttaliwaat leen seen ay suukaru koor oui presque chaque soir li may gën a wax mooy suukaru koor yi ñuy maye c'est normal jamono neexul moo tax at bu jot depuis neuf ans ñu leen di jox ay enveloppe yoo xamante ni ndimbal lay doon pour weeru koor gi li ñuy def rek mooy ibbi téléphone yëpp avec la complicité euh, des équipes euh, techniques ñu jël leen kenn par kenn ak fu ngeen mën mënti nekk gis ngeen enveloppe yi ñu teg ci suuf benn bu ci nekk def na montant bu duun boo xam ni ku woote léegi buñ ko ko joxee xol bi dina sedd imaginez chaque soir un million loolu télévision Futur Média rek moo ko mën xam naa nag li may def ci before bi mooy njëkk leen euh, jox Euh, lii ma tuddee téléservice bi bokk na ci naafila bis bi euh, bokk na ci taux de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalis yeneen dëkk yi bokk na ci itam li météo prévoir ci wàllu jaww ji muy météo guddi gi euh, donc demain suba la dimanche donc ñu ngi toll daanaka ci période boo xamante ni yenn saa yi mu tàng yenn saa yi mu sedd donc baax na ñu leen di jox thermomètre bi li mu wax température yeeg ñoom seen ci dëkk yëpp loolu itam dañ leen koy baaxee léegi nii euh, ci euh, première partie bi li nga xamante ni moom laa tuddee bi Bifor quartier général bu ca kanamee président Pape Djibril Fall mooy nekk suñu invité y aura beaucoup de surprises yu ñu leen fa yéenee jagleel man ak ñi ma nar a àndal euh, tey ci samedi soir bi ci télévision Futur Média waaye li ñuy njëkkee mooy jël leen jox leen seen ay sukkaru koor kan wala ñan ñoo nar a njëkk séddu tey ci enveloppe yi démb joxe naa mille yu bëri chose ay mille kese laa bëgg a joxe deux cent mille deux cent mille deux cent mille mille premier mille bi deuxième deux cent mille bi troisième deux cent mille bi ak yeneen deux cent mille yi Abdourahmane Gueye mu ngi may xool xoolu sama wàll ci deux cent mille yi doo laal dara doo laal dara Abdourahmane en tout cas yéen ñi seetaan 88 le 628 65 cinq wala 88 628 20 20 ak it 88 628 22 22 donc pendant que ngeen di woote mën nañ ci profiter quand même pour gagner du temps jox leen d'abord xibaaru jaww ji lan la météo prévoir suba ça c'est mon petit balai ah balai là balai <laughs> balai <laughs> Youssou Ndour Wally Seck balai <laughs> Youssou Ndour Wally Seck balai <laughs> non je blague il faut nga expliquer ma information Kémi Seba dégg naa taal na passeport ba naa dégg naa dem na ca borom alal ba fayee ko fa xaalis bu bëri conseré leen seen mariage ba yi xew ci dëkk bi bëri na on en parle tout à l'heure parce que souvent ak koor gi on n'a pas le temps de bàyyi xel euh, ci euh, li xew comme actualité donc regardez carte baa ngi nii ci lañuy ñuy sukkandiku pour xam euh, thermomètre bi suba lan la prévoir donc suba ci suba Dakar dina yeewoo ak 19 degré Thiès dina yeewoo ak degré Diourbel dina yeewoo ak 23 degré Fatick 23 Kaolack 24 degré Sédhiou dina xëy température yi toll ci 22 degré Ziguinchor même chose 22 degré Kolda 24 degrés Kédougou 26 degrés Matam 22 Louga 20 degrés Saint-Louis dina xëy ak température yu toll ci 20 degrés bu ñu demee nag ba ci après midi bi euh, thermomètre bi mën na yéeg daanaka ba quarante 44 euh, ba 43 jàpp 44 degrés ba sax 45 degrés boori Kaolack. voilà Kaolack dëkku euh, dëkku dëkku dëkku dëkku dëkku kan Kaolack dëkku kan moo dëkk Kaolack sax ah Amy Mané non Amy Mané amul njëriñ da koy tudd ci Kaolack tudd la defal bàyyi ma tudd rek Modou Ndiaye Rahma ah, moo am njëriñ Rahma moo am njëriñ non non non Pape Samba bàyyil noonu bàyyil noonu bàyyil ma tudd rek sama xarit bi ah Modou Ndiaye Rahma Modou Ndiaye moo dëkk Kaolack président Serigne Boub moo dëkk Kaolack Cheikh Abdourahmane Ndaw moo dëkk Kaolack bàyyi ma tudd ñu am njëriñ mais ay ami maane rakk Pape Diouf ban njëriñ la ma amal. vraiment moo Modou Ndiaye rax ma dëkkam suba dina yéen doog température yi toll ci quarante cinq degré Kaolack ñi fa dëkk bëri paa leel maa leel ah ak euh, nu mu tuddati waaye sama xarit bi waaye sama xarit bi ma bokkal yaay rek waaye yow xam nga sama xarit bi ma bokkal yaay mais amul njëriñ heureusement ba ma fàtte tur bi donc Kaolack suba euh, daañu yéen doog température yu toll ci quarante cinq degré quarante quatre degré Fatick Fatick dëkku kan la encore kan moo dëkk Fatick. mais président Macky Sall fa la dëkk Matar ba foofu la dëkk quand même donc Fatick daañu température yu toll ci 44 degré Diou Diourbel dina yendoog 44 degré Thiès euh, dina yendoog température yu toll ci 37 degré euh, Dakar dina yendoog température yu toll ci 26 degré Louga 43 degré Saint-Louis 39 degré Matam 44 degré Tambacounda Tambacounda dëkku Sidi Diop quand même ah. moom seen dëkk dina yéen doog température yu toll ci 44 degré Kédougou 45 Kolda 43 degré ñu won leen waxtu mare yi marée haute marée basse euh, souvent da ngeen daan dégg ñi présenté météo naan la mer sera peu agitée à agitée sur l'axe nord ñun nag du ñu àgg foofu yëpp dañ leen koy expliquer de façon terre à terre pour vous permettre de mieux comprendre actualité météo donc Euh, marée haute bu njëkk bi météo ko prévoir une heure six du matin euh, bi ci topp daañu ko am bu treize heures trente et une jotee waxtu marée basse yi bu njëkk bi météo ko prévoir bu six heures cinquante neuf jotee marée basse bi ci topp daañu ko am euh, bu dix neuf heures trente huit jotee waxtu yi nga xamante ni moo war a wala nar gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi waxtu yu njëkk yi mën nañu leen ko baaxee normalement si on les a bu fekkee amuñu waxtu meilleur moment pour la pêche c'est pas grave l'essentiel mooy jant bi dina xëy xëy suba bu 7 heures 17 du matin jotee nar a tëddi euh, guddi gi euh, boori ndogu exactement bu 19 heures 19 jotee. ñu ngi gërëm bu baax waa service national météo guddi gu jot ñoom ñoo ñuy baaxee euh, li nga xamee ni mooy xibaaru jaww ji ci première partie bi ma tuddee before quartier général laata quartier général puisque QG c'est dans quelques instants et puis taux de change bi ci topp normalement mais quand même Apulaay baaxee nañu waxtu julli bon taux de change bi. Apoulaye nit laa aussi quoi du ma robot ah quand même ah s'il te plaît monsieur le maire Pathé tu es le meilleur sa ay neex na <laughs> <laughs> Pathé Ba ñu ngi koy gërëm moom tamit bu baax ak équipe bi mu àndal euh, ci service commercial bu télévision Futur Média lu ngeen fi gis rek ci lu baax ci wàllu commercial moom la Pathé donc Pathé merci euh, pour ce travail magnifique euh, nga koy def fii ci télévision Futur Média donc fajar nañ ko julli 6 heures du matin suba dinañ ko julli 6 heures 15 tisbaar 14 heures 15 takkusaan 17 heures timis 19 heures 28 gee daañ ko julli 20 heures 28 ñu won leen taux de change bi bu ngeen bëggee wecc CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi pendant que may def téléservice bi n'hésitez surtout pas ku dugg léegi nii ñu jox ko enveloppe bu toll ci deux cent mille voilà ay deux cent mille yu bëri laa bëgg joxe mën naa tàmbale joxe euh, léegi nii bu dee am na ay téléspectateurs yu nekk ci ligne bi 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 88 676 05 05 bëgg naa nag bu ngeen ndogootee ba noppi ngeen digalee seen ndogu ak canette bi tudd original duma ci sori original la tudd man moom laay naan man forme bu ngeen gis ma am rek original bii di orange moom laay naan donc pendant que euh, may diigal man tamit ñu wan leen de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi un dollar ñoo ngi koy weccee six cent deux virgule cinq cent quatre vingt un franc CFA un euro ñoo ngi koy weccee six cent cinquante cinq virgule neuf cent cinquante sept franc CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee sept cent soixante euh, un yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee quatre vingt trois virgule sept mille sept cent trois franc CFA un dirham di xaalisu Maroc. ñoo ngi koy weccee cinquante neuf virgule neuf cent quinze francs CFA wan dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee huit virgule huit cent soixante cinq francs CFA naafila bis bi xam naa ci kanam tuuti dinañu ko baaxee oustaz Modou Fall bu ko defee mu euh, euh, gindi ñu ci. original moom laay naan canette bi noonu la tudd ma petite Malouche ma petite Chouquette. mais Mado ngi rafet ba je touche du bois macha allah elle fait partie de l'équipe de ce soir kan moo nara wala ñan ñoo nar a séddu ci enveloppe yu njëkk yi gaaw leen ma teel leen a dugal teel leena teral bu ko defee bu ma noppee ci parti boobu ñu daal di dugg nag ci waxtaan bi tey président Pape Djibril Fall mooy nekk suñu invité y aura beaucoup de surprises yu ñu leen fas yéenee jagleel tey ci quartier général bi 88 628 22 22 allo allo allo allo allo allo. allo. kooku. Aminata Sall. Aminata Sall na nga def yow Aminata Sall. ça va bien. am naa sama yaay bu tudd Ami Sall dafa baax yaa ngi fàttaliku sens interdit bi doon daw seen TV. waaw mën naa ne de. loolu fàtte nga ko de moom tam Ami Sall la tudd sama yaay la elle est adorable. dëgg la dëgg la waaw na nga def Aminata Sall. ça va sant bu baax. Ami Sall yaa ngi woote fan. Sacré naka waa Sacré Cœur. ñëpp a ngi fan ci Sacré nga dëkkee. Sacré Cœur 3 wetu boulangerie jaune. Sacré que wetu boulangerie jaune. ah côté boulangerie jaune. yow sori woo ak euh, foofu waaye nu mu tudd fi may jëndee téléphone yi rek Kabirex. yow sori woo Kabirex de. non non non non. du xam nga Kabirex. waaw dinaa koy romb. koy romb foofu foofu yu baax lay jaay mon ami Bokar il est là-bas alors dama lay dama lay jox léegi nii sa suukaru koor. waaw. Ami Sall quartier général may na la suukaru koor bu toll ci deux cent mille. merci beaucoup. cent mille deux cent mille. jërëjëf cent mille ci Korité jour J moins vingt cinq. ah <laughs> na ba jeex na deux cent mille yaa ko moom dégg nga. waaw maa ngi la ko yónnee léegi ci sa téléphone portable. waaw waaw merci d'avoir appelé Ami. merci. allez bu amaatee beneen téléspectateur ñu jël ko léegi nii 88 628 22 22 numéro bi ngeen di gis ci suuf itam numéro bu baax bi la gis ngeen bu ngeen diigalee seen ndogu yi. ak canette bi tudd original am naa fi itam ndox boo xamee ni moom la bisu njaay naan c'est désaltérant xaw ma c'est désaltérant maanaam ndox la bu oyof xam nga am na ay ndox yoo xam ni da ngeen koy naan seen biiri fees ngeen gàllu goose wala ngeen bilimbaane bii nag da nga koy naan nekk nekk nekk nekk nit daal voilà ndox la moo xamee ni day toqal ci sa xol bi neex-neex ndox mi nag kayaar la tudd c'est disponible partout dans les boutiques dans les grandes surfaces mado ak fraîcheur am xam ngeen ni saa yu ndogoo ndox bi lay naan kayaar yenn saa yi mu ne ma bonheur sama ndox bi jeex na doo ma livré <laughs> comme ñoom dañoo foog di may seen pap livré ma ndox bonheur doo ma livré xam nga ma doo bonheur la may woowee yéen sax bëgg naa léegi ngeen may woowee bonheur ku dugg léegi boo ma nee allo ma jox la trois cent mille <laughs> eh xale yi fii bonheur lañ may woowee de lan ngeen foog ay Pape Cheikh Diallo ak Alaaji Papa Cheikh non never never xale yi bonheur lañ may woowee dama bëgg léegi Sénégal yëpp di ma woowee bonheur alaaji bonheur <laughs> kii kan la ni Oustaz waaw Oustaz ñëwal yow tamit commencé gu ma sax waaye maa ngi ci bifoor bi parti bi itam parti bu neex la yaa Oustaz Oustaz Pape An tamit mu ngi fi justement boo ñëwee sax yaa Oustaz di nga ñu mën a gindi ci euh, naafila bis bi parce que man am na yoo xamante ni du ma ko mën a expliquer téléspectateurs yi ci niveau xam-xam vingt 628 65 65 wala 88 628 20 20 dans quelques instants ñu tàmbali quartier général bi yeneen i enveloppe laa bëgg a continuer di joxe ñu jëlaat beneen téléspectateur allo yaa Oustaz yegg sil yegg sil yaa Oustaz fi mu ne damay joxe ay enveloppe rek a tab gi na ci yow tab gi na ci yow bu ñu ko yi gars yi xamuñ ñu. joxe ay suukuru koor. dañ ñuy seen rek mais xamuñ ñu. tab ginne ci yow. wallaahi. talaaj Pape xanaa xamoon ni tab dafa jege aljana. te dégg naa yonent bi dafa tabe woon. toogal toogal jël micro bi yaa oustaz. dégg naa dafa tabe woon ba nga xamee ni. daan na daan na joxe li mu soxla. moom li mu soxla. daan na ko joxe. toog. taale micro bi waaw. maanaam sallallahu alayhi sa xarit bi. waaw ku sakkan ki waaw waaw waaw Ah, tàkkagu la ah. ah. Abdourahmane kaay kaay régleel ko micro bi parce que bëgg naa waxtaan ak oustaz Pape Hann tuuti rek balaa ñuy tàmbali quartier général bi uyu kook sabadoor bi <laughs> te waa TFM sama collègue ay hypocrite la ñu yoo xamante ni koor gi ñoom ñëpp ay sabadoor la ñuy sol ak jàllaa bi te bu koor gi passé xoola ay jean déchiré Pape Samba Thiam day baali vogue Pape Lam day baali Abdourahmane day baali mm-hmm. mais bu koor gi jotee ñoom ñëpp ay Euh, bu amee téléspectateur ñu paas ma ko léegi nii pendant que Oustaz Pape Hann di ma wax ci tab gi nekkoon ci yonent bi ci biforu quartier général macha allah yaa Oustaz mais laaj Pape nuyu naa la fay naa la ndokkeel naa la ziar naa la mais laaj Pape yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallam maanaam tab gi newoon ci moom waaw kenn xamul lu mu toll wallaahi lil xalqi am da daan joxe li mu yore dese neen dese waaw juuduhu tabe rasulullahi mhm. lil xalqi ñeel mindee fi mhm. am mhm. ma matale na moom rasulullahi maanaam tabu yonent bi amul ko ko mën a miim mara mm-hmm. alxaj Mansuur waxoon ko ni ko wa baxruka taamin mm-hmm. laa tukaddirhu dila mm-hmm. bi shaatiihi man jaa asbaha radiya mu ni sayyidina Muhammad wa baxruka sa géej gis nga tab ga yow rasulullahi taamin aji yëkkatiku la laa tukaddirhu du ko nëxal a laa baak yi maanaam géeju yonent bi alaaj pap baak yi lu mu bari bari du tax géej ga nëx lu tax géej gën nax mhm. mu ni léegi xam nga lu xew mhm. man jaaku dikk bi saati yii ci tefesam mhm. asbaxa da nga mujj raadiya di aji kontaan ñu jël sunuy ndab teg ci buntam mu jox ñu ñu dem moom yonent bi daawul neenal kenn da ngay ñëw léegi mu jox la ah, waaw bu subaa nga rombaat ko mu joxaat la. kon TFM jikko yonent bi la yor. mais dëgg bis bu ne ñu ngi joxe. joxe lépp joxe joxe lépp. <laughs> mais laaj Pape Rasulaay da ngay ñëw léegi mu jox la bu subaa nga nga xool ko bët yu lewet mu joxaat la ginnaaw suba nga jaaraat mu joxaat la te du feeñ ci kanam gi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam yonent bi dafa tabe euh, mara nay du dugg àjjana ah ku nay du a àjjana mais albaqiilu xaribun min an naar yi dafa jege safara hmm. waaye ba'i ah xari ah, ah, xaribun min an naar yi waaye baidun min aljanna nee na nay dafa jege safara sori aljanna nay baaxul. alay mais ba baxilu baaxul de. baaxul baxilu moom baaxul. mooy nay baaxul baxilu mooy nay. mais laaj Pape gis nga nit ku nay. yàlla nañu yàlla musal ci aji baq baqiir yi. <laughs> mais alaaj Pape gis nga nit ku nay. alaaj <laughs> Pape nit ku nay. <laughs> Uh-huh. mooy man Pape Hann ma bëgg a may Abdourahmane. et puis ku nay dafay ñaaw boo boo nayee doo mais sa kanam du belli. doo rafet waaw doo rafet sa kanam du belli. doo nekk suket ab nay ab nay booy may nit sax booy may nit ñaar fukki junni mun la oo oh waay ëpp na waay. dëgg la de sa waay kii kii te am na ay baadoo la yoo xamante ni yàqkatu may lañu. yàq may dañuy dee bi naan ko déet li nga ko jox ëpp na de. li nga ko jox ëpp na boobooy baqilu mooy baqilu baqilu yooyu baaxul baaxul yàlla nañ ci yàlla musal mais mais président Youssou Ndour way na ko eh waa jàngoogu tàmbulaay sàbbey la waaw way na nay moom bu lay may du xool mais bi mu woyee nay ñi nay ñëpp doon kaas dëgg la de naan ko war a wax loolu parce que ñun dañoo amul <laughs> mais alaaj Pape gis nga nay nay kay baaxul nay day wàññi wërsëg yàlla nañ ci yàlla musal nay day ñuulal day day bonal day bonal xol <laughs> gis nga alaaj Pape nay day tax sa kanam du belli wallaahi yonent bi alaaj pap tabeem nga uh-huh. benn waaye daf ko daf ko fekk ci saxaaba yi mu toog uh-huh. mu ni ko problème mu junni laa soxla ah, waaw rasulaay yël bu xool poosé dara newu ci mu ne ko ah. bokk fekkoon ma jox la de wallaahi ne ko du yàlla yónniwu la wallaahi bu la yàlla yónni woon nga nekk kilifa mm-hmm. junni dooma ko xañ mm-hmm. Omar jóg Ousmane Alioune saxaaba yi mm-hmm. bëgg koo dal na bi ne bàyyi leen jàmbur jàpp ci loxo waa ji yóbbu këram ubbi gaal ga hmm. génne manto ba jox ko génne bot ya jox ko génne yëre jox ko di ko jox di ko jox waa ji ëmb mu ne ko jaaral ci marché bi li ma yoroon yëpp joxe naa ko jaaral ci marché bi oh, benn rek boo ko jaayee am junni bi nga soxla <laughs> benn boo ko jaayee am junni bi nga soxla ah, waa ji tox ñaari patànk yi nagam wàññee ko jàkkaarloog rasulullah yi ne ko xam nga diw nabi ne ko dama koy dégg mu ne ko man la maa ëpp alal ci àdduna bi ah. dama la laajte ñu ne ma da ngay jéggalee ko jëllale ma laajte la ñu ma kenn du la fekk ci mbooloo mhm. ba sëkkërtël la mhm. ba gis sa jikko ju ñaaw parce que amuloo ko kenn du la fekk nga wéet ba sëkkërtël la mhm. ba gis sa jikko ju ñaaw parce que amuloo ko mu ni ko dama doon testé xool yow la am du yow waaye soxlawu ma ko de waaye yaa gën a tabe ci lu yàlla bind ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullahi xam nga lu tax ma tuub alaaj baba tabee rasulullahi sallallahu alayhi tab googu nag ci la ñuy topp pour di leen jox seeni i sukkaru koor bu amaatee ay téléspectateurs ñu jël leen yaa oustaz maa ngi ñëw léegi nii ci yow euh, naafi la moom bëriwul huit ra huit rakka ak ñeenti sëlmal mhm. rakka bu ci nekk fatiha benn yoon alam nasara benn yoon ak ñetti xul euh, xulwallaahu ahad alhamdulilah mais tey naafi la bi méttiwul compliqué wu la <laughs> à tout à l'heure yaa oustaz voilà Mado viens m'accompagner ñu dem ci plateau bi léegi nii y' a pas de souci téléspectateurs yi di woote ñu leen di jox seen i sukkaru koor oustaz est ce def baax na. téye ci loxo. ci loxo oh, ci loxo baaxul baaxul ci loxo koo bokkal nday ah yéen bokk yaay ñoo bokk benn yaay nag bokk yaay ba ñoo bokk benn yaay nag mais bu fekkee bokk leen yaay. <laughs> waaw dafa araam. <laughs> mu ngoog jërëjëf yaa oustaz ko muy nuyu jigéen day nuyu jigéen rek. bu kanti kanti jigéen bu romb mu nuyu ko. waaye moom ñi muy nuyu ñëpp ci njabootam la ñu bokk mbaa xam nga ni ñoom ñëpp dadi lañ koy woowe waaw ñun ay doomam lañ. donc joxe joxe jox loxo sa doom bu jigéen dara nekku ci. mais Pape waru leen nuyu daal. <laughs> oustaz damaa baax rek te mën a rafetal waaye maag ma doom yi bokkuñu dara jaww la. sant ma mais <laughs> waroo jàpp loxo mais <laughs> jàpp loxo. allez ñu dugal publicité yi doog a tàmbali quartier général u tey bi Pape Djibril Fall président Pape Djibril fal moo nar a nekk suñu invité am na itam yeneen i surprise yoo xamante ni mu ngi leen di xaar tey tout au long de cette soirée ci télévision Futur Média évidemment première télé fii ci Sénégal teronga koor ak pastami ak farine farima wala sax ak roli waaye tamit ñu wàjjal korité ak aliment cher NMA mooy li ñu moom. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu TFM. Ah. produit Cosedi. lay ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw. naan dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw. waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw. groupe yi Litare moo leen di lu kooru jàmm. Sénégal TFM lañ bëgg waaw TFM Jolof Assure SA mooy seen këru assurance bi nekk seen wet di leen gunge fépp ci lépp. chargez gaaw application Yassir Yassir la vie en plus facile. moo ko tax a jóg daal TFM koor ak pastami ak farine farima wala sax ak roli waaye tamit ñu wàjjal korité ak aliment cher enema mooy li ñu moom tamaate lingeer tamaate cosaan xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM Sucria mooy bégal Sénégal gépp ci seeni ñamu suukar Alima mi leen di jagleel seen poulet teral mi ngi leen di ñaanal Ramadan Mubarak. jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM. wa rahmati wasiat kulla cheyin sunu borom ne sama yërmande làmb na ku mu mën doon mbooleem kuy mindeef. moo xam kàccoor bi la moo xam kuy jaamu borom bi la ci yërmande yàlla la yaakaar wala yadxuluuna al jannata illa bi rahmati boo boolee bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndeeg bàyyi yërmande suñu borom ci jaam bi moo gën a foor kon nag laa taqnatu min rahmatillah fukki fanu yërmande yaa ngoog wassalaamu aleykum original ay waay féexal sa xol ah original neexal bu te na gu original pur jus de fruits orange mmh. mu yéen ananas nag e mbay lii cocktail bi moom hmm, mango moom da ngay naan di saqami original moo leen di si seen bépp xew-xew ouvre un nouveau bonheur à chaque gorgée di naan di sàqam yi déet bul pàkkar ñi nag <laughs> ñun yow rekk la ñuy topp originalement vous prêt à redécouvrir la magie intense d'un produit d'exception une seule goutte pour prendre le contrôle de votre cuisine des arômes du goût et des saveurs incomparables. Faites gronder le tonnerre qui sommeille en vous et réveillez-vous en chef cuisinier. Laissez-vous emporter par nos produits variés pour vous transporter dans l'univers culinaire réinventé de Caddy. Agrémentez vos fritures, vos marinades et vos sauces avec nos savoureux produits faits de vrais ingrédients. Idéal pour toutes vos idées culinaires. Faites-nous confiance et maîtrisez votre cuisine. jot wërsëg kaas ci kaw kaas bés bu ne tàmbalee ak cawarte jeexalee ak yokkute Nescafé ci biir weeru koor gu sell gi ñëw leen gaaw xool suñu offre yu spécial yi nga xam ni moom la ñu am ca DSL Dekakila ngeen mën a profité ci suñu promotion spéciale weeru koor ñu wàññi leen 10 pour cent suñu machine à café yi wala ngeen defar seen thé yu toog ak suñu bouilloire yu rafet yii wala suñu thermos yi suñu mixeur yu mën yi wala suñu air fryer yii ak suñu micro-ondes yu pratique yi ak suñu four électrique am nañu tamit tamit ay cuisinière 4 ba 6 ay cookers minute ñëw leen xool suñu barbecue yi nga xam ni da nga def këriñ wala à gaz machine à toaster pour defar panini wala pizza suñu réfrigérateur ak congélateur yi nga xam ni dafa mën a denc fekk leen ñu suñu showroom 77 201 07 12 wala 78 711 87 52 wala 77 750 32 05 wala 77 680 14 75. Tout être mérite d'être protégé, tout être a besoin de bénédiction, tout être a son rituel pour faire fleurir ses opportunités. J'ai choisi l'eau né ici sous les roches bénies de Kayar. Eau Kayar, ndox bi ñuy ma ne fële daal laaliya moom ma doy si ndekki waay xoyal ci sa kaas ndekki série. waa Baye Café. Eh. naka mbégte mi. waa xanaa nekk ci mbégte mu dul jeex. ah jeex na door ma Promix 1375 bi. léegi. te ni 150 minutes d'appel xanaa li na SMS. ah eh. 2,5 giga. waa li mais mbégte mu dul jeex Sénégal ku bëgg rek bëgg. mbégte bi yàlla bu mu dee. mais du mos a jeex. Baye Café ak mbégte <laughs> Baye Café téeméer laa yor bëgg bokk ci mbégte mi. mais bokk nga ci mbégte mi bu yàgg te yóbboo ko. 1,5 giga internet xanaa jommi nga. Baye Café waay lii lépp moom yow bëgg ba faaw. li kay mooy bëgg ba faaw. jaajëf waay. Eh, eh, eh, gosee. waaw sama ne mais 475 la xam nga ko. waay waay jaajëf waay. mais ba faaw. <laughs> Oh. jëmm ju nekk am na lu koy aar ci biir ak ci biti jëmm ju nekk am na luy ubbi wërsëgam saabu jant soobee jëmm ju nekk am na lu muy tàmbalee ngir xewal yu saawaan baawaan man Oukayaar ndox mi bàyyeekoo fii ci gox mu naat moom laa taamu ndax xéwal bu nekk am na lu koy sabab wërsëg bu nekk am na lu koy yombal te xol bu nekk am na lu koy seddal au Cayar. Besoin d'un taxi? Il est dans l'appli. Tu ne cherches pas. Tu prends ce qui est à toi. Tu ne vas pas à une fête, tu es la fête. Tu n'y vas pas simplement, tu y vas avec Yango. Téléchargez l'appli aujourd'hui pour profiter de courses à partir de francs CFA. mbokk yi di peinture muy xollee ko mbaa muy furi xewwi na peinture bu baax bokk na ci lii sàmm seen bâtiment TQG Touba Quincaillerie Générale indi na leen ay peinture colorado yu mucc ayib ànd ak qualité pour yanjal ak sàmm seen kër bii mooy Colosud Colosud def di peinture lavable saa yu la neexee mën nga raxas sa façade te day aar seen bâtiment mi tamba mi naaj du ko tax a soppeeku te itam mën nga ko am ci couleur yu bëri bii nag mooy colo vinyle 900 yéen ñi soxla peinture bu weex tàll te du xaal mi ngi nii sakkan na mën a dem ci maçonnerie ci boiserie wala ci plâtre peinture buy jaay weex colo vinyle 900 moo moom bu ngeen bëggee peinture bu liis lavable mooy bi gën kolozane bu Colorado dañ ko liggéey muy penco bu mën a dékku taw naaj ak poussière te du soppeeku moisissure mënul ci moom dara ak Colosud

160 000 tonnes de noix de cajou, produites, conditionnées et distribuées du Sénégal vers le reste du monde. Parce que lorsque les échanges commerciaux sont fluides, de nouvelles opportunités se présentent. DP <laughs> World, change what's possible. ak sama yaourt yi li tari saveur vanille nature ak sucré. ñamal mmh, gu famille Gold. famille l'élite ak doy baak bul fàtte mukk nag sachet te gën ci njaboot gi groupe Yelitare moo leen di ñaanal kooru jàmm Leila Evans Co, le spécialiste des grands événements, décoratrice de renom Leila Evans and Co la grande diva de Nord Foire kooku mooy borom décoré mariage ba ku ñëw ci mariage ba di seetaan kooku mooy décoré ngénte ba ku ñëw ca ngénte la di seetaan dîner de gala bu ko décorer ba décorer entrée ba loolu yëfam la cocktail bu la ko defalee nga ne kii moo mën décoration amul lu mu amul ci wàllu matériel bu la defalee sa conférence wala sa conférence religieuse nga xam ne Leila Evans and Co moo la liggéeyal anniversaire wala concert bu la defalee concert nag dalay defal concert bu mucc ayib ba defal la son et lumière tegal la écran indil la ay chaise VIP indil la chapiteau indil la moquette en gazon indil la ay fumogène muy saxaar ci entrée artiste ba indil la ay feu d'artifice réew mi yëpp Leila Evans and Co la ñuy wër ci wàllu décoration ci wàllu événementiel Leila Evans and Co 77 563 34 34 ou le 77 330 42 06 kenn du Leila Evans and Co. da nga di borom kër jiitu entreprise. chauffeur de taxi wala ouvrier wala sax ngay voyager lu bari suñu cabinet de conseil en assurance bii di wuyoo ci turu Jolof Assure SA moo leen di jagleel ay produits d'assurance yu mucc ayib li ko dalee ci assurance automobile assurance moto assurance habitation assurance entreprise assurance vie wala sax assurance voyage ngir am lu gën a leer produit wala ñu gaaw ci suñuy numéro

ak fu di sadaxa jariya mën ngeen cee soppi dunduk ñu bari fu joxe la bu njariñ la dul jeex ndax day wéy di meññ di jariñ askan wi saa su nekk waqfu di lu ku tedd ki seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle dib sarax bu pay gala ci suñu borom di fay di wéy ginnaaw sax bu dëddu àddina kon def leen Waqf ak application Orange Money bi bu ngeen duggee ci paiement dem marchand laata ngeen di dugal code bi di 34 85 39 teg ca koppar ya ngeen fas yéene def Waqf wala ngeen dem direct seen téléphone ci dièse 144 dièse 5 étoile 34 85 39 dièse wala it ci plateforme bi di 3w point waqf tiré d'ici sénégal point com mën nañ koy dagg ci seen payoor jaaree ko ci compte bis bii di SN 079 01 101 251 080 986 002 39 man ngeen nit tàbbal ay wéccit wala billet xaalis ci boyeti condamné yi haute autorité bu Waqf Sanc ci supermarché yi ci banque yi ak yeneen place mbooloo yi xaalis bi nu ciy dajalee dañu koy def ci kees gu mag gi état bu Sénégal taxawal atum 2022 ak léegi ngir ñëpp mën a barkeelu def seen Waqf ak nu seen poos mën a toll ngir ñëpp jot ci tiyaabay Waqf boobeeg Waqf état Sénégal yaatal ba ci ñëpp la ci jublu mooy di financer maanaam gunge ki koppar ay projet Waqf financement yu dagan ca tegu ci yoonu finance islamique xaalis bi la muy jur ñu koy financer ay programme yoo xam ne askan bi seeni loxo jotul seen ginnaaw moo ko tax a jóg Sénégal ñëpp a bëgg ñëpp a fier ndax lu rafetee ni mësta am Sénégal fii la ñuy wax kër Khalifa textile 2KT mu lay jaay en gros bépp xeetu tissu ana tissu ba nga bëgg yaa xam gros yaa xam détail waaye boo yegsee ci suñu place kër xalifa 2K textile nekk fii ci Parcelles Assainies janoo ak station Total bu joor ci rez chaussée bi maanaam ci suuf di nga fa fekk wax bazin riche fil à fil brodé voile brodé lépp loo xam ni rek da di xeetu tissu boo bëgg premier étage ci espace VIP ba di nga fa fekk ay tissus de mariage ay til ay jipir original pirxa original la faya tissu pour homme qualité supérieure yooyu ñoo nekk ca kaw Getzner doo bëgg ca qualité supérieure am na fa deuxième étage ba nag lépp luy rideau décoration pour kër ak bureau ah dama ni kër Khalifa textile sagal nga Sénégal Sénégal yëpp nga sigil lii nga def biir parcel Assainies en face station Total Dior ñëpp ci fier kër Khalifa textile 2KT kenn du yéen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 ak bouquet canal plus yii dund leen koor gu sell ak chaîne yi gën bu leen dara rëcc ci chaîne religieuse yu mel ni Touba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall ak Malikia TV chaîne sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor di rax ci dolli ñu ngi ci bouquet canal plus yi dem leen léegi gaaw abonné wala rey abonné wu ji ngir dund mbégte seetaan programme yi gën a neex si télé sukkaru koor daal canal plus rek moo ma si doy te lingeer Découvrez maintenant le nouveau pot de tomate linguère en format grammes. Avec son couvercle refermable, son pot réutilisable et sa qualité numéro 1. Tomate linguère, tomate cosaan dafa neex koor gi ñëw na xelkom pizza jikkati na da ngeen bëgg ndogu bu riche mbaa bu mucc ayib wala sax reer yu amul fenn ñëwal fii ci xelkom pizza xelkom pizza fait les meilleurs beignets Nutella du Sénégal Sénégal laa wax yii beignets yu moelleux yii Nutella yu fondant beignet à la crème bi nag benn la fi ay jus naturel yu neex set sell xelkom pizza rek la am te yamuñu foofu de xelkom pizza am na service traiteur boulangerie pâtisserie am na fast food

taayo noo def da ma soxla woon. suukar waaw maa la woolu woon. mais suukar fokk ma libéré la. bul wax loolu mënoo maa libéré nit ñi dañoo bëgg lu saf suukar de. dëgg la waaye nit yi dañoo commencé moytu suukar gu bëri gisoo feebar yi ni mu bëree si àdduna bi diabète tension et cetera. yow baadu sucria bi muy dégg moo tax nga bëgg maa dàq. waaw xamoon naa ko. suculaire dafa neex dafa naturel amul arrière goût ba pare du yéege sa suukar képp ku bëgg wàññi suukar mën nga koo jëfandikoo yow moom gaa yi ñoo ngi lay commencé daw surtout diabétique yi. ah wax nga dëgg de même ñi amul diabète sax commencé ñu maa daw léegi. waaw gis naa loolu moo tax nag aw ma choix fokk ma bàyyi la nga dem. mais yow par défaut dictature ñëpp ànd nañ si. waaw waxtaan naa ci ak ñëpp ñoom café ñoom jus caakiri ak ñëpp sax ndax sucria moo yaram. dara ak gaamu produit yu sell te wóor yi ngeen ko xamee saucisson nag ak ginaar viande hachée merguez ak jambon dellu si na di leen gunge te di leen ñaanal kooru jàmm Des moments chaleureux, des repas savoureux avec ceux que nous aimons. Le poulet terral nous accompagne dans ces précieux instants. Le bonheur se partage. Sedima vous souhaite un bon ramadan. TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen def seetu Sénégal TFM merci d'être avec nous ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision Futur Média bienvenue dans Quartier Général premier rendez-vous infotainment bu ñu leen di jagleel ci télévision télévision Futur Média bien évidemment première télé fii ci euh, Sénégal seeni sukkaru koor nag man daf maa yitteel à un point boo xamante ni bëggoon naa famille bu ci nekk bu ñu fa duggee ñu joxe fa enveloppe bu duun boo xam ne day doon ndimbal ce qui veut dire que dès à présent ni sànq mën ngeen a continuer di woote ci suñu ay numéro de téléphone 88 676 07 07 wala 88 676 06 06 ak it 88 676 05 05 Oustaz Pape Hann mu ngi fi Mado mu ngi fi ñu ngi lay nuyu Mado merci d'être là comme chaque année ci euh, quartier général bi euh, tey itam ni euh, daaw am na ay sujets yu am solo yoo xamante ni di nga ko jagleel sunu xarit yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan moo xam ci seen i téléviseur wala sax ci plateforme yi nga xamee ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi ak hashtag bi di QGTFM 2024 wala QG9 Madeleine Diagne. effectivement Pape Cheikh balaa dara maa ngi nuyu euh, mbokku téléspectateurs yi ku ci nekk seen tur ak seen sant euh, di la ziar bu baax yow itam di la jox sa wàccuwaay naka noonu aussi may ziar bu baax ki nga xamante ne moom moo di euh, oustaz pap Anne di baaluwaat àq ñëpp te di baal àq ñëpp comme ni ñu ko waxee ndax ci weer bu sell bi ñu dugg mu nekk weeru Ramadan ci noonu rek ma di la ko waxaat rek mbégte la saa su ne àndaat ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di quartier général macha allah nga di ko wax QG 9 hashtag la. sant ci bu baax a baax waaye comme ni may def rek euh, niñ la ko waxee tout le temps dinañ indi incha allah euh, bu ñu ko jot bi mayee ay li nga xamante ne moom moo di ay euh, éléments yu am solo gindiwaat beneen rubrique bu bees bu ñu tuddee chez toi léeg-léeg ñu doxantu ci ay gox bërëb bu mu munti doon mu nekk fii ci Sénégal rawatina ci biir réew mi du ñu fàtte région yi doxantu fa waxtaan ak nit yi wane ñoom itam weeru koor naka nañu doxalee parce que li ñu naan Dakar Sénégal Pape Cheikh. C'est pour ça que Euh, euh, de du Sénégal. voilà xam nga Sénégal moom du ndakaar kese dinañu xool reportage boobu bu ca euh, kanamee yow saas ñu ziyaaraat la ndokkeel la gërëmati la ci teewaay bi yonent bi yonent bi moom ñun du ñu doyal ci nga ñu koy siiral. moo xam ci euh, télévision Futur Média bëccëg bi mhm. wala ci quartier général bi ndax mooy ku sakkan ki te euh, sakkan ba noppi du jeex man loolu jaaxal na ma xam nga lu sakkan sax mën naa jeex waaye moom du jeex voilà mais moom du jeex beneen bi lan moo tax yonent bi du jeex oustaz mais laaj pap du jeex du xew wi waaw du jeex come on te du xew wi mhm. aljana mooma nit ñi moom la malaayika yi moom ma mhm. lépp moom ma ah, lépp yonent bi lépp yonent bi maanaam yàlla yàlla lu mu def sax ci yonent bi la ko sukkandikoo ndax cofeel gi mu am ci moom moom suñu boroom mhm. la kenn xamul lu mu doom foofu yàlla deful ségrégation waaw mais loolu yàgg naa am alaj pap kon bralon bu ñu ko dee yàllaa ko njëkkee mais suñu borom subhanahu wa taala uh-huh. moo jël yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mhm. bind ko ba noppi maanaam mbooleem xeetu cofeel yi wax naa la keroog yàlla da koo bëgg rasulullah kon nit dina jur doom ñu doon ñu doon juróom mu am ku mu ca préféré yàlla sàkk ñu ñun ñëpp ne kii ko gënal. mu préféré rasulullah. ba pare kaay boobu mu ko fan pour lan la. yàlla yàlla yemul ci préféré ko. ah da koo préféré ba noppi ne ku ma ku ma ku ko ku ku ko topp ku ma topp te toppoo ko bëgguma waa léegi kaa boobu ba may bëgg nga topp ma topp rasulullah mais kaa boobu nu mu demee lu tax yàlla jékki-jékki rek ne yonent bi la bëgg mais magum démm bu toll ni yàlla yàlla ne yonent bee ko gënal xool ci leeram ya moom sunu borom sallallahu alayhi wa sallam leeram ya leer gi mu gën a sopp mu bind ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasul Alxaaji Malik ne wa innahu is araada allahu nasatana mm. abaana min nuurihi nuuran nabil alamin mu ni wa innahu lii mbir mbir mhm. is araada ba nammee allahu yàlla nasatana sos sunu mhm. alaaj pap bi yàlla nammee bindi mindee mhm. mu ni abaana la faccalee moom yàlla la tibbee min nuurihi ci leeram nga nuuran nabi leeru kunu soloo ko tamit lan moo taxoon sa maam Maodo araaka parce que a booba man pap an maa ngi fi nekk di jëllale di fàtte fàtte dee nekk topp àddina waaw bëgg mu mbaay nekk ci lu ma neex mhm. Maodo ne ma jàkk ne ma yéy araaka nee naa la jàkk na siital mawta ngay fàtte fàtte lu dee te pourtant yonent bi jàngal nañu lu tax ñu war di bàyyi xel bis bu jot ci dee dégg nga wax bi. Ah. nee naa la jàkk na siital mawta ngay fàtte fàtte lu dee xam nga dee kenn du ko fàtte. déedéet. góor gi ne wal mawtu dee dee. man de dama ko mawridun rootuwaay. man de dama koy fàtte rek. déedéet <laughs> laaj Pape. di ma ko euh, ragalee. maanaam yàlla ne mulukul muuti ñaar ngay def ma dégradé. waykat baa ni woon kenn bëggul de kenn bëggul gaaw a dee. dëgg <laughs> am na koo xam ne boo ko waxoon alaaj Pape am na koo xam boo ni ko woon. boo ne ko woon euh, dee léegi dem àjjana mbaa toog fi 5 ans mbaa 10 ans. débrouillé koy gënal. débrouillé mu ni bàyyil ma toog débrouillé. wallaay mais laaj pap góor gi ni euh, wal mawtu dee. Uh-huh. Ah, euh, kenn ku ci nekk mawridun rootuwaay la. Uh-huh. te am na koo xam ni am na am na ñoo xam ni boo deewee dañuy bëgg. Uh-huh. am na ñoo xam ni bon nan xeetu bon goo xam ni. bu nit deewee dañuy kontaan ca deega. am na loolu am na fi. alaaji pap am na ci réew mi. ah sa waay xam na ne xamoon nañ dina dee. ndax sa waay li mu def démb wala ni ma ko gisee bërki démb mel ni li ko fi jëlee dina la fi bàyyi mooy jibile mooy li appulaay ah, tuddee jibile keroog ba Seydina Muhammad génne àddina daa ma ko bindalee daa ma ko mayee feet ah daal di kontaan ci deewu rasulullah yi def kii su mayee feet waaw daal di bég aywaay daal di mayee feet ca dëkk ba ñu ni ko looy feetu mu ni Muhammad ibn Abdoulaye miy woote na yonent la dee na daal di mayee feet bu rëy si naa lu mm-hmm. bind ko lettre mm-hmm. ne ko njool màkka wàllam rek la jël waaye yow sa wàll lay xaar mm-hmm. waa léegi ana kooku may woon feet ndax mi ngi dund ba léegi kooku dee na bu yàgg jol màkk wàllam la jël moom wàllam bi ko doon xaar jël na ko comme comme rasta Bob Marley yi mi ngi noonu mun alaaji pap bëgg yonent bi dafa dal xel mm-hmm. alaaji pap wax naa la bërki démb ni la mm-hmm. li muy njëkk def ci yow mooy dalay dalal moom rasulullah yi da ngay am paix intérieure boo gisee koo xam ni dalul dalul dee koy wax del bari looy julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaaji Pape boo gisee ku gaaw a mer mhm. nee ko del bari looy julli ci rasulullah yow de yaa muus soo gisee koo xam ni kanam nga du billi foo ko gis mi ngi mer te kenn defi ko dara mbaa xam nga ni am na ko xam day mer te kenn defi ko dara mhm. di mer nee ko del bari looy julli ci rasulullah jigéen bu ñu taqal wujju nga gis ko muy bëri problème mhm. di indil borom këram problème wala moom di mer ak a jooy ndax wu jëm bi nee ko del bari looy julli ci rasulullah wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin macha allah mais laaj Pape sa oustaz bi nag dama lay wax non man sama oustaz bi nag dafa virtuel man man ki may jàngal yàllaa ko yónnee ku yàlla yónnee may jàngal mi ngi mais mais alaaj Pape gis nga salatu ala nabi uh-huh. dafay ubbi wërsëg mm-hmm. alaaj Pape salatu ala nabi mm-hmm. dafay dalal xel salaatu ala nabi dalay jegeloo yàlla hmm. yàlla mi bind mbindee fi moom leen hmm. soo jullee ci rasulullah yi benn mu julli ci yow fukk hmm. nga ci yonent bi fukk yàlla julli ci yow téeméer nga julli ci Seydina Muhammad téeméer yàlla julli ci yow junni te ku yàlla julli ci yow junni sa yàpp yaram xaraam na safara yàlla beral na ko loxo xam nga lu tax nga am loolu mooy sa cofeel ci rasulullah sa sallallahu alayhi wa sallam benn koy wax di ko wax ba xamatul lu mu koy wax mais julli ci yonent bi dafa bëri ay façon waaw wala benn rek la bëri na ay façon nan la ñuy jullee ci moom ci bu gën a simple sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad ala muhammad wala ala muhammadin di ko wérd baax na di ko wérd allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim baax na al bi wax nañu ni salaatal faatihi nag afdalu bi gën mooy allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaqa nasir alxaqi bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim gis nga Mouhamadul Bikiri yi mhm. daa dugg xalwa am na ñu ni vingt ans ñi ne trente ans mhm. pour yàlla wan ko salaatu bi gën hmm, mais ban salaatu moo gën ñu ni salaatul faatihi ah kon moom la moo tax mag gi naa naa seen xàq ji xàq ji jolli waaw kay oh <laughs> Mouhamadul Bikiri yi alaaj Paap Mouhamadul Bikiri <laughs> keroog bi mu duggee xalwa bi salaatul faatihi di wàcc trois tirs ba mu nee woon dafa toj eh. mu jóge ca kaw salaatul faatihi ñu bind ko ci àll wa leer su ko wëlbatee muy salaatal faatixi bu ko juutalee muy salaatal faatixi ñu ne ko danga nga doon laaj bi gën bi gën a ngi nii. kon mais mais dafa am ay ci ay bërëb yu ñu ko war a waxee. ak fu ñu ko warul waxee. de julli ci yonent bi nag kaay wax la. amul kii ah, foo ko waxee mu jàpp. même sans njàpp mun nga ko wax boo yorul njàpp boo jullee ci yool màkk ñu bindal la jigéen bu gis mbaax itam mun nga ko bi ñu bindal la boo fanaanee sobee itam mun bi ñu bindal la boo yeewoo ci ci ci ne itam mun nga ko wax boo jullee ci yonent bi ñu bindal la Ah. loolu rasulaay doon ko am mais yàlla daf ñu ko yombalal nag dama lay wax alaaji Pape yonent bi yàllaa ko bind muy jëmmi yërmande moom hmm. rasulullah ji ak foo mënti nekk ak foo mën a ne boo bindee ci jol màkk yàlla bindal la yàlla rasulaay dong la bëgg xam nga yonent yàlla ibrahima moom la yàlla wax ni yaay sama xarit wa taqazallaahu ibrahima xalila xalilullah keroog bi muy dee mënukul muuti dajeek moom dafa nuyoog moom mu ne ko yaay kan mënukul muuti ne ko yaay kan ibrahima ne ko yaay kan mënukul muuti ne ko mën a mënukul muuti mu ne ko luy sey tànk mu ne ko ray la mu ne ko neel yàlla xarit nu muy reyee xaritam mhm. mu yayaarlu yàlla ni ko nee ko xarit bu soxlaa xaritam woo ko ndax du ko wuyu mhm. nee ko na ma wuyu waay waaye xoolal sa waa ji mhm. xoolal sa waa ji moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daa tëdd jibril ñëw malakul mawti ñëw ne ko yàlla ne bu la neexee dem bu la neexee toog man de budul woon nag quartier général bii koor gi ci wetam la may fekk waaw waaye maa ngi ñaan nit ñu baax ñi ñi ma yàgg yóbbu foofu mais après koor nu ma yóbbu waat après koor nga yóbbu kàcc nañ ma yóbbu waat. <laughs> mais alaaj Pape alaaj Pape kon Ibrahima. naa bu koor gi jeexee tey. ca ëllëg sa. nga dem ma dem yendul ko. waaw kon maa ngi ñaan ñu. te xam nga Médine dafa neexu saas. Eh, maa ngi maa ngi dal ci hôtel bi jàkkaarloog Médine noonu. Ah, nga xam ni fa lay wàcc rek. fekk naa la fa waaw. Oh. nga xam ne nga xam ne yaa ngi jàkkaarloog borom bari. dëkk baa ngi. nga xam ne tëraayam ba ndam kese la. mais lu dëkk bii gën di di gën gi dëkk. fii la juddoo Makka. gën gi dëkk fii la yaroo Makka fii la màggee moo tax arab bi waxoon màkk yow day màkk doy na la sëkk teraanga fii dañ ko fee toroxaloon mooy juddoo gi rasulaay juddoo ci yow wa sallam fii la juddoo 18 ans màkk ne ko yow la nu wóolu ba pare fii dëkk dëkk bu bëri dëkk bu amul dara la fii la juddoo moom rasulullah gi mu am 35 ans ñuy teg xajatul aswad ñuy xëccoo famille bu ne ne ñoo koy teg ndax dañuy bañ famille bi teg ko tedda nga gi nekk ca ñoom ba pare ba pare li ma jaaxal ci dëkk bi oustaz waaw dëkku xeer la waaw waaye yàlla da koo teral ba nga xamante ni yi ñu yàlla tere yëpp dagan na fa. mais maa ngi lay wax. ndax ay xeer ak yooyu dañuy sànni xeer dañuy ray xeer dañuy safa dañuy marwa <laughs> dañuy dem arafat lépp xeer la. mais yàlla ne bu leen jaamu xërëm bu leen jaamu xeer. mais yàlla teral na ko ah. teral na ko mais bi mu amee 35 ans. Mhm. ñu ni mbedd mii ku fi njëkk a génn moo ñuy atte pour teg xajatul aswad moom loolu ngay fóon. ci ko bi ñuy fóon waaw. ñu jékki-jékki rek ndam yi ne tëll ak taxawaay bu jekk ba mais sax xam nga lu neex. xam nga normalement da nga ko war a fóon. mais boo ko soree ajee boobu nga koy ajee. mel na ni fóon nga man su ma fa rombee damay jaay star damay mel ni Macky su may su may. may kii su may tabaas. nga laa koy defee. waaw ak sama réew ju rafet ji rek <laughs> nii rek laay def. nga gis sénégalais yi naan kii de Pape Cheikh man leen tey ngeen jaamu yàlla te bàyyi ma lii laa koy defee rek waaw ajee bi laa ko jàpp rek mais nag Pape xajatu aswat boobu waaw ñu i mbedd mi ku fi njëkk a génn moo ñuy atte gis nga yàlla ci yàlla fekk fukki fameek ñaar gi taxaw ñu mm. jékki-jékki mouhamadul amine tël moom rasulullah kenn du suñu sang bi ñu ni waaw kay mouhamadul amine nga nële mm-hmm. bu solaan lu weex nag lu vert lay kaala kenn du yonent bu solee lu vert lu weex lay kaala woo uh-huh. boo ne sittax ca kaw ànd ak njool màkk mu sut la mm-hmm. buy dox ci suuf lay xool du xool ci kaw xam nga lu tax mm-hmm. daa bari keer sax kun xaamidu tarfi lil xabrai manzaruhu ala min an nazri lil jarbai la jàmbaar ji xoolal yoon màkk ñëw ne lu xew ñu ni ko xeer bi la ñu bëgg a teg fii ci kaaba gi mhm. mu ni ñaata famille ñu ni ko douze mu ni mhm. famille bu ne na am kenn ku mu yebal mhm. famille bu ne yebal kenn muy fukk ak ñaar yoon màkk tekki kaala ga lal ci suuf yëkkati xeer ba teg ca digg kaala ga ni ey jàppal fii jàppal fii ba douze personnes jàpp mu ne yëkkati leen ñoom ñëpp ñu yëkkati mu jël loxoom yu tedd yee teg ko fa nu ko war a teg <laughs> moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon fii la juddoo màkka yaroo màkka màggee màkka alaj pap kon mooy soppe yàlla kon looloo waral al amin ji mooy Mouhamadul Amin xam nga loolu mu leen ma bi mu amee 18 ans kuy dénk nabi lay dénk kuy wax secret moom nga ciy waxtaanal ku bëgg loo bëgg mu sotti Mouhamadou Rasulullah ki may bëgg a way mooy Amin ca Tiwaawan kon Amin Amin ci Tiwaawan moom daa fan Amin bële. mais Serigne Abdel Aziz ba doon Amin xoolal Serigne Abdel Al Amin bi muy am 18 eh. ans dépense su Serigne Babacar si kër Sidi Hadj Malick. Hmm. dépense ba ko yor. Aziz Al Amin kóolute gi ne woon ci moom. njub gi newoon ci moom sell gi newoon ci moom teddaga gi nekkoon ci moom uh-huh. jikko yi newoon ci moom Serigne Babacar fi mu ko tegoon mu yor dépense su kër gi uh-huh. moo tax ñu ne ko Al Amin moom la ñu wóolu moom Serigne Abdoul Aziz Al Amin addiya Al Amin laay joxe léegi sax ci téléphone bi 88 628 22 22 bu amee ay téléspectateurs yu nekk ci ligne bi léegi tey la samedi suba kenn liggéeyul mën ngeen a fanaan veillé ak ñun ba fajar ba keroog ñuy xëdd ci télévision Futur Média parti bu njëkk bi yonent bi rek la ñu ko jagleel njool màkka lu tax ñu koy wooyee màkka dafa njool dañuy woon njool ca kaw dégg man la boo ne sittax xam nga sittax sittax déedéet mooy ku njool ca kaw ah séttax mooy boo ànd ak njool màkk mu sut kon Mamadou Ndiaye dafa séttaxe waaw waaw moom dafa njool moom njool tàlli la rek waaye laaj pap la rek wuy ñëw ah. boo séenee mbooloo muy ñëw bu ah. sawaa ngay séet ngay séet ca kaw da nga may laaj lu tax lu tax mbagg moo amul droit sut mbaggi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba pare Moustapha dafa amoon taxawaay ndombay ndombay baade tasaaroo mhm. bët jë rëy la ca ñoom ñu kokk la ca weex ne tàll moom yonent bi bopp ba la sànnee ko ca ginnaaw tey moom yonent yéen yi seq sëq ba noppi sew addiye yonent bi laay joxe léegi sama yaram tàng na téeméeri junni mën naa koo mayee léegi ci téléphone bi maa ngaraaw bakkan ba yëkkati ko moom yonent bi gémmiñ nga yàggu gémmiñ nga yàggu day teg tele saaxa bëñ yi 32 ans la. fasaaxa mooy lan. fasaaxa mooy éloquence. kon dama am fasaaxa. waaw oh macha allah allahumma la aduru da nga am fasaaxa. <laughs> mais laaj Pape. Njool Màkk buy wax ak yow addiya Njool joxe léegi ku ma njëkk fekk ci ligne bi naa ko jox 200000 dugg leen gaaw dugg leen. ñu waaw waaw barki Serigne Touba. alaaj Pape nabi buy wax ak yow diggante sacré. mais TFM neex na iza takallama ah. xaraju nuurun min bayni sanaya waaye xoolal diggante bëñ bu ne am saaraar lu sew. moom yonent bi mooy comme sama bëñ waaw. Oh. alaj pap njool màkk bu lu nuyoo 40 jours parfum lay xeeñ loxo yaa gën a nooy coton moom yonent bi boo nekkoon ma ni mu jox la noppam soo bàyyiwul du siggi moo gën a yiw ñëpp moo gën a baax ñëpp moo gën a tabe ñëpp moo gën a moo gën a tedd ñëpp moo gën mën njaboot ñëpp gor ñi moo leen gën di gor wallaahi moom la ñu yaakaar lu fi baax yonent bee la gën a baax lu fi baax mooma ëllëg koo yaakaar ka mu yaakaar Moustapha la yaakaar ëllëg mais loolu du ségrégation kon ba tey biir bàmmeel xam ni bëgg njool màkkaa wóor alaaji paap barzaq la ñu fay dundee mooy li nga doon julli ci yonent bi hmm. alaaji paap ëllëg yow mal xiyaam aadama ba ki mujjee yónni ba ci yonent yàlla isa ñëppay tiit kenn day ki ànd ak sa goom hmm. mooy rasulullah caabi ja moo koy yore drapeau ba moo koy yor daagu ful bi topp ci ginnaawam safara ngay xàccu naan yàlla jox ma yenn saa yi Moustapha gestu ne ana ñu ma bëggoon ñu ne ko ñu ngi ni yaar muy ñun mu naan ñu jàll leen mu ni bu leen tiit safara du pour yéen oh. bu leen tiit dox leen keroog la ko yàlla ni wala soo fa yutika rabbuka fa tarda naa la jox ba nga ni doy na ci yàlla nabi ne ko yàlla bala maa wax doy na mooy ku ma bëgg dem aljanna mhm. alaaji paap kii ndax jar na bëggam jarul bëgg ci yow nag doo ñàkk dépense boo ko bëggee mhm. soo baree looy julli ci moom doo ñàkk dépense mhm. billahi salaatu ala nabi bu baree doo ñàkk dépense maa la wax xale bi dama ànd ak moom démb mu ne ma gis nga oto Oustaz Pape Hann bi ni mu rafetee ma ne ko ki mu bëgg a tax waaw waaw dafa sakkan nag <laughs> démb démb démb démb rek xale bi romb na a oto beeg ni mu rafetee wallaay ma yow gis nga oto papa an bi ni mu rafetee ma ne ko kii mu bëgg a tax moom la te maa ngi lay wax lan man su ma bëggee dara dama koy wax tey mm-hmm. mais laaj papa yonent bi su ma ko waxee li bëgg dafa dafa lu yàgg dafa ma koy jox xam naa loolu mooy yow bëggal rek yow bëggal rek yow bëggal rek ay yonent bi tey ngeen bëgg yonent bi yow bëggal rek alaaji pap <laughs> yenn saa yi damay bañ a bëgg sax nag dama la koy wax eh? man da man damay wax ak moom ah. dama ne ko eh? yaa rasulaay man kat fan yi nag maa ngi xaw naa banque ndax li de des ci poos yi bëriwul mhm. te bëgg naa mu bëri fii ak fay fan mhm. ala man dama naan yorantu bi oto laa bëgg a changé fa changé la koy def waaw damaa oto bii ma yor dama ko bëgg beneen bu dàq bi bu gën a rafet bi waaw waaw billaahi lazi laa ilaaha wallaay rawal déedéet man moom laay waxal moom mooy wax ak yàlla wa anta baabullaahi ay yumri in ataahu min xayrika laa yadxulu mhm. daraja garaat boo mën a am boo dëgmalee yàlla te jaaroo ci Moustapha yàlla du lu muyu li ma la wax xam nga xam naa ko moos. keroog bi nga jàkkaarloog moom. wallaay xam nga ni benn VIP doo nga am mooy waaj. moo maa jàkkaarloog ko désormais bëgg naa lu ma la ñaan nga may ma ko. mais dala koy moo tax ba ba tey damay <laughs> taxaw ma leen di ñaanal ci li ma leen di ñaanal yëpp ay am. maa de. mais li gën a doy waar. mooy alaji Pape wax naa la ko barki démb. deux heures Pape Samba Thiam daful yenn saa yi xaaju guddi lay ñëw sama kër. ne ma ñaanal ñaanal ma bu ma ko ñaanalee bu xëyee day dem am ay diplôme ak ay marché ak yooyu noonu. mais alaji Pape jiital biir bi kan la nii. ah mon ami mon frère. Ah, Diop commercial avec mhm. nga toog di def ay salatu ala nabi. Ah, waaw mais sa batterie yi feebaloon day rechargé day day wu. nga sar xoola nga chargé ba ba ba yi fees del alaaj Pape. Mhm. boo xëyee di nga doo yem ak ki julliwul woon bii ci rasulullah xaar ma chargé ma chargé téléspectateurs yi seen calpe yi. seen calpe yi ñuy jëlee jëlee xaalis paas leen ma ay téléspectateurs léegi nii addiyo yonent bi addiyo yonent bi laa koy def jërëjëf jëf Oustaz saas allah ñu ngi may xamal ni président Pape Djibril Fall itam yegg si na mu ngi jógee ci loge quartier général di jaar ci couloir couloiru quartier général fii itam fu fu fu neex la pour ñëw rejoindre ñu ci plateau bi en même temps ngeen passe ma ngeen passe ma téléspectateurs yi quand même 88 628 22 22 ñu joxe addiya Seydina Mohamed voilà addiya yonent bi laa fas yéene joxe ba ca kanam allo di nuyu nag fan sa club 5 minutes de Pape Anne ci laa bokk Alice Newman. Euh, sunu comité d'organisation bi ñu ngi xool nag ban candidat la ñu war a faral donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di ziar bu baax. voilà di nuyu tamit Bigué Diaw fàttewuñu aji mbuub aji mbuub nag euh, moo ànd ak tuutaan jàkk sama sama sama sama magu bopp euh, président des sénégalais de de de de Turquie di Pape Sow itam ñu ngi koy ziar bu baax. di ndokkeel képp koo xamante ni mu ngi ànd ak ñun bu amee ay téléspectateur rek ngeen paas ñu ko Kati Diop euh, yetu yaay ak famille am yëpp ñu ngi leen di ziar oustaz ki ñu fekk si nag. ah kii mooy ñun. c'est-à-dire au-delà de au-delà de ñun. waaw. exemple la pour képp kuy ndaw ci réew mi. mais kuy ndaw. boo xoolee trajectoire am. waaw Pape Djibril Fall fi mu jógee. waaw ak fi mu yegg si. waaw bu fi yemoon sax neex. bu fi yemoon mu neex ci njàmbaar. président bienvenue. ci bëggam lu baax. bienvenue kontaan. ci fullaam. Ah. xam nga xam nga lu Rasul lay wax. Ah. nee na yàlla ki mu gën a bëgg mooy kii yóotu yi ngand yi. wallaahi mais yàlla sib na ki naan lii mënuma koo am fii mënuma faa àgg. wallaahi inna allaha yuhibbul maaliyal umuuri. wallaahi waaye wa yakraha safsaafaha. macha allah maa ngi lay ñaanal. Uh-huh. yàlla nañ la wax président de la république allahumma amin ndaw nga jox nga fit ndaw ñëpp. wallaahi nga boole ko fulla. wallaahi boole ko dignité. wallaahi boole ko personnalité. wallaahi boole ko jub. wallaahi bëgg réew mi. Mhm. yàlla dina la ko jox dina la teral de. Uh-huh. yal yàlla sàmmal la ñun ñun bu ñu waxee nit ñi mën nañu foog ni li ñu bokk kër gee tax. Mm-hmm. waaye ku gis nen ni nen a ngi. mais laaj ba pare dañu dëkkoon fii. Mm-hmm. ñu xam ci moom lu bari. Mm-hmm. xam ci moom fulla xam ci moom bëgg Sénégal. xam ci moom bëgg lu baax. xam ci moom fonk ëttu këri diine ji. xam ci moom Pape Djibril foo dem ci ëttu këri diine di nga ko fa fekk. wallaahi muy nit ku baax. am ngërëmal ay waajuram. macha allah kilifa diine yi sopp ko. macha allah lu ko lay ñaanal macha allah nit dafay yóotu yu ngan. macha allah nu ngi lay ñaanal yàlla na nga am cër yu bari ci réew mi. allahumma amin ndax alaaj Pape ñii xëccoo ñëpp réew mi la ñu bëgg. Mm-hmm. Sénégal la ñu bëgg. Mm-hmm. ñun ñii Sénégal la bëgg. Mm-hmm. réew mi la bëgg. yenn saay problème am nga dugg sa biir néeg say ronkoñ tuuru ndax da nga bëgg réew mi am jàmm mais bu nu gisee ñi nga xam ne taxaw nañu pour yëkkati réew mi ñooñu dañ leen di encouragé ñetti at ci ginnaaw kii nag taxaw na pour ñetti at ci ginnaaw chroniqueur la woon ci émission bi. Hmm. waaye ren gan la ci émission bi. ren gan la ci émission bi allah cest à li may wax ni yëpp ay jàngat la pour cette jeunesse qui nous regarde. ñu amaat taxawaay xoolaat ñu hmm. yonent bi hmm. nga jàngaleen àddina macha allah alaaj nag am na fu mu ne woon waaye weesu na ko am na feneen fu mu ne macha allah yal a amin président ñu bàyyi la nga installé merci ci ni nga ñu nangulee doon tey ganuk quartier général seen ay réaction ñu ngi koy xaar hashtag bi QG 9 la wala QG TFM 2024 démb bii moo ñu doon toppal internet bi mais tey Mamadou Ndiaye yaa ñu koy toppal. maa la koy toppal El di la nuyu di la jaajëfal bu baax a baax euh, tey euh, hashtag bi miin nañ ko depuis ci tàmbali bi ñu tàmbalee koor gi ba léegi. QG TFM 2024 wala QG 9. Pape Djibril Fall nag euh, nekk na ko xamante ni ku am présence lool ci réseaux sociaux yi boo xoolee e-réputation mi ñu commencé mi ngi ci réseaux sociaux yëpp mi ngi ci plateforme yi mi ngi Instagram déjà 198 000 followers la am mi ngi euh, X mooy ex euh, Twitter. mi ngi 38 000 moom la bis naan Twitter. 38 <laughs> 000 personnes ñoo koy. moo Musk bi mu meree da ko tuddee X ndax Bijou Ndiaye. <laughs> Twitter. mu ngeen dem ci Twitter. <laughs> ngi noonu Twitter. <laughs> bari boo demee Facebook 227000 followers la fa am. macha euh, ngi ci réseaux sociaux yi mi ngi euh, ba ci am na chaîne YouTube yi nga xamante ni dafay partager ay vidéos mhm. mu nekk koo xamante ni comme li nga ko waxee. Mhm. il a du mérite. vraiment euh, trois ans derrière mu nekkoon fii chroniqueur. Mhm. tey jii mu bokk ci ñi nga xamante ni ñooy yootu réew mi. loolu vraiment ndam la pour groupe Futur Média waaye ndam la pour xale yëpp déjà c'est le plus jeune candidat. 38 ans la mu nekk o xamante ni kenn dootu ko présenté ci Sénégal waay xam naa ci kanam dinañ si xam moom waxtaan bu am solo. voilà et quand il sera président dina toog naan seen président bi c'est mon jeune frère. ah oui <laughs> incha allah juste pour charrier. allez on en profite le temps ñuy installé euh, Pape Djibril Fall je rappelle que euh, tey euh, journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo ñu nar a accompagner bokk na ci Pape Thioune ah. Pape Thioune kii defe naa xamagu leen ko. ci rédaction bi la nekk oui évidemment xam nga ko mais xale yi xamuñu ko c'est un journaliste très pertinent pourquoi on l'a choisi beaucoup de sénégalais bu ñu ko daan seetaan ci yi mu daan def ci site internet yeeg ñoom seen da nga koy gis rek sa xel dem ci Pape Djibril fal voilà tu verras il est très pertinent il tey mu bokk ci équipe bu euh, général bi merci d'être là Pape Thioune Abdoulaye Diédhiou qui est là mon ami Cheikh Diop on les retrouve dans quelques mais d'abord ñu profité ci jox leen seen ay sukkaru koor passe leen ma euh, téléspectateurs nga xamante ni ñooy woote depuis sànq ci de téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 addiya laay joxe ba ci kanam allo allo allo sang bi. kooku kan la. man la Aji. alors pendant ko may wax ak Aji mii ci ligne bi yéen ñi ci topp bu leen raccroché parce que dama ko bëgg a buy pare may jël ñi ci topp 88 628 22 vingt allo. allo sang bi bonheur. dégguma la kooku. allo sang bi bonheur. oh yow yow dama lay teel a libéré may naa la mille gum naa la deux cent mille ah. à tout moment ay wax desatu fi mën naa ci tegaat beneen deux cent mille muy muy muy lan nga bëgg ma may la may naa la deux cent mille loo bëgg ma tegal la ko ci weeru Serigne Babacar lañ nekk weeru Serigne Babacar loo ci dolli ma jël léegi dollil naa la ci piis boo xamante ni moom ngay xottili pour korité ah voilà tegal naa la ci tissu bu cher bu mel comme bu cher bi Bijou Ndiaye sol mu ngi ko jëlee ci Marianne Mendy ci Marianne Mendy lay dem jël ci piis yii nii ah. mën naa jël tam ci piis bu cher bii ma do sol may la ko tegal naa la ci deux cent mille ah ah voilà donc tissu yëpp maa ngi ko jëlee deux KT <laughs> yaa ko moom dégg nga yow yaay maay bonheur moos xale yu bonheur lañ may woowee fii xam naa maay xeetu paa yooyu retraité xale yu jigéen ñi ku la romb tu am nga jaajëf ma nièce comment vas-tu <laughs> <laughs> ni nga tudd aji Adji waaw. Adji d'accord c'est noté donc aji quartier général may na la deux cent mille tegal na la ci tissu boo xamante ni ñoo ngi ko jëlee 2KT Kër Khalifa Textile. jërëjëf. merci d'avoir appelé ñu jëlaat ki topp ci ligne bi ayca nañ ko enchaîner nañu enchaîner woote yi. pour sunu xarit yi nga xamante ni ñoo bëgg ñu jox leen seeni i suukaru koor wala addiya Seydina Mouhamed mën nañ ci teg itam yeneen i xéewal yoo xamante ni mën na tax ngeen euh, kontaan ñu ndokkeel bu baax euh, Cheikh Baye Ndiaye Cheikh Baye Ndiaye nag sunu sang la sunu xarit la Cheikh Baye Ndiaye di président mouvement MLS. Euh, la solution ak coalition Pape Djibril Fall président 2024 Cheikh Baye Ndiaye di ku baax di kilifa goo xamee ni lu mu def ci ñi ko jege euh, dinañu xam ni réew mee tax donc ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar bu baax di ndokkeel tamit euh, imam duudu ak soxnaam Betty Doudou Ndiaye Modi euh, Betty ñu ngi koy ziar bu baax maam Betty jigéenu al Ndiaye kor imam imaam nag maay maay xaritam te xam naa ni kaamilu kaamilu weeru kooram il foog mu dem Euh, il faut mu dem incha allah donc ñu ngi ndokkeel bu baax euh, maam Betty ak euh, borom këram di imam di sunu sang di sunu xarit di sunu di sunu beau frère waaye di nit ku yàlla baaxal di ndokkeel itam Debbo Diop Debbo ak borom këram ñu ngi leen di ziar bu baax ak njabootam yëpp di leen ndokkeel. fàttewuñu itam Mbaye Niang ak soxnaam Aïcha ca dëkk bu ñu naan Sagata ñoom itam dañoo inconditionnel ci quartier général Fati wala Tifa Fati ñu ngi lay ziar bu baax. Euh, di euh, béggee itam sunu xarit yi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun ci télévision Futur Média Maxu Diagne passe partout euh, ñu ngi lay béggee bu baax fàttewuñu fàttewuñu Yacine Pouy Yas Nice na téléspectateurs yi continuer ñu jël leen 88 628 22 22 ku dugaat léegi mën naa ko jox mille ak leneen lu ma ko ciy tegal ça dépendra de lii sa wërsëg ci quartier généralu tey bi 88 628 22 22. wala 88 628 628 60 628 65 65 Ndeye Marie Balla gay xam naa ne yaa ngi préparer mode korité waaw ah, ñoom woo leen rek incha allah dinañ leen invité nga défilé man defatuma yooyu mag laa léegi carte générale rek laay def sama yaram ak samay yax ñoo ma mayatul émission bu ne ma ne fa naam dramé sama yax yi ñoo ñoo ñoo ñoo teniratul mënatuma yàgg cay émission mënatuma cumuler ay poste woo leen ñoom ñu jël la léegi directeur rek laa mën a doon mënatuma doon leneen directeur yu kii ba sax tegg nañ ma fa mais nañ ma far beneen directeur u leneen <laughs> directeur yu nga xam dañuy toog seen bureau yi rek <laughs> fi mu ne nii moom maag maaraajee ñoo execo suñuy yax baaxatul suñuy biir la ñuy jiital toog ci bureau rek di accueillir xale yi foofu la ñu toll léegi mais mënatuma cumuler ay ay ay fonctions non non non ministre auprès de tel ministère ministère <laughs> te wala genre directeur yooyu ma bëgg a nekk bëri na fi de toog bureau rek ba 16h nga ñibbi te naan naa rendre compte Youssou naa rendre compte grand bi te directeur yooyu ñoo gën a gaaw ci grand bi seetaan na la démb te gëj na ñoo gis grand bi xam nga kañ la ñu gëj a gis grand bi Bercy bi Youssou yéegee ci scène bi. te dañoo seen grand bi rek de gëj nañoo gis grand bi man nag genre directeur yooyu laa bëgg ñu nommé ma quand nga xam ne sama bureau rek laay toog tous les jours ba 16h ma dem ñibbi. allez 88 628 22 22 nañu ma passaat ay téléspectateurs ñu jox leen seen i suukaru koor allo allo allo allo allo Ami Ndaw mi nga xamante ni RFM la nekk mu ngi reetaan ci loolu <laughs> te télé loo wax rek ku ko dund da ciy <laughs> allez na am téléspectateur yu dugg léegi nii ñu jox leen yaa ma Diouf madame Bey taalibe Serigne Fallou en tout cas Koulim Dioum merci d'être fidèle ci quartier général bi premier rendez-vous bu ñu leen di jagleel ci euh, télévision alo alo alo donc pendant que yeneen téléspectateurs yi di dugg euh, Sophie ñu ngi ñëw ci yow léegi nii nga wax ñu loo prévoir pour xëdd bi par contre Mado euh, euh, tu as été euh, voir ay sénégalais yoo xamante ni ñu ngi yëngu euh, ci weeru koor gi mais dama fàttali ni Bijou Ndiaye itam def na sujet bu am solo jëm ci amélioration prise en charge euh, des malades euh, par l'État du Sénégal je pense que ce sera une bonne occasion pour ñu interpeller ci président Pape Djibril Fall même bu fekkee on fait signe que élément bi pareegul c'est un sujet quand même tous parce que la avant tout Euh, bonsoir Pape Cheikh bonsoir waa plateau bi ak ñiy seetaan euh, ce sera un plaisir waxtaanee sujet santé parce que boo dee xool suñu santé fii nii Sénégal y a tellement de problèmes côté prise en charge les rendez-vous euh, ordonnances yi paiement bi enfin y a tellement de problèmes que quand il y a une solution qui se présente dañuy kontaan ci présenter ko surtout côté digitalisation wu maladie ak ah. seen dossier médical yu patient yi nga xamante ne Euh, lu ci bëri lu mel ni dem nga hôpital tey nga nekk hypotendu ñu jox la garabu hypertendu mm-hmm. euh, mu indil la problème wala nga doon diabétique ñu jox la loo xam ne am na suukar wala nga am ay allergie sax ñu jox la garab boo xam ne. da nga ko allergie loolu yëpp dafay fiy jógee. ñu bëri feebar na ñu dem de te seen heure dee jotul. ci hôpital ba parce que déjà peut période bi ngay dugg en urgence mënuloo wax. Mm. ànduloo koo xam ne xam na sa dossier médical xam sa jaar-jaar yëpp. xam lan moo la mos a dal alors que tout peut être disponible dans les téléphones portables digitalisé c'est-à-dire que c'est comme euh, mm-hmm. kese la concerné. Mm-hmm. ku ci nekk benn ngay am soo ñëwee ba ñu xas tapé sa ak sa ay information yow fi nga mos a jaar yëpp ci côté santé dafay feeñ yan garab nga allergie lan moo la dal yan antécédent nga amoon. su ko defee prise en charge day gaaw et surtout ban groupe sanguin nga bokk c'est tellement important de digitaliser les informations que bu ñu gisee ni que euh, actuellement ñi ngi ciy dox ay jéego pour euh, installer ko ci Sénégal bi yëpp on est obligé d'en parler pour que nit yi xam ne que ak problème lu mu am am am ñi ngi dox pour avancement am et je pense que ça va régler beaucoup de problèmes côté santé bi su fekkee élément pare nañu teg ko. nous y reviendrons nous y dans nos prochaines éditions. <laughs> Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. D'ailleurs, Mado, tu as été, voir de, braves dames. Loolu itam, je pense que nous y reviendrons dans nos prochaines, éditions. Parce que ces femmes que tu as rencontrées, c'est ay ay ay lañu quand ay jigéenu jàmbaar la Pape Cheikh li ma ci gën a neex ay jigéen yoo xamante dañuy nekk ci ay gox yu reculé. Hmm. Euh, parfois dañuy fàtte tout le temps bu ñuy wax li nga xamante euh, moom moo di lu jëm ci Sénégal xamante ne euh, moom moo di benn dëkk boo xamante ne ginnaaw euh, lii di Tiwaawan boo avancé tuuti rek euh, ci biir gox boobu loolu ngay dugg donc ñu fekk fa ay soxna yoo xamante ne ay soxna yu jàmbaare. Mhm. ñoom itam ñuy def ay wàccaayu koor yu yéeme ñu foog ne Dakar rek la am mais jàmbarte bi nekk foofu mais surtout solidarité. Mhm. bi nga xamante ne moom moo am ci biir gox yooyu nga xamante ne danga fay dem donc du ñàkk beneen yoon dinañ leen ko tegal nit yi mun ci xool ne que vraiment Sénégal dëkku jàmm solidarité là vraiment mu ngi fépp ci fi nga xam ne moom moo di sunu réew effectivement j'ai compris <laughs> love you bonheur love you more ñu euh, xoolaat fan la téléspectateur yi toll pour ñu jox leen seen i sukkaru koor 88 628 22 22 donc pendant que ngeen di daw di dugg si ku dugg léegi nii mën nañ ko jox euh, enveloppe bu duun 200000 300000 400000 lépp rek ngir accompagner leen ci weeru koor gi nga xamante ni ku ñu dimbali nga jël. ci kanam itam euh, euh, euh, dinañu ànd ak sunu invité waaye cant gi wala xasida yi dañ ci ànd ak Modou Mouride Mbaye Modou Mouride Mbaye nag mooy ñuy fas yéene bégal mademoiselle mademoiselle Nescafé mën nga ñu servi café ah ñu ñu remonté wu tuuti ba ba noppi itam café bi li ci neex mooy dafa am bu am jar ak bu amul jar Nescafé bu am jar nag y a rien de tel moi je le conseille en tout cas c'est ce qui me revigore tous les soirs dans cette émission il m'arrive de bien parler français quand même donc ñu ngi euh, leen di conseiller ngeen di ko naan <laughs> Nescafé bi euh, dafa am bu am jar ak bu amul jar euh, ñu gërëm bu baax Nescafé bi nga xamante ni moo ànd ak ñun ci télévision Futur Média jus bi nga xamante ni nag man moom laay remonté au original la tudd voilà Mado yow mi nga xam ne dangay faral di dem ay xew xam naa liñ lay may ay liñ lay may njëkkee ak liñ lay jox ay cër ci xew yi yow at mi 22 xew ngay dem saa yooyu demati xew nag na nga jënd karto bii nii original la tudd foo demati ci marché bi ci grossiste yeeg ñoom seen laaj leen canette bi tudd original yow tamit cest à li ci neex mooy nga bàyyi ci nga nga bàyyi ñam euh, bi ci taat bi naan jus bi ba mu jeex pare di ko kurumtu par ndànk <laughs> y a rien de tel donc ça ça s'appelle original mën ngeen ko euh, am euh, di ci béggal seen i njaboot jus bu ñuy accompagner ci quartier général bi ndox bi nga xamee ni itam moom laay diigalee bijou qui disait que sa euh, revolver revolver xaw ma <laughs> ça désaltère mu ngi tudd au Kayar alors Sophie rapidement balaa ñuy dugg ci waxtaan beeg président Pape Djibril Fall ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi je sais que yow itam ya a beaucoup de partenaires yoo xamante ni ñu ngi ànd ak yow ci côté waañ bi ñu ngi lay nuyu Sophie Ndiaye. maa ngi lay fay Diallo Diéry di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp nag di nuyu mbokk yi xarit di ñuy seetaan di leen jaajëfal rek ci euh, teewlu bi ñu lay teewlu saa su ne euh, di remercier rek sama partenaires yi comme ni nga ko waxee nag ñoo ñuy accompagner fii suñu biir waañ baay euh, déjà nag dañuy commencer rek par remercier rek suñu partenaire bi nga xamante ne ñooy waa Sénico Sénico nag boo ko waxee sa xel dafay dem ci moomeelu réew mi Sénico bañ na ko ba ñu koy dàqantalee Sénico suñu moomeel déjà nag Baye Cheikh ñoom ñu andil ñu benn huile de tournesol bu raffiné boo xamante ne c'est 100 pour cent naturel diwlin gi nag boo koy toggee sa xel dafay dal ndax li nga ko jox rek da dala koy delloo ba mu war sëkk ñoom nag ñu andil ñu warga euh, flécha bi nga xamante ne ni Baye boo lekkee ba pare dafay laaj nag nga defar benn thé bu woyof thé bu woyof boobu nag flécha rek moo la ko mën a jox nga mën a digérer tranquillement toog mën a seetaan sa quartier général nag ci jàmm ak salaam thé boobu nag boo koy defar dafay laaj nga jël nag euh, sucre bi nga xam ne mooy sucria boo waxee sucria rek ñu bari seen xel day dem ci diabétique gi te suukar bi dañu ko defar Baye Cheikh pour ñëpp du pour diabétique yi kese mën nga ci defar sa jus mën nga ci defar sa beignet mën nga ci defar ataaya bi nga xamante ne ni moom laa leen doon expliquer sànq mën nga ci defar tam li nga xam ne mooy laax fondé càkkri lépp looy defar lu am suukar rek bàyyi seex sucria bi da ciy dem bañ na ko ba dañu defaral ay dosettes yu individuelles yoo xamante ne ni booy def ataaya bi ngay utiliser booy defar euh, laax wala càkkri bi ngay utiliser bàyyi mooy sucre bi di euh, sucria grande surface yi fépp foo mënti dem rek bàyyi seex di nga ko fa mën fekk bàyyi bu ñu jógee foofu nag ñu dem ci agroline agroline soo ko waxee sa xel dafay dem ci tomate bi gën tomate bi gën nag mooy tomate lingeer jeeg ju ne ne war nga ko am sa biir waañ di ko toggee ndax ay produits locaux la yoo xamante ne fii ci biir réew mi lañu bayee tamaate ji fii lañ ko defaree te ay doomi réew mi bàyyi seex ñoo ci liggéey ñoom nag ñu àndil ñu rek tomate bi nga xamante ni mooy tomate linguère mu am ci format wu un kilo am format bu 350 grammes am na format bu 750 grammes ndax jéem rek ñu ngi ko doon wax tomate linguère bi li ci gën a neex mooy da ngay toggee tomate bi ba pare po bi mën nga ko utiliser soit nga def ci say kaani wala say poobar wala beneen boîte bi sax pourquoi pas nga def ko ci sa duus ak bàyyi seet def ko potu sangukaay di ko sangoo ñoom nag ñu andil ñu benn kaani it kaani bu neex kaani bi nag xàmmee leen ko pi pika la tudd grande surface yi fépp foo dem mën nga ko fa amee Baye Cheikh ñu andil ñu rek format mooy bu bouteille bu ndaw bi am aussi bu cinq kilo bi nga xamante ne ni mooy ndimbal njaboot moom nag moom ñi nga xam dañuy yëngu ci service traiteur yi daf leen di arranger ndax bu ñu dressé ba pare rek dañ koy sotti ci seen i boîte teg ku jël sale rek daal di koy accompagner ak kaani bi nga xam ne mooy pika pika bi nga xam ne waa agroline ñooñu ko andil bu nu jógee foofu nag la ñuy dem ci savon soxna Mati savon antibactérien la bay cheikh bu baax boo xamante ne ni kuy dugg ci waañ da nga a raxas sa loxo ba mu set boo toggee ba pare raxas sa loxo ba mu set rawatina nag waa euh, soxna Mati andil ñu euh, saabu bi nga xam ne mooy savon soxna Mati ñoom nag dañuy yëngu ci agro alimentaire di def li nga xam ne mooy euh, vente pomme de terre ak oignon lépp loo ci soxla rek boo demee xool waa groupe soxna Mati ñoom dañ la koy fournir étagère mu nekk saabu bu mucc ay boo xamante ni ku ne war na ko am ci sa biir kër bu ñu jógee foofu nag dañuy dem ci waa Sosa Resto euh, sos Sosa Resto moom tamit bu ma ci wax Baye Cheikh euh, moom it fii fanaan moo tax dañ ciy cof rek déjà moom mu andil ñu benn gamme bu large boo xamante ne ni am nañu euh, sauce huître boo xamante ne dafa am jingeer moom danga koy épicé say plat ñu am euh, soja boo xamante ne nii mooy bouteille bu mag bu un litre bi moom waxatuma rek Baye Cheikh dina jox sa euh, togg gu ba pare dina ko dooreel dina ko jox cafka bi nga xamante ne moom nga soxla ñu andil la arôme épicé boo xamante ne ni Baye moomit moom macha allah foo ko def rek Baye Cheikh day relever gu euh, togg bi ñu jugee foofu nag bëggatuñu benn jigéen nekkati di dëbb mbaa ngay sond ñu andil ñu rek euh, paprika en poudre ñu defal ñu ko ci ay boîte yu yem am nañu euh, li nga xam ni mooy origan booy defar sa pizza ngay defar say soos da génnee li nga xamante ne mooy goût bi am na ñu ay en poudre ak li nga xam ne benn épice la bàyyi seex boo xamante ne spécialement pour grillade la booy lakk sa ndawal euh, euh, grillade bi nga xam ne mooy resto euh, ñoom it dañu ko andil bàyyi seex mu nekk ay produits yu noppale da ngay jël rek daal di wis ci sa ndawal wala ci sa jën lépp daal looy mariner waa resto andil nañ ñu ko ñoom ñu leen di jaajëfal bu baax dañ ñuy gunge fii suñu biir waañ daara nag ku ko wax rek xam ni ay produits daara bàyyi seex moom it dafa mucc ayib démb rek defar naa ay tortilla yoo xamante ne ni lépp produit daara bi laa ko defee muy saucisse bi ñoom nag dañu andil saucisse cosaan bi nga xamante ne nii mooy saucisse de bœuf bi am nañu aussi poulet am na ñu nature am na bi nga xamante ne mooy piquant bi am kaani bi grande surface yi fépp foo mënti dem rek di nga ko mën a am foofu muy sa ndogu wala ngay xëdd wala ay petit plat yooy def yoo xamante ni dafay laaj sauce wala nga mën koo farcir waa daara ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Baye Cheikh bu nu jugee foofu tamit ànd nañu ak waa NMA Sanders NMA Sanders yàgg na ñoom ñun te nag moom it comme li may wax rek li ñu moom la NMA Sanders mooy li ñu moom ñoom nag ñu andil ay pat yu mucc ayib am nañu pastami spaghetti am nañu pastami macaroni farine bi nga xam ne nag mooy farine bi gën ngay beñe ngay defar mburu ngay fataaya Baye Cheikh lépp looy def rek ci lu laaj pat farine farima bi moo ci gën bii nag farine pâtissière la mu ngi nii type 45 euh, ñu def ko ci format bu 1 kilo boo xam di nga ko mën a utiliser soo paree fermé waat ko tranquille daal di denc euh, ñu am aussi mu xam sa boo xam ne waa NMA Sanders ñooñu ko andil lépp rek ci ay produits NMA NMA nag nee na pareegul ak euh, ay client am def social ci weeru koor gi ñoom nag dafay dem di fekk ay client am di leen jaajëfal di def social di leen jox ay don ak yëpp ñoom nag ñu am benn page boo xamante ne nii toggantu ak NMA la tudd bu ngeen demee ci internet bi rek di ngeen ko mën a gis loolu waa NMA ñoo ñu ko andil ko aussi ne moom it du dem bàyyi ñu moom it mu andil ñu li nga xam ne mooy leewu euh, meewu laliya bi nga xamante ne maa ngi koy wax démba moom nag dafa neex ci ndékki neex ci wayal gis nga ni am na les concentrés non sucrés am na format individuel bi ak format bi nga xam ne mooy 1 kilo dem rek di nga fa mën a am euh, meewu laliya te démb rek suñu sauce blanche bi ñu doon defee bi ñu doon euh, ñu tortiyaay moom lañu ko defaree Baye Cheikh ñu leen di jaajëfal waa COSYD di ñoom it dañu ñuy jàppale fii suñu biir waañ la vache qui yi boo ko waxee sa xel demit ci euh, sa xel dem ci fromage bi gën fromage bi gën nag mooy gis nga nii rek Baye ñoom nag dañu andil ay différents formats yoo xamante ne nii attention bii nag mooy fromage goût euh, fromage rouge la vache qui rit bii mooy emelta bi bii mooy extra euh, crémeux am na tamit bi nga xam ne mooy l'original lii nag c'est riche en fer riche aussi en vitamine baax ci suñu wérgu yaram suñuy yax ak suñuy doom nañu ci bàyyi xel ndogu yi xëdd yi ak xale yi nga xam ne bu ñuy dem école mën nañ leen ko defaral seen biir saak mu servir leen de goûter bu ma jógee foofu nag Baye Cheikh waa yëlitaare yëlitaare tamit su may wax ci ñoom sama xel dafay dal ndax soo bi gën mooy yëlitaare yëlitaare nag bàyyi seex ñu andil ñu euh, yaawaxtu yu neex yu mucc ayib yoo xamante ni am na différent formats déjà bi mooy yaawaxtu euh, gold bi nga xamante ne nii euh, fruits yëpp la boole am na ananas mangue ak fruit de la passion moom la ñu def ci biir bàyyi seex ñoom na gis nga emballage bi dafa yomb a utiliser am na cuillère ci biir boo ko ubbee nii da ngay ubbi rek daal di jëfandiku. Euh, bii nag Baye Cheikh mooy euh, gold vanille am na tamit caakri boo xamante ne nii prêt à être utilisé la moo nekk nii waa groupe Yëri Taare ñoo ñu ko andil bii tamit Baye Cheikh mooy Yëri Euh, yaourt gold moom la tamit à base de fraise am nañu aussi bi nga xamante ne nii mooy banaan waaye yëli taare ñoom it am nañu siwo yu kilo am na ñu 5 kilo xam naa dinañ ci ñëw ci kanam parce que recette bi ñuy def tey dañuy utiliser li nga xamante ne mooy soow yëli taare Baye Cheikh bu nu jugee foofu tamit ñu ànd ak waa poulet teral poulet teral soo ko waxee rek sa xel dafay dem tamit ci ginaar bi gën ginaar bi gën nag waa sédiment ñoo ñu koy andil muy poulet teral poulet bi nag dañu ko nettoyé ba pare boo koy toggee sa xel dafay dal doo fi nekk di taal gaz di flambé wala di def dara waaye rek jiw citron def tuuti xorom laxas kook moom ba mu set rek daal di piqué togg sa ginaar mu neex am gu bay cheikh waa Helcom Pizza aussi ñoom it dañuy accompagner fii suñu biir waañ ñoomit dañuy def ay plateau sucré comme salé beignet Nutella yi gën ñoom ñoo koy ñoo ñu koy fournir bay cheikh ñu ngi Mariste ñu ngi HLM ñu ngi nag fële di cité douane gis nga texture yu beignet bi rek bay cheikh macha allah beneen affaire la gis nga moo nekk ni li mooy nu Nutella yi bu ñu ñëwaatee ci kanam dinaa leen woon seen plateau salé yi nga xamante ne nii bàyyi ñoom dañu koy def daanaka nag foog naa euh, kii naa ci partenaire yëpp euh, mu des nag électro mu des électroménager bi bàyyi Cheikh Dekakila la la xam nga léegi lan moo xew waaw lu waay am ci këram rek waaw lii sa lii sa mooy mm-hmm. buñ la nee sa micro bi baax na de Dekakila la sa frigo bi baax na de Dekakila la nga ni sa sa sa gazinière bi baax na de dëkk ak laa la. four bi. Dekakila la micro onde bi. Dekakila la ñoom dañ leen ko defal deux ans na. Ah gis nga bii nga gis nii Baye Cheikh. Mhm. four la en même temps micro onde. waaw ah mais voilà lépp Dekakila la. Dekakila la te dafa électrique bu la neexee branché bu la neexee def sa gaz yaay xool booy choisir. Dekakila <laughs> Dekakila rek <laughs> ci kanam nag ñu ñëw. waaw defar xëdd bi nga xamante ne tey moom laay defaral euh, président euh, Pape Djibril. Mhm. déjà moom xam nga moom dafay dox ci li nga xam ne mooy transformation locale. Mhm. da ko soxal. tey nag ma andi benn laaxu araw boo xamante ne ci kanam. Mhm. dinaa ko defar ñu xool ak soowu yéli taare bi am na ñu ko ko rappee ñoom euh, ñi muy àndal ñoom tonton raisin ak ñoom seen bàjjeex. ci kanam buñ dellu si waatee rek ma won leen plat bi nga xamante ne ni moom lañ leen proposé tey di jaajëfal nag sunu waa kër xam naa ñu ngi toog di seetaan tey nag sama yaay sa club bi sama goro waaw yaa Asu Diop tey moo ma habillé ah noonu la de te waa kër ga ñëpp a ngi toog li seetaan fi mu ne nii moom famille Ndiaye ak Konaté aw ma seen fay ñu ngoro la nga baax ñu ngoro la nga baax fi mu ne yow fi nga bëgg ñu woyal bi nga sëy sëy nga gën a baax sëy <laughs> sëy si <laughs> <laughs> aux équipes de Dekakila pour lépp lu ñuy euh, jaay ci wàllu électroménager ñu ngi gërëm tamit waa Damas fi day togg Penda day yónnee bool waaye waa Damas itam dañuy yónnee euh, ay ndogook ay xëdd ñoom seen c'est ce que vous êtes en train de voir euh, ci hall quartier général bi ba ci plateau bi donc ñu ngi gërëm bu baax président Cheikh Seck gërëm tamit waa Damas c'est ce qu'ils font depuis des années guddi gu jot ci quartier général bi ñu xoolaat fan la téléspectateurs yi toll. sukkaru koor yi daf ma soxal ba nga xamee ni ba tax ku dugg rek mën nañu la jox enveloppe bu duun boo xamee ni di nga ci mën a dimbaliku yow ak sa euh, famille merci aux équipes de jus original jus bi tudd original nag pur jus le sans colorant sans conservateur waxuma désaltéré wu rek da nga koy naan rek nekk en forme am na canette boo xamante ni orange la am na mangue am na ananas am na cocktail am na pêche original nag c'est des boissons fruitées euh, pleines de pulpe et faciles à digérer voilà donc original produit la boo xamee ni euh, haute qualité la qui nous vient direct d'Arabie Saoudite faral yaa ngi daanu une distribution exclusive au Sénégal et dans la sous-région Ndukumaan groupe la ñuy gërëm ndax nag ñoom ñoo tax ñu am fi euh, boisson bu toll nii bu dee bëgg ngeen ko jaay wala bëgg ngeen ko am ci seen i boutique ak seen i euh, supermarché mën ngeen contacter directement waa jus bi seen numéro téléphone di 77 644 15 67 77 644 15 67 donc ñu ngi gërëm bu baax waa Ndoukoumane group nga xam ne ñoom ñoo tax jus bi jógee Arabie Saoudite ñu am ko fii ci Sénégal yeneen partenaires yi naa ñëw ci ñoom euh, bu ca kanamee tuuti Cheikh Ngoné ñu ngi lay nuyu merci d'être la tey ñu am gan gu mag di président Pape Djibril Fall Sénégal yëpp di xaarandi euh, ay projet am ak yéene gi mu am ci Sénégal. jërëjëf euh, Pape lu ni mel tax na itam daañu seex ak moom waxtaan bu yaatu woo xamante nii eh, dinañ ñëw ci li nga xam ne moom moo di euh, mbébétam ci réew bu Sénégal ak itam lan moom mën a tax euh, mu rek samp nëndëm ci la jamono mi ngi dagaan baatu askan wi loolu lépp dinañ ci ñëw waaye ma lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay nuyu également Bijou Mamadou maa ngi nuyu aussi Mamadou Pape nit ku baax la. kanti Mado. waaw ah wallaahi loo ko xamal. lu bëri. <laughs> c'est mon amour ah. oui tout à fait. voilà maa ngi nuyu moom frère nuyu grand Ablaye nuyu euh, Pape Djibril ak itam jàngkat yi nuyu également mbokku téléspectateurs yu télévision euh, Futur Média yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy euh, teewlu ci kanam tuuti ñu soobu ci waxtaan wi. mu ngoog ñu nuyu Abdoulaye Diédhiou mon ami Abdoulaye merci d'être là. Euh, tey itam amati nañu kilifa gu mag gu ñu seet si xam nga ren euh, quartier général bi dafa tombeek euh, contexte politique bu yéeme ak bu soxal sénégalais yi ñu ngi jëm ci ay élection président Pape Djibril Fall bokk ci candidat yi nga xamante ni sénégalais yi am nañ ci moom yaakaar bëri na ay ponk yoo xamante ni bëgg nañ ci waxtaan ak moom Abdoulaye. waaw Pape maa ngi lay maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan actuellement télé bi. Euh, comme ni nga koy faral di laajtee ndax euh, client bu bu bu mag la ñu am euh, forcément dinañ wax ne client bu mag la parce que wax nañ ko fi bi muy joor a dugg si am na ko doon wax ne fii la doon nekkoon comme chroniqueur ñu dog si tuuti mu soobu ci politique ginnaaw bi mu toogee ñetti weer bi mu créé les serviteurs fexe na ba nga xamante ne dugg na si assemblée nationale gannaaw gi mu amee cinquante six mille trois cent trois macha allah loolu tax mu nekk honorable ñu ne déedéet waaye mu gën a sóobuwaat ne damay bokk si ñi nga xamante ne ñooy jiite eh, ki nekk candidat pour jiite réew mi. ñu indil ko beneen barrage bi nga xamante ne mooy parrainage mhm. citoyen mu franchir ko toujours 93 candidats la woon mu ñëw mu franchir ko conseil constitutionnel ne ko dëgg la bokk nga si ñi nga xamante ne ñooy ñi war a jongante kuy ndaw war ngaa def ni moom forcément kon kii euh, c'est un bon candidat ah oui <laughs> voilà donc autant de questions yoo xamante ni fas yéene nañ ci waxtaan ak moom bu ca kanamee euh, moom président Pape Djibril Fall mën ngeen commenter yónnee ay questions ci hashtag bi di QG9 lay nuyu moom itam euh, bu yàggul loo rejoindre rédaction euh, bu groupe Futur Média parce que fii du tele bi kese ak rajo bi wala site bi euh, ku fi ne da ngay yaatal fu ne nga am loo fa sànni merci ñu ngi lay gërëm ci teewaay beeg nii nga àndeek ñun tey ci quartier général bi ñu am gan gu mag goo xamante ni tey li ñu fas yéene waxtaan ak moom dina soxal sénégalais yi. jërëjëf sama sama turandoo. waaw. <laughs> en tout cas am naa mbégte bu baax a baax nag tey pour la première fois. Mm-hmm. ma bokk ak yow plateau. yow mi nga xam ni yaay soppe Serigne Fallou. Mm-hmm. waaw mi nga xam ni moo waxoon bàyyam ni yaa raa'iman misla cheikhi mahlan fa la satara mais pape mii teel a ak moom xam ngeen yi ngeen di def itam di ma corrompre di ko jaarale ci waa jooju nga xam ne mooy Serigne Fallou man ku ma mm. corrompre wala nga ndax ma ci moom nangu naa. Ah, mi ngi noonu set <laughs> yow bu la neexee sax nga ñëw toog ci digg bi def émission bi. ndax sëñ Fallou. waaw daanu naa leer ah. en tout cas loolu laay merci dama lay tooñ. parce que c'est tout un plaisir nag. Mm-hmm. vraiment euh, ñu yàgg la suivre aussi. Mm-hmm. Euh, ci ni ngay doxalee mbaax gi ne ci yow macha allah yàlla na borom bi sàmm la. allahumma amiin mi ngi noonu defee di nuyu nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. Ah, Mado ah, di nuyu soxna Bisou Mamadou sama turando. Mm-hmm. bu ko defee. di nuyu sama doyen Abdoulaye nuyu Cheikh aussi mais di nuyu ki nga xam ni mooy euh, Pape Djibril notre candidat. Mhm. Euh, euh, le notre candidat bi nga xam ni moom la ñu invité. Mhm. nga xam ni bari na ñu bari ñoo xam ni dañ ñuy faral di ndróole. Mhm. waaw mais moo am benn mythe nag bu mu dindi. surtout pour ñi nga xam ni mooy ndaw ñi. surtout waaw parce que Pape ñun dafa am lu ñuy naxee. surtout ñu ne ci politique. Mhm. soo waxee dañ naan la vous êtes l' avenir vous êtes l' avenir vous êtes l' avenir lan mooy avenir. Mhm. avenir amul. Mhm. en tout cas bokkul ci philosophie du prophète. parce que dafa wax ni mamada faata wal mu amalo xaybun fa laka saatu la tedd fiha maanaam démb weesu na ñi ko waroon dund dund nañ ko ak lu ci mën a xew dootul ñëwati. bi ci des itam mooy ëllëg kumpa la. kon nag tu n'as que l' instant présent kon dund ko. moom nag mu ñëw. wane ni doon ndaw si teewul am pas-pas hmm. waaye teewul tey itam xam li nga bëgg du hmm. ko defee nag tey ñu war ko dalal hmm. waaye nag ñu war a sëkku waxtaan war a mu mu wax sénégalais yi nga xam ni ñoom la war a dagaan seen baat euh, programme bi nga xam ne moom la leen indil waaye yéene bi nga xam ne am na ko ci réew mi incha allah en tout cas maa ngi nuyu ñëpp Pape euh, sama turandoo waaye nag di nuyu waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñaar laa waaw ñaar laa ciy nuyu rek bu ko defee ñu joxal mu ko ñëpp muy roqee ak Momar Roqeya di ak Momar. ok amul problème. de toute façon naa la booleeg Isma Mbow. voilà donc merci euh, ñu euh, àggali ak euh, sunu téléspectateurs yi ci woote yi pour jël seeni suukaru koor liñ ci toftal léegi nii rek mooy vérifier fan la woote yi toll 88 628 22 22 ci ndimbalu Pape Samba Thiam ak mon ami Apoulaye Laye Makhtar le jeune oustaz. <laughs> parce que yi ñu ngi laajte ban oustaz samay jàngal c'est des oustaz virtuels apulaay daf cee bëgg a bokk mais man pour nga bokk ci ñi may jàngal il faut nga nekk borom xam-xam dëgg dëggi dëggi borom xam-xam <laughs> donc ñu vérifier fu téléspectateurs yi toll euh, pendant que ñuy nuyoog président Pape Djibril Fall président ñu ngi lay nuyu gërëm la ci nii nga ñu nangu nangulee doon ganuk quartier général ku ne xam ne ni amuloo jot bi nga xamee ni euh, dëgmal nga campagne yi ci am yëpp terewul woon nga àggali sa yoon bi nga xamee ni eh, yu bëri am na ci réew mi ci coowak dina am ak du am yow danga nga fa ne ñukk coow li di def ruq ak ruqaat di dugg ci quatre coins zéro coin yu Sénégal ma xam ci dara noppaluwuloo benn yoon diggante dakaar ak yeneen dëkk yi mais tey exceptionnellement nga ni da ngay bàyyi Euh, nemmeeku gi ngay nemmeeku askan wi au fin fond du Sénégal ñëwaat dakaar pour waxtaan ak sénégalais yi programme bi nga xamante ni moom nga leen di proposé dinañ ci ñëw bu ca kanamee tuuti. waaye bëri na ci ay ponk yoo xamante ni dafa soxal sénégalais yi en point. moo tax ñu tànn bis bu mel ni samedi. Euh, pour mën a déglu le plus jeune des candidats lan la ñuy proposé ak fan la ñu bëgg a yóbbu. loolu nag ci kanam lay doon ñu bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun moo xam ci télé yi wala ci téléphone portable yi puisque télévision Futur Média mooy première télé digitale fii ci Sénégal ñu ngi lay nuyu président Pape fal Fall. Euh, asalaamaaleykum Pape Cheikh maa ngi lay delloo nuyoo bi di nuyu sénégalais yi nga xamante ni yëpp ak sénégalaises yi nga xamante ni yëpp ñoo ñuy teewlu ci biir réew mi ak ci bitim réew. Euh, di la sant bu baax euh, cant goo xamante ni am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem tudd nañ léegi sama jeunesse ak sama audace xëy na waaye loolu ku mel ni yow dañ la ci fekk ndax bu ñu xoolee sa parcours ñu bëri sax yenn saa yi ñu jox la âge boo xamante ni eggagoo fa <laughs> ñu bëri xamuñu ne suma moroom nga <laughs> waaw donc mais taxawaay ak audace ak xam li nga bëgg ak fi nga place bi nga am bi nga war a occuper loolu moom moo tax tey nga accomplir li nga accomplir ci temps boo xamante ni bu exceptionnel la ñu ñaan suñu borom mu gën laa dëgëral. gën laa yokk dinaa ci dellusiwaat ci biir waxtaan bi. di gërëm bu baax yàlla suñu borom moom mi nga xamante ni li ñu fi tudd yépp sànq. Euh, teg ko ci ci sunu jëmm ci coobareem la amee ak ci kàttanam ak ci nammeelam kon yàlla amuñu fayam ñaan rek mu dolli ñu ndimbal dolli ñu taxaw ba li ñu am yéene liggéeyal ko ci kaw suuf yépp ñu mën ko liggéey ba bés bu ñuy dajeek moom euh, ñu daje ak ngërëmam kon ngërëmam loolu ak ndimbalam ak tawféexam yàlla na sax dakk di ko def ci ñun. amiin ci barke weeru mag wi nga xamante ni ci la ñuy amal jotaay bi di waxtaane tamit loo xamante ni moo ñu indi ci kaw suuf muy am njëriñ. Mm-hmm. Euh, Pape Cheikh noonu lay gërëmee tamit ñi nga xamante ni yëpp ñoom laa fekk ci plateau bi nga xam kenn ku ci nekk euh, su ma la xoolee suma bopp lay gis ndax ginnaaw bi ñu yàlla boolee ñu bokkoon benn kër boo xamante ni fi la ñuy yëngoo ñoom ñëpp dama bokk ak ñoom génération. loolu nag méngoo lool ak li nga xamante ni moom la Sénégal bëgg fi mu ne. méngoo loolu ak aussi une done boo xamante ni moo am au niveau international mooy jot jàpp jot na ndaw ñi jël seen place euh, di ci jiital soxna Mado moom tam di ko gërëm bu baax di ko sant euh, li Pape li Cheikh Diop wax léegi mooy dëgg nit ku baax la ndax ci circonstance rek bokk na ci li tax nga xam nit te elle na manque jamais une occasion pour euh, placer des mots très bienveillants. Mhm. su fekkee ne jamono indi na rëng-rëng. kon Mado maa ngi lay gërëm bu baax di kontaan ci bokk ak yow plateau bi di nuyu Bijou moom sunu borom moo ko baaxal euh, jamono bu nekk nga gis ko mu nekk ci couche vulnérable yi rawatina pouponnière yi. di ci def liggéey boo xamante ni bu am solo la bu mucc ayib mu occuper temps am yépp daanaka sax léegi saa bu defee vidéo wala yu mel noonu rek xamal ne foofu la jëm kon euh, vraiment maa ngi koy félicité ci loolu di ñaan sunu borom tamit mu gën ko dëgëral di gërëm Mamadou njaay moom ñoo bokk daara ji euh, moom tamit euh, mu nekk un jeune pétri de talent beaucoup d'audace nit ku baax nit ku yiw ku yem tamit xam place am nekk ku jàmbure di ko sant bu baax di ko gërëm moom tamit li mu jàngee ci daara ja di ci rendre hommage Serigne Mansour si borom daara ji fàttewu ko di gërëm Pape Thioune moom tamit ni mu ko waxee léegi mu nekk euh, koo xamante ni gis naa ko bu yàgg euh, xool parcours am muy góor góorlu donc ba loolu yaakaar naa ne moo sabab mu ñëw toog fii tey kon ñuy ñaan sunu borom mu teg ko loxo ba li nekk ci kanamam yëpp mu am ci lu kawe njortam. Mm-hmm. di gërëm bu baax nag suma naataango yi nga xamante ni ñoom. wala léegi sax dafa mel dañ ma génn ci métier bi. <laughs> ci nga bokk à boo xamante ni ñoom laa nara bokkal waxtaan bi. Mhm. muy Abdoulaye Diédhiou. Mhm. Euh, moom tamit ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci pertinence am ak taxawaayam. Euh, di ndokkeel tamit ki nga bàyyi kër ga muy soxna si nga ni cofeelam ci ñun nattable wuñ ko kon madame Diédhiou maa ngi lay nuyu bu baax di gërëm Cheikh aussi moom c'est mon jeune frère euh, moom tamit jàmbaar la am taxawaay. di gërëm Sophie moom tamit euh, jox na ma fi kafe ba tàyyi ak xëdd waaw Sophie donc euh, toujours euh, ak même joie de vivre bi c'est tout un plaisir ma fekk la fi di nuyu tamit suma mbokku daara yi ma fi fekk ñu ñëw ngir matale guddi gi nar fee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nar fee feeñalaat liggéey bi nga xamante ni moom la mag ñi liggéey di gërëm personnel technique bi yépp Pape Cheikh fii moom su ma ñëwee. yaakaar naa ne su ma sañoon kenn ku ci nekk ba ci Cissé vigile bi nekk ci bunt bi. Mm-hmm. suma ma karaa su ma sañoon ci turu ñëpp lay jaar. waaw Khadija maquillage ñoom Adja làmp ñoom ñëpp wax dëgg yàlla damay am kersa sax su amee ñoo xamante ni tudduma leen. di gërëm nag tamit koo xamante ni Bouba Ndour. Mm-hmm. Euh, bu baax ndax sànq bi ma nuyoo rek ci dane ma sa kër nga ñëw. ma ne ko effectivement fii suma kër la. mu nekk moom tamit mën naa wax un jeune. boo xamante ni xam boppam di gérer loo xamante ni yombul ndax mm. télévision képp ku xam programme xam ne lu jafe la mais mu mm-hmm. koy def avec beaucoup de d'audace avec beaucoup d'engagement des fois ma ne sax man xaw ma ban moment ngay am pour noppalu mm-hmm. parce que sa vie c'est la télé tout le mm. temps c'est vraiment quelqu'un boo xamante ni ni mu fonke liggéey ak relation bi mu am ak liggéey lu mucc ayib la mm-hmm. et c'est quelqu'un boo xam boo jëflanteeg moom il a toujours envie de sortir le meilleur de toi ma jëflanteeg moom ñu bokk ay circonstances yu bari mais ma gis ci moom koo xamante ni euh, ku baax ku yiw koo xamante ni tamit euh, ku ku jàmbure tamit mën naa ko waxee noonu. Mm-hmm. donc Bouba vraiment merci su ma nuyoo Bouba aussi foog ma nuyu Youssou Ndour. Mm-hmm. borom kër gi. Mm-hmm. Euh, di ko gërëm un très grand sénégalais maa ngi koy wax wax naa ko ci émission fii ba tey masuma def émission te li ñu doon def c'était des questions politiques. très sensibles. mais Youssou Ndour mooy koo xamante ni du mës a jël téléphone am ne la waxal lii wala bul wax lii. donc pour man loolu bokk na ci li tax ma gën ko naw ni muy bàyyee journaliste bi. wala agent bi de façon générale mu def liggéeyam. fii ñëw nekk këram mu am plein épanouissement. donc euh, avec tout le travail qu'il a fait pour l'Afrique pour le Sénégal et pour le monde. ak partout moom moo ma waxal boppam jour bi ñu demee di jaale ji Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm. mu ne 85 la mës a la la njëkk a rencontré Ousmane Tanor Dieng nee na bi mu koy rencontré boobu Tanor da ne ko daf ko woolu bureau am à l'époque il était le ministre d'État en charge des affaires diplomatiques wala des affaires présidentielles au niveau de du palais nee na jour boobu bi ko Ousmane Tanor Dieng woowee ne ko désormais fooy demati dañ lay signeel këyit goo xamante ni foo wàccati day mel ni président de la république moo fa wàcc mm-hmm. nee boobu ci la njëkk a rencontré Thomas Sankara mm-hmm. Burkina Faso mm-hmm. kon ku yàgg naa représenté Sénégal donc ñuy ñaan suñu borom sàmm ko sàmm njaboot gi mhm. sàmm tamit barab bi nga xam sénégalais yu bare ngi fi xëy mhm. di fi wute luñ sàmmi seen ngor ak seen diine mhm. donc euh, di ko ñaanal yàlla dimbali ko yàlla taxawu ko ba li mu bëgg ci sénégal yépp suñu borom def ko ndax ku bëgg sénégal la am na lu ma ci xam ku bëgg afrique la it am na lu ma ci xam donc Pape Cheikh daal vraiment loolu moo doon euh, waxtaan bi ma bëggoon a euh, li ma bëggoon a tijjee waxtaan bi. Euh, di leen gërëm bu baax di leen sant. mu ngoog kon defe naa jot na pour ñu tàmbali waxtaan bi ak président Pape Djibril Fall. yéen ñi seetaan itam mën ngeen réagir en temps réel ak hashtag bi du QG9 wala QGTFM 2024 déjà depuis cinq sànq Mamadou Ndiaye ñu ngi jot ay réactions tout en vous rappelant que comme information la ak divertissement divertissement bi bokk na ci yi leen di bégal ba ci enveloppe yi may séddale 88 628 22 22 téléphone yi euh, même bu fekkee waxtaan wi xat na ba xat euh, damay euh, autoriser équipe yi ci ginnaaw ñuy jël seeni woote ce qui veut dire que bu ngeen composé même bu ngeen dul dégg seen woote ci en direct bi am na équipe yu nekk ci ginnaaw ñoom itam dañ leen di jël euh, di leen jox seen wàll ci li nga xamee ni mooy sukkaru koor yi donc bu amee ay téléspectateurs yu nekk ci ligne bi euh, Apulaay Pape Samba euh, toog mu Serigne fàllu ak gars yi nekk ci ginnaaw yëpp Eva mademoiselle Kado nu ñu ibil nu ñu leen ibil sunu téléphones yi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 Mamadou Ndiaye balaa ñuy jox. conduite à pour internet yi ñu nuyoog suñu gan gii di euh, Modou Mouride Mbaye moom moo ñu fas yéene amalal cant gi wala cant yi xasida yi fii jolli tey ci moom lay jógeeg ñi mu àndal euh, cheikh bi ñu ngi lay nuyu di la ziar bëgg nañu ci euh, teewaay bi ci quartier général bi ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alaaji Pape Cheikh. Hmm. maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu personnel bi yëpp ñi toog ci plateau bi yëpp. di nuyu alaaji Youssou Ndour mi nga xam ni moo créé lii ba yàlla dogal mu barkeel ba kenn ku nekk am ci wàll mu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex nuyu buuba ak ñi koy jàppale ñëpp waaye di nuyu alaaji Pape Djibril euh, Fall di ko ñaanal suñu borom euh, defal ko tawféex moom sama wëllëre la daan nañu déggante xam nañ gëj a déggante ndax Omar Konte mi nekkoon way nekkal ko fa moom ma boole woon ak moom. muy nit ku baax ku am ambition kon li ngay liggéey yow xam nga ko bu gënee ci yow ci réew mi yàlla nanga ci jot darajee xaadimu rasul te nuyu Mado moom maa ngi ko xàmmee kër Malick Kayre transitaire Touba su ma fay jàng at mu ñot daana fa ñëw wax dëgg yàlla def ay teranga ak ñi fi toog ñëpp Modou Fall yéen ñëpp ñoo ngi leen di seetaan di leen bàyyi xel mhm. Cheikh Diop waaye Birane noo ngi koy beral ci ziar te di ko béggee bu baax di nuyu ñëpp daal. Mhm. Pape Cheikh loolu moo nekkoon nuyoo bi maa ngi lay bégee. Mhm. te di la suivre di la safoo. ndax da nga bëgg sama waaja maak yow sëñ Fallou. waaw looloo tax ma bëgg la. moo tax maa ngi lay baax di nuyu nag képp kuy seetaan tey jii adduna bi kenn du nelaw. Mhm. partout dans la diaspora ñu ngi wàcc émission bi. waaye Père jaw yóbbante na ma ci yow bala maa tàmbali Diaw bu Malick Gakou moom bu yëpp amee grâce à moom ndax moo jaar ci ma Maawa Cissé di sama xarit ñu yàgg diggante daaw la Maawa bëggoon ñu ñëw ci plateau bi fekk ñu tukki bitim réew waaye ren ñu ni ren incha allah dana danañu fekk looloo waral yàlla dimbali ñu ban mën a fekk plateau bi tey kon sant nañu bu baax gërëm nañu jërëjëf kon dañu lay bàyyi nga léemul ñu jotaay bi balaa waxtaan wi tàmbali ñu ndokkeel bu baax président Malick gàkku moom sama mag la sama xarit la sama wóolëre la depuis très longtemps ñu ngi koy ziar bu baax moom it waxuma géejawaay rek waaye daa bëgg Sénégal donc président Malick Gakou ñu ngi koy ziar bu baax di ñaan suñu borom euh, gën koo dëgëral te yàggal taxawaay bi ak ñi mu àndal ci euh, liggéey bu am solo bi nga xam ne ni boobu ba tey moo ngi koy def fii ci Sénégal donc ñu ngi ziar bu baax président Malick gàkku kon euh, ñu bàyyi la Cheikh Modou nga léemul ñu jotaay bi ñu doog a waxtaan bi wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ashabul jannati hum fiha xaalidun ya xayra albariyati salaam خديمك الذي كفيت الملام إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيت الملام صلى عليك أبدا ما سلام في الآل والأصحاب ربنا السلام أسى مقاما دونه كل مقام يا نور كل حبيب سمى وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بك لنور من حباك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سهيا ستمام أنت النبي ورسول والأمام bi kan xiyaadu saalihiina bisimaam lagala daa rabbel wara kulla maraam laka bi yaa sayidi asnaxtiraam jaadal lana baaxin taala an manaam bika fa anta sayidi xayrul anaam نويت سكرو عليك كل عام وكل سهر والكتاب للديام نويت سكره عليك بخلام وخيرها يا ذا جوامع الكلام أديتي خص كرما بلا انصرام يا خائدا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 والحمد لله رب العالمين رب العالمين ni لا يواني من سبيل حق المبين لا يواني من سبيل حق المبين لا يواني من سبيل حق المبين لا يواني من سبيل حق المبين لا يواني من سبيل حق المبين لا يواني من سبب إن الله جاء الله قل الله لا إله إلا الله مبين الله يواني من سبب كل العقب سبب وواو بحق مبين الله يعني من سبب من الله gi jaal xaq lilaq xaqi mubiin laa yu ani min saxbi رجالا قل الحق في سبب يقم باللعان من سبب كتاب بي نرجو من الله رحمة نرجو به دنيا وأخرى من الكرب كتاب بي نرجو من الله رحمة ونرجو به دنيا وأخرى من الكرب رجونا من المولى بخير لا إله إلا الله به في كل دفع وفي جلب رجونا من المولى بخير مطلب مطلب وفزنا به في كل دفع وفي جلبا لك زار كنسا باقيا ستايبا قنا به المولى أسا كل زيد لك زار كنسا باقيا ستايبا قنا به المولى أسا كل زيد لك زار كنزا باقيا ليس لا اله الا الله يقينا به المولى ازا كل زينه لا خساره سماخيا نزة لنا أقنا به مولا أسا كل سينا به وقاو لغزارا كان سنبا هي نزة لنا أقنا به المولى أسا كل سينا به لغزارا كان سنبا هي نزة لنا يقنا به المولى أسا كل سينا يا رسول lillaay la ka saragan san baay ya nisata la la la ina bi il mawla asakun la si dabe la ka saragan san baay san baay لنا يقين به المولى أسى كل سيد مصطفى إذا ما تولى لا إله إلا الله فزنا بما لا خيرنا من سير الجالب waaw yafus na bi madawa ala xirna min seja ya rasulillah xarna bil akhda turan wa khadana ila al akramil wa bi bukhdi wal khurba مديونا وخادنا وخاتم الوهاب في البود والخلق يا رسول الله إذا فرغنا الأهداف هو سقوى لا إله إلا الله وأنلنا القيس بابد الصفات فرقنا الأرض هو سقوى البلاء مصطفى سبيرنا بإيمان هدانا تلاقيا بجاء الذي أمدى أخر غدا سفينا بمن هدانا تلاخيا بجاي لسي أمدا خلقنا تبي مصطفى عليه صلاة الله جل جلاله بأصحابه أنا لأفضل الإسب عليه صلاة الله جل جلاله بأصحابه أنا لأفضل ضلل حزبي والله عليه صلى ما دام المصطفى وما لا ينال المولى أسد صديق سلام الله صفا ومالك المولى بأسبا سبا naan Sëriñ Saliou laa di woo mu far wutu bismillah ci barke borom Tuubaa su woo waaw mu far wutu bismillah ci barke borom Tuubaa Rasuulillah su may lekk mbaa may naan Sëriñ Saliou diwaan farwutu bismillah ci barke borom farwutu bismillah ci barke borom ya rasulillah su may lekk mbaa may naan sëriñ Fallu la diwaan farwutu bismillah ci barke borom woo Sëñ Falilou barke borom sëriñ Fallu baax su may lekk mbaa may naan sëriñ Fallu laa di woo su farudu bismillah ci barke borom Tuubaa su may lekk mbaa may naan sëriñ Fallu laa di woo su farudu bismillah ci barke borom ya rasulillah maqamam sëriñ Tuubaa amul xawsu bul ko lay yaxlaxu ma la لا تخلمون عيري توبا مقام سيري توبا خزبونكم ويغلقا ولا لا تخلمون سيري توبا واو مقام سيري توبا خزبونكم ويغلق ما لا تخلمون سيري توبا مقام سيري توبا amul xawus buñ ko may yow loxo maala téléphone ay borom Touba mu ngoog loolu mooy léemaayu jotaay bi ñu sant bu baax euh, Cheikh Modou Mourid Mbaye ci lii nga ñu euh, ubbilee tey jotaay bi euh, bu leen fàtte seen sukkaru koor yi dañuy continuer di ko jox pendant que ñuy waxtaan mën nañu dem ci ginnaaw bu ko defee téléspectateur bu dugg rek ñu jox ko Euh, wàllam ci enveloppe yi ñuy séddale hashtag bi QGTFM le 2024 wala QG9 Mamadou Ndiaye. QGTFM 2024 wala QG9 mooy euh, hashtag bi nga xam ne fi ngeen mën a jaar ñu ngi ci live Facebook ñu ngi YouTube. ñi ngi eh, X boo ci boolee hashtag bi incha allah lépp luy question déjà commencé nañ depuis bi ñu annoncé que ni Pape Djibril Fall tey euh, moom la ñu invité honorable député wala président Pape Djibril Fall. Mm. internautes yaa ngi réagir déjà euh, première question bi nag Pape naa la ko jëm léegi nii ci internautes yi sànq ba moom la ñuy laajte. ah mais internautes yi ñoom ñoo ñëw deuxième partie. <laughs> ñoom ñoom deuxième partie dafa bay mag yoo xamante ni dañoo seen i kër di ay a <laughs> ñoom ñoo war a vas-y. mais dooral leen seen première question kon yéen amul problème. non non non yow yéen yéen da ragal internet yi amul problème. <laughs> bàyyil yéen comme yaa ngi ci yéen a ngi ci ñoom rek. bàyyil ñu dem ba ci ba ñëwaat. non non garaaw bàyyi ñu dem ba ñëwaat. non waxal waxal waxal jël ko. ñoom ñi ci ëpp tey dañ ne dañ doon dañ ko doon laaj lan ban président la war a mën a doon njëkk a njëkk a def bu ñëwee nekk président incha allah lan moo nar a nekk style de management maanaam gestion du pouvoir wala en solo wala en concertation <laughs> il pose de ces questions les internautes ah. jërëjëf euh, Mamadou ci laaj boobu nga xamante ni laaj bu am solo la rawatina sunu réew ni ñu concevoir euh, sunu régime présidentiel nga xamante ni am na sax ñuy wax ne dañu am hypertrophie maanaam dafa ëpp dayoo doole ji dafa ëpp waaye comme li wax toujours euh, ñun président bi ñu bëgg a doon mooy président boo xamante ni fépp fu sénégalais nekk. am xam-xam xarañ ak foo mën a bokk dinañ la jëli boole la ci li nga xamante ni moom mooy ni ñu bëgg a tabaxe suñu réew ak ni nga xamante ni noonu lañ ko bëgg a yore kon vraiment euh, maa ngi dalal euh, xelu internautes yi di leen wax ne leen même bu fekkee ne fonction bu bu bu bu bu xaw a euh, buy laaj benn solitude la ndax ci science politique dañuy wax ne am na lu ñu tuddee la solitude constitutionnelle mooy bu jëlee boo jëlee nag avis gars yëpp ba pare conseillers yëpp ba pare ñu joxe seen xam-xam joxe seen xalaat big bi moom fukki nit duñ ko téye di signé kenn rek koy téyee di signé loolu mooy solitude constitutionnelle waaye loolu fin du processus la li ko jiitu yëpp da ngay laaj ay borom xam-xam yoo xamante ni ñooy nekk à ta disposition te loolu nga xamante ni noonu lañ ko bëgg a defee moom la adduna bi yëpp réew yi suqaliku yëpp loolu la ñuy def ñoo ngi wax ne boo jëlee ku mel ni tey Mouhamed Sis nga xamante ni soriwul. day wax ne su bëggee def dara danaan ban marocain moo ko dàq ci àdduna bi ñu ne ko manga nga Ohio wala ma nga Sénégal wala ma nga fi gën a sori ci àdduna bi mu ne bu fa fanaan ak kum mën a doon na ñëw tey ñu boole ko ci liggéey bi tabax li nga xamante ni moom mooy seen dëkk ñun démarche boobu lañ mën a am. Mhm. ak koo mën a doon donte da nga ñu combattre ba ñu yegg si su ñu gisee ne xam-xam baa ngi ci yow xarañteef baa ngi ci yow bëgg réew mi moo ngi ci yow yitte ji am na ba mu mat sëkk. su boobaa dinañ la jëli boole la ci li nga xamante ni moom mooy nekk la gestion du pouvoir donc ñun vraiment président bi ñu bëggoon mooy président bi méngoog réewum Sénégal mooy président boo xamante ni euh, xam day xam ne réew mi diisoo ak waxtaan moom moo ko lal te diisoo boobu ak waxtaan boobu moom la ñu màndargal tey ba ci sunu émission bi waxtaane lépp mën nañ ko waxtaane li ci am solo rek mooy di ci jiital teggin di ci jiital yitte di ci jiital xam-xam di ci jiital l'intérêt général lenn rek laa dul négocier Mamadou mooy l'intérêt général à chaque fois bu mbir taxawee ñaari question rek laay laaj suma bopp de quoi s'agit-il lépp lu may def bëgg naa koo xam beneen bi mooy où se trouve l'intérêt général intérêt général daal mooy li nga xamante ni su ma xëyee ba ba may dallu ji loolu rek laay poursuivre moom laay xool ndaxte loolu moom mooy tax ñu tabb la fii ma toog tey nekk candidat à la présidentielle ñi nga xamante ni yëpp ñoo ma ñoo ñoo bëggoon loolu am ñu yëkkati seen i carte d'identité jox ñu ko pour ñu nekk candidat ñoom dañoo njort ne ñun intérêt général lekk la ñuy défendre. fii ma nekk tamit toog fi amaale beneen casquette muy honorable député nekk assemblée nationale dañoo njort ne intérêt général lekk moo tax tey je suis très fier. ma wax ne bokk naa ci député ñemewu maa wax man maay député boo xamante ni waaye bokk naa ci député bi nga xamante ni mosuma tudd sama turu parti fële ci assemblée nationale parce que keroog bi ñu ma falee def ma député la noppee appartenir à un parti loolu moo tax bokk na ci réforme yi nga xamante ni dinañ ko def mooy bu ñu faloon ci 24 mars 2024 président de la république lii nga xamante ni moom la ñuy jiite mooy le parti les serviteurs ñun dootuñu ko diriger dootuñu nekk président du parti loolu mooy les premières réformes ndaxte bu su boobaa tu ne plus le président d'un camp ou d'un clan man Pape Djibril Fall bëgguma nekk président ni d'un camp ni d'un clan dama bëgg nekk le président de la République du Sénégal loolu moo tax bi élection législative bi jàllee fépp fu ma dem dama naan ñëpp laa bëgg a dajeel ñëpp laa bëgg a waxal bëgguma xam ku ma faral ak ku ma faralut képp ku ma dajeel dinaa jàpp ne sa carte yaa ma ko jox dinaa jàpp ne yow mii ci ñi ma parrainé nga bokk te ba tey dox doxin boobu laay dox ci campagne bi képp ku ma gis dinaa la nuyu waxtaan ak yow jàpp ne ci njortu ne ci ñooñu ma pare ne yow ci nga bokk loolu moo tax franchement ñun fantasiro yi am ci politique ci Sénégal ak euh, yi nga xamante ni yëpp seetlu nañ ko fii ba tey réew mi ñun Mamadou dañoo ñëw pour soppi ko pour changer ko sinon amul sens bu fekkee ne danga nga nar a ñëw def la même chose que les amul sens donc dañuy jàng ci li nga xamante ni moom moo weesu pour bu ñu ñëwee soppi li nga xamante ni moom moo fi nekk dinaa si dellu ci biir waxtaan bi. mu ngoog donc loolu mooy euh, première réponse ci question yi nga xamante ni mu ngi jógee ci internautes yi di ci des nag dañu koy bàyyeek euh, journaliste yi Abdoulaye ñu tàmbali euh, question yu am solo yi nga xamante ni bëgg nañu ko jébbal président Pape Djibril Fall. waaw ñu suñu gan bi buñ si buñ si jógee. defe naa première laaj bi ñu ko bi ñu ko bëgg a laaj déjà euh, mooy ana nan la dundee euh, transformation wala mutation boobu. Mm. jógee ci euh, chroniqueur bu ñëpp xam. nekk tey ci candidat présidentiel su ma juumul mooy ki gën a le plus jeune candidat à une élection présidentielle déjà moom nan la ko dundee kii boobu mutation boobu. wax naa ko sànq ci sama njëlbeen wax. dañ ci sant bu baax sunu borom te taxawaay bu ñu mës amit loolu rek lañ ciy jublu loolu lañ ciy wut mooy bëgg am njëriñ rek bëgg amal njëriñ nit ñi loolu moo tax daanaka sentiruñ changement bu metti ci sunu dund ni doon dundee noonu lañu continuer di dunde sunu engagement la ñu jox rek beneen dimension beneen orientation ci coobare yàlla ak bëgg-bëggu sénégalais yi waaye daanaka li ci soppeeku ci suñ dundin daanaka ñi nga xamante ni yëpp ñoom lay àndal guddeeg bëccëg subaak ngoon xam nañu ko euh, ñi ñu doon àndal tamit ñoom la ñu wëy di àndal ñoom ñoo nekk fii jàkkaarloo ak ñun gunge ñu tey ci barab bi nga xamante ni fi lañ ñëw muy télévision Futur Média pour waxtaan donc vraiment Abdoulaye sentiruñ mutation euh, bu bu bu mag bu bu fekkee ne dinañ si dellu saat ci biir waxtaan bi ki ñu doon fi ñu jóge ak ci li ñu nekkoon euh, ba yàlla indiwoon ñu ñuy def ay waxtaan di ko seq ak Sénégal yi ajjuma bu jot di waxtaan waxtaane li nga xamante ni moom mooy seen euh, ay ay ay ay soxla seen ay jàmbat ba loolu moo tax seen xel dal ci ñun ba bi ñu nee dañoo bëgg a dem parlement de la du Sénégal ñu yóbbu ñu fa ba tey jii ñu njort ne yéene boobu ñu amoon la ñu fas yéene mottali ci 24 mars pour yóbbu ñu palais de la République incha allah. waaw dë dëgg nañ la defe naa su ma juumalee Mbàkke la. Mm-hmm. Euh, nga ni euh, sa engagement. Mm-hmm. da nga bëgg a def. Euh, porter le combat de la prise en charge euh, du mal-être de la jeunesse. Mm. du mal-être de la jeunesse. Mm. ñu bëri nag di laajte parce que euh, point le genre fourre-tout la. Mm. xaw na large trop. ñu buggoon déjà nga wax ñu lan nga doon euh, dëgg par par loolu surtout que. Euh, da nga jàpp ne yow loolu dafa bokk la jeunesse dafa bokk ci say priorité absolue. et que quelque part c'est même le sens de votre engagement politique. Euh, dëgg la question bu am solo nga laaj Abdoulaye Euh, loolu bokk na ci li tax xam nga métier journaliste dafa nekk métier boo xamante ni bu am solo la boo xoolee fi mu ne àdduna bi yëpp li koy doxal bokk na ci information euh, ci weeru koor lañ nekk boo gisee yonent bi salaatu wasalaam à l'instar de tous les autres prophètes lenn la ñuy jiitoon nit ñi ba mën a taxaw ba mën a amee la décision mooy information kon ñun jaar-jaar bi nga xamante ni jaar nañ ci daf ñu permettre ñu xam lu bari di jànkonteeg lu bari nekk aussi mur de lamentation di waxtaan ak ndaw ñi di daje ak ñoom di wër Sénégal di daje ak ñoom di waxtaan ak ñoom gis ne ndaw ñi seen mal-être tey soxlaatul dessin lu metti la loo xamante ni ñëpp a ngi koy dund ñàkk yaakaar boo xamante ni ci réew mi foo ko takk weesu na ko ñu ci bari ci ñoom tey euh, pour ñu am jàng-jàng bu bënn sax jafe-jafe la pour njàng mi mën a taxaw su jàng bi bënnee pour nga mën a am foo liggéeyee loo xamante ni mën nga ci sàmm effectivement sa ngor ak sa diine c'est tout un problème dinaa ci si siwaat ci biir programme bi euh, ba loolu moo waral tey comme niñ koy waxee jamono ji yëpp nga xamante ni léegi y'a un consensus sur le diagnostic kenn weddeetu ko mooy tey euh, Abdoulaye sunu sunu géej gi tey li ci tëdd ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll bërki démb laa jógee bari ñi ma leen di nuyu bu baax Euh, dem naa ci kër goo xamante ni moom mooy Wadden am na lu toll ci ñaari téeméeri nit yu fa jóge deux cent benn kër bi rek benn kër bi dugg naa ci kër goo xamante ni kër googu rek fukki nit ak juróom jóge nañ fa. fukki nit ak juróom ba fi mu ne nii réer kenn xamul fu ñu nekk amuñu ci benn information ñi naan ña nga Maroc ñi naan ndax wuy ji nañ seen borom. ñoo ngi ñaan yàlla ñu retrouver leen waaye ñoom fi mu ne ña nga ca njàqare boo xamante ni foo ko takk weesu na ko gisuñu ko xam ñoom keroog bi ma fa demee lañ ne ma yaa fi doog a ñëw ci autorité boo xamante ni am na kàddu pour ñu dégg ko kon loolu mal être bi nga jël ko ci ñiy yëngu ci dara tey même ñi am métier sax pour ñu mën a euh, jeexal waxuma la sax fin du mois ëpp naa wax waaye fukki fan yu njëkk yi sax ñi ñiy fayeeku pour ñu jeexal fukki fan yu njëkk yi problème la pour nga am kër ci dellu siwaat problème la mooy le service public du pour nga am oto bu baax boo mën a dawal problème la pour nga mën a dimbali say wayjur problème la pour nga mën a tabax kër problème la te loolu yëpp ñun ñu jàpp ne réew mi on a suffisamment de ressources yoo xamante ni mën na permettre jeune Sénégal mu mën a dund mën a màgge Sénégal mën a nga xam bés buy tukki moom mooy tànn ndax day jàngi parce que àdduna aussi tukki aussi ak àdduna ñoo ànd am na ñoo xamante ni mën nga choisir tukki ngir xam leneen ngir découvrir leneen waaye jafe-jafe ci sa réew ak ñàkk yaakaar ci sa réew jàpp nañ ne warta pousser nit ki war warul yóbbu nit mu tukki bu demee ba yóbbu nit mu tukki ñi yor ñoom ñoo war a interroger seen yorin kon loolu moom moo tax ñu jàpp ne réew mi am na lépp lim manqué mooy yërmande ak loxo yu sel yoo xamante ni dina am bon gouvernance ñu moytu guerre ak euh, fépp foo xamante ni war nañ fa taxawu ndaw ba mu juddoo nga xamante ni ñun waxuñu sax éducation ñun on pointe même la petite enfance dinaa si dellu ci biir programme bi la petite enfance l'éducation la santé la sécurité ba nag ñu poser le débat maintenant sur la république république suñ ko waxee cheikh mooy la chose publique mooy le service publique loolu mooy république mooy le service publique te tey nañu nat ñun ñu toog ci plateau bi nañu waxtaanee le l' du service public nañ ko waxtaanee. le service public du logement. Cheikh jafe-jafe pour am kër tey yaakaar naa ne foo ko hmm. takk weesu na c' est un vrai problème tey jii location daanaka moo tere ñu bari siiw tey. Hmm. cher na foo ko takk weesu na ko. te dina si ñëw dinaa ñëwaat wax ne mën nañoo am un service public du logement bu mucc ayib permettre à des ci salaire ba ñuy am li ma bëgg mooy salaire yi yokk. li ma bëgg mooy salaire yi mën a préserver dignité doomu aadama boo gisee SMIC loolu moo tax à un de l'histoire de l'humanité euh, conseil conseil économique social et conseil conseil économique social bu la génne mooy le SMIC mooy salaire minimum salaire minimum boo ko déggee mooy ndax nit kii lii ñu koy jox dina tax bu ci feebaree mën a faju dina ci mën a am ku ko yóbbu service transport bu mucc ayib dinañ ko ci gunge dina ci mën a am kër gu mucc ayib dina ci mën a am bu dee ñoom ci tubaab yi bu seddee ndax dinga nga mën a am lu la tàngal bu tàngee ndax di nga mën a am lu la seddal loolu mooy la dignité de l'individu loolu moo tax l'humain au cœur loolu c'est ça qui reste ñun sunu gët foofu lañ ko teg mooy sunu vision doomu lumin au cœur nga xam nan la ñuy def ba doomu aadama mën a suqaliku mën a yëg boppam mën a yokk ba yëg ko mën a xam boppam loolu mooy ambition immatérielle ambition matérielle bi ci loxo bi ambition immatérielle bi mooy lépp li nga xamante dina permettre doomu aadama bi mu xam boppam euh, xam li nga xamante ni moom la suñu borom bëgg ci moom xam li nga xamante ni moom la réewam di xaar ci moom ba mën a dund dund gu mucc ayib ci kaw suuf. d'accord euh, euh, Pape ñu ñëw ci leneen sànq Abdoulaye bi nga koy wax dugg na Bawol daanaka waxtaanee na kaddu askan yu nga daan dagaan ca diwaan bu Mbacké. Euh, yaa ngi wax ne Touba euh, bëgg nga koo def ab ëpp ginnaaw itam bu ñu xoolee sa programme nga daal di koy dëxañ ci 63 pages. Mhm. lan moo tax nga wax loolu. Mhm. est-ce que également li nga wax euh, ci wàllu taxawaay ak itam lenn ci lu ñu war a mën a joyanti ci réew mi tax na ci sa programme nga ñëw ci li nga xam ne moom moo di les grands domaines régaliens pour redresser un tout petit li nga xam ne moom moo di la barre. jërëjëf Cheikh ci laaj bi bu fekkee ne laaj bu njëkk bi ndax démb foofu laa jógee ma ci profité d'ailleurs Pape Cheikh wax na ko léegi. Euh, fonk sénégalais yi ak naw liggéey bi ngeen di def rawatina Pape Cheikh démb daanaka bi ñu may informer émission bi il faisait deux heures vingt très tard waaw très fekk d'ailleurs tey ndax heure bi démb maa ngi Mbàkke nekkul woon sax Dakar waaw voilà mm. Touba ma fekk maa ngi Mbàkke heure bi di def karaban mm. di daje ak population bu Mbàkke di leen gërëm bu baax euh, di leen sant ci nit ñu teeroo démb ak nit ñu mm. gungee li nga wax noonu dëgg la Euh, waaw ma ma leen di baalu àq parce que tey Pape dama jëloon une liste bu gudd boo xam ñoo xam dama leen waroon a gis tey. Uh-huh. te démb dama mujj dellu si Dakar. kon maa ngi leen di baalu àq ñëpp ñi nga xamante ni ñoom lañu waroon a gisanteel euh, di leen wax ne leen incha allah dinañ ko def ci beneen jamono. Euh, lii yàlla dogal ñu waroon a ñëw ngir mën a amee jotaay bi waxtaan ak sénégalais yëpp loolu moom moo tax ñu écourté ñëw bi waaye ñoo ngi leen di sant bu baax leen gërëm ci ni ngeen ñu gungee démb ci. Euh, li nga xamante ni moom mooy liggéey bi ñu fa doon def euh, wax nga Touba léegi xam nga Touba dafa nekk la deuxième grande agglomération du Sénégal maanaam boo jëlee tey ci wàllu doomu aadama fu ñuy daje ci biir réew mi bu weesoo dakaar Touba moom moo ci topp Touba nekk tamit benn euh, benn barab donc fu nit ñu takku macha allah di daje faw ñuy consommer donc Touba nekk foo xamante ni tey képp kuy jënd ak jaay da nga fay yóbbu. luy jaayu ci benn dimension bu am solo mais Touba aussi am ay ndaw yoo xamante ni tey bu ñu jàngee ba pare dañu soxla ñu tàggat li may wax ni c'est à l'instar du pays mais dama ne comme deuxième grande agglomération la soo ma laajoon ci ndakaar tamit loolu laa la ciy tontu ci vocation bu ñu ko wax parce que jàpp naa ne dëkk day am vocation loolu moom moo tax loolu moo tax ñu ne Touba tey au-delà du caractère sacré bi mu am nga xamante ni borom dafa wax ne te Cheikh Mouhamadoul Bachir indi ko ci Minanu Baaxil Xadim daal di wax ne Serigne Touba moo wax ne radiyallahu taala anhu ne Touba ak Daaru Salaam li tax ñu gënal ma ci yeneen dëkk yépp mooy mu ne wutuma ko ngir dabi cosaan wutuma ko it ngir wuti ay tool yu ma bayee dama ko sàkk ngir mu doon dëkk boo xamante ni dañ fay jaamu suñu borom ak wéetal ko mais xam nga bépp dëkk boo xamante ni nit ña fa nekk dañoo bëgg a jaamu yàlla ci ni ñu ko bëggee ak wéetal ko ni ñu ko bëggee loolu yaatu loolu xajul ci émission bi su boobaa faaw ñu gunge leen en terme d' infrastructure tey jii gis nga màggal gi passé kenn mënta dem kenn mënta dëkk ndax mbënn mi gis nga ko. kenn mënul dem kenn mënul dëkk ndax mbënn mi te la fay daje ci doomu aadama bari na bari waay boo xamante waxuma la sax ña fa dëkk donc ndaw ñi ñu war leen a taxawu war leen a dimbali ñuy def commerce nekk dans le secteur informel ñu war leen a accompagner war leen a dimbali war leen a taxawu ñu war a bénéficier wu aussi ci lépp loo xamante ni état da ko yëkkati mais surtout jigéen ñi. jigéen ñi foofu seen activité cheikh xolli gerte la ak cuub ak nas ay sër yoo xamante ni daanaka da ngay xolli ay saaku seen boo demee bu ñu la wanee seen loxo yëpp daanaka jéggi na dayo nga xamante ni loolu moom mooy seen liggéey donc noonu ñu bëgg a taxawoo jigéenu Touba noonu la ñu bëgg a taxawoo jigéenu Sénégal yëpp ba nga xamante ni réew mi jigéen dootu fi sonnati donc ñun loolu mooy suñu objectif mooy suñu yéene moo tax l'humain doomu aadama ak dignitéem ak xam ak yellee fam moo nekk au cœur de notre préoccupation loolu rek lañuy ñuy teg gët waaw loolu rek loolu moo tax fii ci plateau bi daan nañ fi toog di naqarlu li nga xamante ni moom mooy la surpopulation carcérale mooy ñi nga xamante ni tey buñ duggee ci kaso dinañ fa gis nga fan yi te yàlla jox histoire jox nañu raison malheureusement bi ñii ñu tëjoon génne témoignage yi ñu def képp koo xamante ni sa yaram day daw xam nga ne euh, lii jekkul sax ci mala waxuma laa doomu aadama boo jëlee rëbës bii tey xam nga ne ay fas lañ fa doon denc tey ñu jël ko di ko di fa denc ay nit loolu Sénégal war na ko weesu ci taxawu doomu aadama ci àqam ak yelleefam donc loolu moo tax Mbàkke ñu am fa discours boobu démb nan la ñuy def ba nit ñi mën a am ndox mu sell bu ñu mën a naan nan ndaxte lu bari ci ndox mi ñuy naan wala ci lekk gi ñuy lekk dinaa si dellusiwaat ci autosuffisance alimentaire bi suñ ci duggee loolu moom mooy waral tey feebar yu bari di dal di di ñu dal loolu moo tax benn bés maa ngi wax ne amuñu sax ministère de la santé au Sénégal ministère de la maladie la am ndax prévention bi ci boppam moom moo tum la prévention te ci prévention la ñu war a focus ba nga xamante ni kenn du soxla dem hôpital mm. nan la ñuy def ba nit ñi mën a lekk lu sell nan la ñuy def te loolu mënta am lu dul li nga bay ngay dundee ndaxte bu fekkee ne da ngay importer ki xam ne da ngay da ngay jël si li nga bëgg dundee ci moom moom yitteem dootul nekk li ngay dundee sell yitteem mooy mu bari ba mu mën ko dundee kon euh, li ñu demoon Mbàkke démb loolu lañ fa doon wax ñoom it ñu dégguñu fas yéene ñoo gunge. ñuy ñaan nag ñu mottali yéene le 24 mars. Mm-hmm. dénk ñu li nga xamante ni moom mooy réew mi. ngir ñu mën ko soppi ndax ni ñu sonn mais pap lan mooy sa ay motivation mm-hmm. ba nga wax ne ba nga war a euh, euh, dëggal sa bopp ne danga nga war a samp sa nënd ci élection présidentielle ndax bu ñuy fàttaliku il y a trois ans fi nga nekkoon chroniqueur. Euh, doon euh, bokk ci émission yu bari jàkkaarloo également bokk na ci li la lancé à chaque fois li nga doon euh, xeexal askan wi ba ndaw ñi donc jox la bopp ndaw ñooñee également bu ñuy fàttaliku am na ñenn ci ñoom ñoo xamante ni jot nañ laa xarab bu ñuy fàttaliku la xewoon ca place de la nation ndax tey lu ni mel ba tey dal na sa xel nga war a mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy laaj réew mi. xam nga man ndaw yi Sénégal. Mm-hmm. dama am ak ñoom relation bu particulière parce que wax ngeen ko léegi 38 ans laa am ren fanweeri at ak juróom-ñett euh, kon ci ñoom laa bokk ndaw ñëpp suma njaboot lañ ak fuñ mën a bokk. Mhm. ak kuñ mën a doon ci man lañu bokk doonte juum nañu ci seen appréciation ak man. est-ce que juum nañu. dama ne donte juum nañu. Mhm. ci seen appréciation ak man. Euh, bu fekkee ne am na lenn ci ñoom laa wax parce que ay ndaw rek la ñuy àndal liggéey bi ñuy def yëpp ay ndaw ko téye mm. gis nga tey ñi ñu àndal fii gis nga fu ñu dem ay ndaw rek ñoom ñoo ñuy gàttandu mm. euh, ndax li ñuy wax ñun mooy dañoo ñëw ngir dundalaat yaakaaru ndaw ñi waaye dalal xelu mag ñi te yàlla ñu ciy defal sutura 268 personnes ñoo bëggoon a nekk candidat la présidentielle ñu ñu filtré ba 93 mm-hmm. tey ñaata lañ 19 mm-hmm. ñu bokk ci kon Euh, bu fekkoon ne ku ñu xarab nga am résultat boobu léegi xarab am njëriñ. <laughs> dëgg la de. kon ndaw ñi ñoo ngi ñuy gunge bu baax ci liggéey bi te xam nañ ne ñoom rek ñoo ñu yitteel. Pape jëlal ñoom rek ñoo ñu yitteel donc. ci seen appréciation ci yow lu nga euh, utiliser partout dañoo juum. dama ne donte. waaw donte waaw. waaw donc dama nuancé. waaw waaw ne sax loolu la xam nga man li ma gëm mooy yéene bu rëy rek. waaw nit mën nga koo yéene euh, ànd ak moom mais mën nga juum ci li nga xalaat ne loolu moo am te amut wala tamit mën nga am keneen koo bëgg a gën a yéene donc loolu yëpp mais dama ne loolu yëpp comme ban comme ban genre xalaat dama ne mën nga xalaat ne li nga jàpp te loolu xam nga njort mën naa dugal nit ci lu ne mën nga njort ci nit loo xamante ni loolu nekkul plus ngay dox tey jii bari na ku may dajal koo xamante ni li may gën a def mooy ne ma maa ngi jéggalu bal ma àq lan nga jàpp ni moom la ñu yor ci yow lan. xaw ma mën nga jàpp mën nañ jàpp parce que tamit xam nga Sénégal tamit réew mii dafa xaw a yéeme lool. Mhm. da ngay jóg am ambition. di dox lu nekk ñu tuddee la ko. lu nekk ñu tuddee la ko. Mhm. lu nekk ñu wax la ko. Mhm. waaye li am solo rek mooy nga dëgëral sa dox. xam li nga bëgg xam ni nga koy wutee. dëgmal. ba pare nga sellal sa pas-pas sa digganteeg sa borom. <laughs> ñun ay way gëm lañ. te ngëm dafa am lu muy dimbalee nit nit foog mu am gëm-gëm man bi sama pas-pas sellee ci ma xam ne man dama jóg ngir dimbali askanu Sénégal ngir taxawu askanu Sénégal boobu nag la sama xel dal ma xam ne li ñuy wut yàlla suñu borom mën nañu ko defal donc ndaw ñi ñuy wax noonu man kenn mënuta fexe ba ma am beneen bët xool ndaw yi Sénégal beneen bët bu dul bëtu yërmande kenn mënut a fexe leneen. kenn mënut a fexe. ba ma xool magi Sénégal lu dul bëtu ñeewant ndax léegi ñi am képp ku am xel jaaxle nga donc ñun mënuñoo jóg nag ngir taxawu loolu euh, su boobaa la ñuy def nag su loolu amee mooy la sallallahu taala alayhi wa sallam defoon ca Taïf donte juum nañ waaye ñoo ngi leen di jéggal ku juum ñoo ngi lay jéggal ci sunu appréciation rawatina ci moment bi nga xamante ni c'est un moment très propice muy weeru ramadan mais dafa dafa am ay yu ma gis nga koy utiliser doyen nga baal ma de fa mu baat ñaari baat euh, damay dégg ngay wax kenn ma xëpp kenn ma xupp bëgg naa nga nga nga ñëwlu ci lu waral nga wax loolu beneen bi aussi mooy wax nga ko maanaam da nga ciy insister sax nga ni je le répète jël nguur jaralu ma jaar ci ay bakkan loolu lu wax yooyu ngay wax lan moo ko waral. loolu xam nga nag loolu njëkkuma koo wax <laughs> ñaari ñaari wax yëpp dafa am ku ko wax dafa am ñu ko wax ma jëlee ko fa te ñaar ñëpp nekk ay royukaay ci ñun. cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachir yàlla na ko fi suñu borom yàggal wéral ko moo ne yilif àdduna ak li ci biiram jarul benn bakkan di rot ndax doomu aadama dafa màgg dafa kawe dafa dafa yëkkati ko suñu borom moo ko teral donc gisuma àdduna lu war a tax ñu mën a fàtt nit ngir jot ci benn mbir boo xamante ni da koy wut gisuma ko ndax nit dafa dafa dafa màgg dafa sacré wax naa la léegi ne la l'humain doomu aadama moo nekk au cœur de notre préoccupation beneen wax bi nga wax léegi muy jël nguur du ma du ma jaar ci ay néew yu yu faat loolu président Abdoulaye Wade da ko wax ma koy rendre hommage moom mës wax ne jot nguur tamit euh, du tax ma marché sur des cadavres du ma marcher sur des cadavres pour dugg palais donc euh, ñu inspiré wutam ci ñaari euh, mbir yu am solo yooyu jóge ci ay nit yoo xamante ni ñu màgg lañ ñu ñu kawe ci seen jaar-jaar ak li ñu nga xamante ni moom la ñuy symboliser donc foofu laa ko jëlee beneen bi nga wax léegi loolu tamit pap du samay wax yàlla mi ñu bëgg moo bëgg lool ci ñun moom yàlla mi ñu bind moo bëgg lool ci ñun mooy kenn du ma xupp kenn du ma xëpp ndax buñ lay xëpp di la xupp xëy na lu buñ bu dee buñ la xëppee xuppee nga daw mooy da ngaa gaaw ragal waaw bu fekkee ne da ragal àdduna doo taxawal dara soo amul fit doo taxawal dara parce que am na ci ñoo xamante ni. bëgguñu ko am ambition bëgguñu ko yëkkati dara loo yëkkati ñu ñëw gëm loo ne la lii du dem am na ci ñoo xamante ni ñun bi ñu déclaré suñu candidature li ñu doon wax mooy du am dara dégg nga ko wala déggoo ñooñu tey képp ku mës a yëkkati mbir mu am solo ci kaw suuf di nga gis ñoo xam dañuy taxaw ne waa ji du am dara waa ji du dem fenn donc soo ragalee doo dem donc foog nga am fit beneen bi mooy xëpp bi mooy soo amee fit tamit da ngay am jom jom mooy li ngay wut la ca métti nga muñ ko te soo ko mënta muñ suñ la xëppee rek moom la mooy buñ la géree nga nangu te buñ la géree doo waxetu nu la neexee too mën a dem fu la neex dangay may am ay sens interdit ci sa biir wax di nga jub dara te ne doo ko wax donc loolu moo tax kii aspiré nekk dirigeant loolu moo tax ñu jàpp ne ñun dañoo am profil bu intéressant par rapport ak 2024 parce que Pape gis nga fi may wax ak yow nii et je parle ci télévision lay waxee amul loolu moo tax keroog bi ma demee seeti coalition nationale pour une pêche durable ci Wakam ma ne leen luy tere ma saytu contrat de pêche yi gisuma ko ndax amul néeg bu ma tëju wala salle bu ma tëju avec lobby wala groupe de pression bu mu mën a doon wala multinational bu mu mën a doon jël ay engagement bu may teree ëllëg ma lijjanti napp gi noonu laa koy waxee ci contrat pétrole yi ak gaz yi amul lobby amul groupe de pression bu ñuy teree liggéeyal Sénégal ëllëg moo tax yoon wi ñuy dox nii di dox suñuy jéego ci ci ci ci sago gën a dal sunu xel ndax bari na koy wut mbir lu bari laxasu ca ba bu ñëwee la mu bëgg a def du ko mën a def loolu moo tax nag ñun tey nii ñu yàlla wommate sénégalais yi wóoluñu ba ñu agsi fii loolu mooy tax ëllëg buñ ñu joxee dinañ am fitu mat sëkk pour renégocier lépp lu ñu war a négocier pour xoolaat lépp lu ñu war a xoolaat dinañ si ci biir programme bi waaye noonu la ñuy amee tamit jom ba nga xamante ni du ñu ñëw amee nguur amee pouvoir pour enrichir illicitement enrichissement illicite dafay jeex 2024 Parce que de depuis 64 ans, dañu concevoir le pouvoir comme un instrument de règlement de compte ou d'enrichissement illicite. 81 lañ indi cour de répression de l' enrichissement illicite. cour boobu ñu indiwaat ko ci 2013 2014 ñu daal di koy dekkalaat cour boobu loolu mooy lañu bëggoon mu faj fajuwut. waaw loolu nag la ñu bëgg mu denc ci Sénégal ñu am de vrais serviteurs. ñu am de vrais serviteurs mmh. yoo xamante ni bu ñu ñëwee. liggéeyal seen réew rek moom mooy nekk seen boussole. d'accord tey si suba maa ngi am jotaay ak ñuy yëngu ci wàllu pêche wàllu artisanat ak itam euh, li nga xam ne moom moo di wàllu éducation gis nañu également bi nga demee euh, Seras am ak ñoom li nga xam ne euh, moom moo di ak jotaay bu yaatu mais fi ma toog jot naa ay yóbbante yu bëri ndax. yow ci digg yi ngay def nii gis nañu njiit bu réew bu Sénégal bi mu bëggee woon askan wi photo baa ngi nii exactement hmm. bi mu bëggee woon euh, li nga xam ne moom moo di réew mi hmm. euh, euh, yi li nga dressé ci sa programme daanaka dafa méngoo woon ak moom li mu doon wëyal hmm. te boobaak léegi France daal di xëddem ndax yenn ci ay digg sax door na ko mais lam ca sóob ci ay koppar bariwul lan mooy sa ay garantie ne boo toogee li nga wax di nga ko appliquer jëmmal ko bu baax a baax li ci jiitu wax naa ko léegi nee naa la amul lenn lu ñuy teree liggéey ci kàttanu suñu borom bu ñu yoree réew mi amut amul engagement boo xamante ni jël nañ ko bu ñuy tere ëllëg ñu taxaw sénégalais yi amul loolu kon garantie bu njëkk la euh, beneen bi mooy euh, Cheikh dafa am loo xamante dafa tuumranke ci Sénégal ñun dañ ko bëgg a delloosiwaat ci ñiy xeex pour mu dellu si ci la bokk rawatina ci ñiy yor mooy kàddu kàddu dafa am solo. Mm. Euh, fan yii rek nga doon denc maa ngi ñaan yàlla suñu borom barkeel sëy bi xam nga ni sa digganteek soxna si kaddu rek a fa nekk da ngaa wax teg mu wax teg ngeen fas kon kaddu dafa am solo ñun kaddu dañ ko bëgg a dellu siwaat la valeur de la parole donnée kon kaddu googu la sénégalais yi seen xel dal ci ñun ne lu ñuy wax dinañ ko def incha allahu taala bu neexee suñu borom dafa mas a am ku mas a wax sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma ne ko dégg naa loo wax def ko mu ne loolu yàlla rek ko ko mën waaye lu ma narul duma ko wax kon ñun damay wax ci politique ne du ma ci wax lu ma mënut duma ci wax lu ma narut duma ci wax it lu ma xamut waaw kon bu fekkee ne ñett yi day tere ñu falu xam naa ne pour ñu falu dina jafe waaye bu fekkee ne sénégalais dañoo soxla koo xamante ni day wax li nga xamante ni xel mën na ko nangu te mën na ko mu teg ko ci yéene ak yitte ju mat sëkk jàpp nañ ne nous sommes le prochain président de la république du Sénégal donc li nga xamante ni wax nga ko léegi. Euh, seras bi nga jël dafa am solo trop ci exemple dafa am boroom xam-xam bu wax ne dëkk boo dem soo bëggee xam nu waa dëkk ba dëkkee demal ci marché bi mu ne noo fekkee ñu yore marché bi dëkk ba noonu lañ dëkkee ndax xam nga lu tax lu am solo la fay jóge di ñëw ci sa biir mais boo fonkul biiru doomu aadama yi yeewoo ci dëkk ba mais kon musiba dal nañu te regarde l'état de nos marchés aujourd'hui xoola sunu marché yi fi nga xamante ni fa la ñuy jëlee je parle sous le contrôle de ñoom soxna Madoc soxna Bijou boo demee ci sunu marché yi tey daanaka jéggi na dayoo Pape Cheikh marché yaa ngi lakk marché yi salte na barab buñ suturloo sax ña fay yendu bi ma demee marché Kaolack dañ ne ma dañ maa jàmbat sax toilette boo xamante ni ña fay yendu foo xamante ni mën nañ fa suturloo suñ ko soxla dañuy jafe loolu la fekk seeraas seeraas la fay transiter par jour ci ay mala diggante xar nag ak bëy ak leneen la fay dugg par jour ci alal est-ce que xam nga ci wàllu sécurité séras boobu tey benn ASP moo fa nekk pour assurer la sécurité de tout ces personnes yi fay xëy benn ASP boo koo xamante ni assistance la waroon di def moom rek lañ fa bàyyi mu war a gérer loolu yëpp xam nga loolu mooy kenn taxawu leen beneen bi mooy maanaam la fa jot am sax ci ay toilettes ak yooyu ñoom ñoo ko defaral seen bopp leneen li mooy ci wàllu sécurité ñoom ñoo ma waxal suñu bopp nañu xam nga fu ñuy màññee ay armes par jour ba pare mu am xaalis foofu dafa laaj taxawaay. sécurité surtout. dafa laaj sécurité. bu mat sëkk. boo fa demee tey ñoom ñoo ne ma agresseurs yi fii ñun ñoo xeex ak ñoom ba génne leen fii hmm. ñoom ci seen bopp te lu seen bakkan xajoo gis nga ko fan yële am na koo xamante ni noonu la fa ñàkkee bakkanam ba ñu ba ñu ba ba mu dem wuy ji suñu borom. loolu moo tax sensibilité boobu la ñu am jóg dem fa daal na ñun déjà dañu am gis-gis bu mag ci wàllu aménagement ak cadre de dañu bëgg marché yi set comme sunu kër yi ñiy tukki ñëpp xam nañ ne boo demee marché yi lay dugal marché yu set lay doon wecc loo bëgg a def mën nga ko faa def ci fa façon bu mucc ayib mais ñun sunu marché yi fii lakk na tey rek am na marché bu ñu may annoncé ne lakk na ah yaakaar naa Tivaouane Peulh la tey rek ñoo ngi may wax ne ma marché ba lakk na Pikine dégg ngeen ko tout le temps marché Kaolack dégg ngeen ko tout le temps marché Ziguinchor dégg ngeen donc tout le temps marché yaa ngi lakk te mënuñoo fexe ba wutal ñu marché yoo xamante ni dëppoo na ak ñun li ñu bëgg a doon loolu nag ci ñu yor la ñi yor ñoom ñoo war a fexe ba tey ñu am marché yoo xamante ni ña fay nekk ñu leen di dagg impôt parce que li ma métti Mado mooy ña fa nekk pourtant dañuy leen laaj impôt tout le temps. mais impo dafa am une contrepartie indirecte loolu moo tax ñu bëgg bon gouvernance loolu moo tax ñu bëgg sénégalais yi bu ñu leen jëlee bu ñu compee ci ñoom ñu mën leen ko delloosiwaat. loolu moo tax on sera impitoyable à l'égard de la corruption impitoyable leneen li mooy le mieux-être des population ñun de jël nañu engagement ci SERAS te loolu bu bu ma nee SERAS mooy ci ña fay xëy ak seen cadre de vie dale naa marché yépp mais beneen bi mooy élevage ñun dañoo bëgg a am moo tax le kër de notre programme dafa nekk la souveraineté mooy nan lañuy def ba moom ba mënal suñu bopp ba lépp loo xamante ni ñoo koy dundee ñu mën ko di produire tey jii boo jëlee wàllu ceeb bi un million trois cent mille tonnes la ñuy importer par année ci wàllu ceeb ceeb un million trois cent mille tonnes boo jëlee wàllu blé bi deux cent trente huit milliards par an gis nga Macky Sall sax bi guerre russo-ukrainienne bi amee donte guerre bi am na donte guerre bi am na dafa suufu kano yi dem wuti blé bu ñu mën a dundee. diggante Ukraine ak Russie kon loolu jàpp naa ne jàngat bu mag la moo tax la guerre russo-ukrainienne ak Covid 19 doy na sëkk am njàngale ñun loolu dafa nekkoon loo xamante ni bokk na ci li li def déclic ñu xam ne jot na sëkk nag ñu am autosuffisance. mais autosuffisance ci naka Pape Djibril mais auto autosuffisance Mamadou. autosuffisance boo ko bëggee am wàllu élevage wàllu élevage il faut que ñu produire suffisamment. Sénégal tey bu bu bu bu bu Pâques jotee bu màggal jotee bu gàmmu jotee bu tabaski jotee bu korite jotee dëkk yii ñu wër buñ tijjiwul musiba am bu ñu fa mënta dem jëli lu ñu dundee dolli ci sunu marché musiba am alors que ñun Sénégal dañoo am ay communauté yoo xamante ni seen tradition mooy yar keroog damay xool benn documentaire. après mu am fu sori fu ma yóbbu koo xam dafa wax ne bi bi waajuram di faatu ci Espagne Barcelone mu ne moom papaam moo ngi ko bàyyi woon ak cinquante bett cinquante bêtes xam nga léegi ñaata la am cinquante mille bêtes la am léegi te cinquante bêtes lañ ko bàyyee. Mm-hmm. gouvernement euh, espagnol gunge ko ba mu am cinquante mille bêtes xam nga kooku champion la dans son domaine. Mm-hmm. ba pare moom mu wax ne actuellement moom jàpp na ne li mu war a bàyyil ëllëg njabootam. mooy war na dem à la conquête de l'Europe et du monde man loolu laa bëgg pour Sénégal dama bëgg ay champion dans l'élevage mhm. dama bëgg ay champion dans l'agriculture tey jii pour nga citer ma benn champion dans l'agriculture daf lay jafe mhm. benn Abdoulaye da ngay topp actualité Cheikh ban champion nga ma mën a tudd dans l'agriculture euh, au Sénégal koo xamante ni am na dayoo boo xamante ni mën na approvisionner le marché sénégalais ba mën a dem à la conquête de l'Afrique kan la boo demee dans l'élevage kan la koo fi mën a tudd tey koo xamante ni am na dayo ba nga xamante ni ci wàllu yar ak approvisionner le marché sénégalais moo tax xar yi di cher moo tax nag yi cher moo sax parce que déjà intrant yi fa muy jógee bu ñëwee dañu am na nag ñu ci góorgóorlu ñuy rendre hommage quelqu'un comme Ahmed Amar NMA Sanders mu def ci liggéey bu mucc ayib noonu laay rendre hommage xawma sax turam mais fan yi euh, am na benn jumtukaay bu am solo bu ma gis tuubaa booy dugg lekku fii la tudd lekku fii ñu ne benn doomu El euh, Hadj Ndiouga Kébé su ma juumul moom moo ko taxawal mais loolu su ma ko gisee dama naan c'est des raisons d'espérer lii mën naa tax sama xel dal ci ëllëg ne ñun kat mën nañoo dem ba sëñ Auchan mii dellu fa mu jógee ñu mën a am ay lekku fii ah genre grande la comme ay yu am euh, solo parce que loolu dina ñu permettre ñu am ñu préserver donc la souveraineté alimentaire mm-hmm. pour nga am ko foog élevage bii mm-hmm. nekk une réalité donc mm-hmm. ñun éleveurs yi dinañ leen gunge ci intrant dinañ leen gunge ci combiner bet yi nga xamante ni moom moo am ci yeneen réew ba ñu mën a ñëw ci Sénégal ñu def vraiment ay ay liggéey boo xamante ni dina tax salon de l'agriculture et de l'élevage yi am France saa bu ma ko xoolee dama naan nan laay def ba Sénégal am salon de l'agriculture ak l'élevage boo xamante ni rencontre mondiale lay doon France fi mu ne nii sénégalais yi daanaka ñooy def la promotion de Dubaï ñooy def la promotion du, du salon de l'agriculture bu salon tourisme amee Italie tamit ñoom ñooy def la la promotion de ce salon donc nan la def ñun Sénégal aussi ba am loolu loolu ça rest benn ambition boo xamante ni bu ñu accès ci suñu liggéey yu gën a mag lay bokk parce que tukki naa nag ci dëkk yooyu yëpp mais dëkk boo dem dangay gis ne pap man damay dox ci dëkk yooyu ba sonn mais du ma fa gis jinne du duma gis malayka ay nit rek ko ko defar waaye nit yooyu dañoo am yéene dañoo bëgg a defar seen réew. dañoo am ambition yu mag a mag a mag donc loolu moo tax. tey jii beneen ma jox la beneen chiffre boo xamante ni te lii rapportu ANSD la tey jii boo jëlee huile ak matière végétale cent vingt sept milliards maanaam wàllu diwlin ak lépp lu jëm ci wàllu meew cent vingt sept milliards par an nga xamante ni su ma jëlee riz bi ak blé bi ak huile et matière végétale bi ça tourne autour de huit cent milliards par an boo xamante ni ñun dañ koy jël yóbbu ko bitim réew. pour mën a am lu ñu dundee waaw loolu boo ko defoon fii tey non seulement tu crées de l'emploi parce que aujourd'hui autour de l'agriculture il y a les métiers de l'agriculture autour de l'élevage il y a les métiers de l'élevage maanaam agriculture tey dafa am ay ay métiers yu ci nekk yoo xam nit mën na cee xëy te du ñee mukk kii xëy ci bureau au contraire kii xëy ci bureau moo ko war a ñee élevage bi la même chose parce que chaîne de valeur la bu am solo les métiers de l' agriculture les de l' élevage les métiers de la pêche mais nan ngay mën a amee souveraineté alimentaire te moomatoo sa géej tey jii ma jël thon bi boo jëlee thon bi nga xam Sénégal la nga koy jaay Union européenne tey xam nga ñaata la ci matière première bi cent onze francs bu jëlee kilogramme bi yóbbu ko Union européenne moo koy jël yóbbu ko bitim réew su ñëwee xam nga ñaata la ñuy jaayee kilogramme boo ko fekkee ci grande surface bu Sénégal vingt trois mille et poussière balaa mu bu jógee ci cent onze francs bi balaa muy egg vingt trois mille boobu fekk ne Union européenne am na ci industrie usine am na ñu fay xëy. ja génne ci les métiers de la pêche ci wàllu transformation donc ñoom ñu créer seen usine créer des écoles de formation pour ces métiers créer de la valeur ajoutée créer de la richesse régler la question de l'emploi de l'employabilité de l'emploi permettre seen njaboot ñu mën a dund ci dund gu mucc ay mais man loolu laa bëggal Sénégal te Sénégal nekkoon ci précurseur Sénégal dañu amoon ay champion dans le domaine de l'industrie de la pêche mais tey mënatuñ ko am saxaar yi fii ñëw te li may wax je parle sous le contrôle des pêcheurs dem na Guet Ndar ñu ne ma gis nga ko lé ay lébu yuy léegi ne keccax la ñuy lekk gisatuñ jën yabooy mënatoo ko am. gis nañ la sax nga signé la charte pour une pêche durable. sans réserve. waaw gis nañu ko signé bokk nga ci juróom. sans réserve sans réserve. xam nga tax ma signé ko. waaw ñi ma xam yëpp xam nañ ne j'ai toujours été un militant de ce secteur du développement de ce secteur moo tax dama ko signé avec avec beaucoup de d'aisance et de plaisir. nappkat yëpp bi ma demee Guet Ndar keroog dañ na ma yow est-ce que xanaa nappkat nga ndax da nga xam napp gi. Mhm. ma ne leen du ma nappkat waaye li ngeen def dafa am solo ci sunu ci ñun. Mhm. te tey jii daanaka doy na kéemaan sëñ bi ni nga xamante ni noonu lañ def suñu géej gi boo demee ba ci port bi tey métier yi nga xamante ni sax sénégalais yaa ngi doon ci góorgóorlu léegi ñii ñëw ñooy indaale léegi ñuy def métier yooyu ci wàllu pêche bi ma la wax ne ne la précurseur lañ ci woon et je parle sous le toujours ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci yëngu Sénégal bokk na ci dëkk yi njëkk am industrie ci wàllu thon man am naa maam boo xamante ni liggéey na ci industrie bu buy yëngu ci wàllu buy yëngu ci wàllu ton ci jamono jooju loolu yëpp amatuñ ko léegi hmm. léegi on a décidé sunu matière première yëpp ñu jël ko yóbbu ko Pape Djibril Fall au palais de la République si kàttanu sunu borom hmm. dañuy téye matière première yi wala kuy ñëw da ngay def transfert de technologie hmm. transfert de compétence ñu soppi réew mi indi ay école ci wàllu agriculture man doomu baykat la ci bay laa màggee xaalisu bay lañ ma doon fayale école xam naa njëriñu bay xam naa njëriñu bay caajaay la la na sama maam doon bayee caajaay boo demee caajaay tey noonu la ñuy bayee nan nga mën a atteindre autosuffisance alimentaire ak façon boobu amu gisuñu engrais gisuñu jiwu suñu ñëwee mu am une mal gouvernance une mal gouvernance dans le domaine de l' agriculture ba nga xamante ni tey xamuñu tracteurs yi fu mu jëm engrais bi ICS fleuron la woon ci wàllu ci Sénégal moomatuñ ko léegi may ma saw trop waa Daaru Xuddoos ak waa ba Ndiaye yi nga xamante ni ñoo ko jege ndax les effets néfastes ñoo ngi koy resentir ba pare gisuñu benn taxawaay boo xamante ni ndaw ña fa dëkk sax entre Mboro ak Taïba Ndiaye ak euh, Daaru Xuddoos góorgóorlu nañ sax ba dem jàngi métier yu leen di permettre ñu liggéey foof waaye nañ leen war a taxawoo sax nañ leen war a recruter sax defuñu ko. Mhm. mais man en tant que jeune je suis très sensible ci loolu. réew mi sëñ bi. Mhm. dividende démographique bi ñu am téeméer boo jël. 75 pour cent yi 35 ans la ñu am. jëm man ci ñoom la bokk. je suis leur meilleur avocat. président. voilà un Euh, noonu la ko journaliste yi tuddee loolu laa leen di sonalee tout le temps président Pape Djibril Fall mooy suñu invité si vous nous rejoignez tey ci guddi gi ci quartier général bi ñu ngi doog a tàmbali pourtant mais bëri na ay ponk yoo xamante ni déjà euh, jot na ci indi ay explications par rapport ak euh, programme maa ngi gis sànq ba tey réaction wu directrice de campagne bu président Serigne Mboup am di Bachir mu ngi moom moom tam nee na il faut mu indi ay répliques am ci lii candidat bi Pape Djibril Fall wax par rapport ak foire yeeg ñoom seen parce que ñoom tamit ñu ngi foire euh, ca Kaolack loolu xam naa damay bàyyi ba. président Serigne Mboup buy ñëw maa ngi félicité <laughs> sànq ba tey mu ngi mais wax na directrice de campagne bi. ci boppam man dem naa ci FICA bi. voilà uh-huh. ni ko gouvernement du Sénégal waroon a gunge. Uh-huh. defuñu ko suffisamment. elle l'a dit elle l'a na dëgg. elle maa ngi ciy profité di félicité Serigne. Uh-huh. ci boo gisee ku mel ni Serigne boobu li tax mu bëgg a nekk président de la République. bu ñu ko taxawu woon ni ñu ko war a taxawee. Mhm. mu nekk un champion. Mhm. sénégalais. Mhm. kon Serigne du soxla nekk. loolu la directrice de campagne bi wax je suis totalement d' accord. voilà et je félicite Serigne. <laughs> donc président Serigne Mboup qui viendra certainement nous voir très prochainement parce moom euh, QG bu politique lañ leen di proposer ci saison neuf bi puisque ñu ngi jëm euh, ci ay élections présidentielles donc ñu ngi ndokkeel euh, fépp fu kilifa nekk fépp fu am politique nekk wala fépp foo xamante ni nit a ngi fa te am xalaat bu rafet pour pour Sénégal parce que xalaat bu rafet pour Sénégal itam. loolu ñun citoyen yi dañ ciy bàyyi xel te dañuy daay ku fi mënti toog itam na nga xam ni ñun sénégalais yi duñu ay dof defe naa lu jara bàyyi xel la et on encourage euh, des jeunes yu mel ni euh, président Pape Djibril Fall nga xame ni ñu ngi wane boobu ba tey cofeel ak euh, bëgg Sénégal jëm kanam nga xamee ni li ñu doon rêvé avant mën a am rappelez-vous à l'époque on disait l'an Sénégal sera comme Paris ñu ngi 2024 des na mais heureusement ba quand am na ay nit yu réfléchi yu fi nekk yoo xamante ne ñu ngi euh, proposer ay mbir yoo xamante ni xel euh, mën na cee dal li ñu def nag mooy fàttaliwaat leen encore ni suukaru koor yi waxtaan wee koy tënk ci euh, biir mais am na équipe yu nekk ci ginnaaw di leen ko jox ci 88 628 22 22 ma fàttaliwaat leen numéro de téléphone yi bu ci nekk miin ngeen ko sax mais bon tubaab wax na ko la répétition elle est pédagogique 88 676 07 07 wala 88

bu publicité yi jàllee ku may njëkk a fekk ci ligne bi dinaa ko jox enveloppe bu doon buy toll ci deux cent mille wala sax trois cent mille guddi gu jot un million télévision Futur Média rek moo ko mën grâce ak quartier général premier rendez-vous infotainment bu ñu leen di proposer ci télévision à tout de suite. waaw maguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg FM waaw bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM yàlla yàlla yàlla lilala yàlla yàlla yàlla yàlla lilala wa rahmati wasi'at kulla shay'in sunu borom ne sama yërmande làmb na ku mu mën a doon mbooleem kuy mindeef moo xam kàccoor bi la moo xam kuy jaamu borom bi la ci yërmande yàlla la yaakaar wala yadxuluuna aljannata illa bi rahmati boo boolee bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndey ak bàyyi yërmande suñu borom ci jaam bi moo gën a foor kon nag laa taqnatu min rahmatillah fukki fanu yërmande yaa ngoog wasalaamu aleykum original ay waay féexal sa xol ah! neexal pur jus de fruits orange. Mmh. mu yéen ananas nag. et eh, mbay lii cocktail bi moom. Mmh. mango moom da ngay naan di saqami. original moo leen di wéttali ci seen bépp xew-xew. ouvre un nouveau bonheur à chaque gorgée di naan di sàqami déet bul pàkkar ñi nag yow rek la ñuy topp originalement naturel êtes-vous prêt à redécouvrir la magie intense d'un produit d'exception une seule goutte pour prendre le contrôle de votre cuisine des arômes du goût et des saveurs incomparables. Faites gronder le tonnerre qui sommeille en vous et réveillez-vous en chef cuisinier. Laissez-vous emporter par nos produits variés pour vous transporter dans l'univers culinaire réinventé de Caddy. Agrémentez vos fritures, vos marinades et vos sauces avec nos savoureux produits faits de vrais ingrédients. Idéal pour toutes vos idées culinaires. Faites-nous confiance et maîtrisez votre cuisine. dem ci ba jeex kaas ci kaw kaas bés bu ne tàmbalee ak cawarte jeexale ak yokkute Nescafé ci biir weeru koor gu sell gi ñëw leen gaaw xool suñu offre yu spécial yi nga xam ni moom la ñu am ca DSL Dekakila ngeen mën a profito ci suñu promotion spéciale weeru koor ñu wàññi leen 10 pour cent suñu machine à café yi wala ngeen defar seen tee yu toog ak suñu bouilloire yu rafet yii wala suñu thermos yi suñu mixeur yu mën yi wala suñu air fryer yii ak suñu micro-ondes yu pratique yi ak suñu four électrique am nañu tamit ay cuisinières 4 ba 6 ay cookers

mel bu baax daal moo noppale ma ne fii ma ne fële daal la liyaa moo ma doy si ndekki waay ñaar ñoo xamante ku ci nekk def nga sa ay preuve. dama gars yi lamb ji commencé na. ah waay. ah kuréel la. roog seen. lii tan connexion yi booy gàlloon rek. xoolal fa nga caanum a faga. man yéen seen connexion jeex na newoon naa leen dem leen ci promobile moo ko yor ngeen ban léegi nag affaire bi fee la ñëw leen fii promobile la. bëre bëre bi muy bëre musuma koo gis ci xale boo xamante ne nii. waaye booy jëlaat dugg na sa bopp waay war naa la li muy bëre bàyyi ko xel prise lay Tout être mérite d'être protégé, tout être a besoin de bénédiction, tout être a son rituel pour faire fleurir ses opportunités. J'ai choisi l'eau Kayar, né ici sous les roches bénies de Kayar. Eau Kayar, ndox bi ñuy aar. Besoin d'un taxi Il est dans l'appli. Tu ne cherches pas. Tu prends ce qui est à toi. Tu ne vas pas à une fête, tu es la fête. Tu n'y vas pas simplement, tu y vas avec Yango. Téléchargez l'appli aujourd'hui pour profiter de courses à partir de 600 francs CFA. suñu waxee industriel rek suñu xel dafay dem ci professionnalisme TQG ñëpp xamee ko ci qualité ak professionnalisme ànd ci ak Colorado indi leen ay peinture industrielle de grande qualité peinture bi mooy époxy dure moo gën ci seeni parking garage hangar wala terrain basket dafay protéger bépp support en béton essence huile wala produit chimique mënul ci moom tous bii mooy Coloroute mooy peinture antidérapante 100 pour cent acrylique marquage routier ak signalisation moo ko tax a jóg bu xasee ba jàpp du xoolee ko industrie yi bëri nañu ci am problème corrosion ak rouille ci seen i pylône charpente grille wala porte métal mooy régler seen i problème métal ak peinture de gamme la moo gën ci aar seeni support métaux wala alliage industriel Resipox mooy peinture pour intérieur réservoir do chambre froide wala bépp jumtukaay buy def lekk Resipox dañ ko defaree ak matériaux yu wóor ñu daal di jeexalee akolo piscine njëriñam mooy protéger ak décorer piscine dafa ànd ak résistance bu am solo ci ndox ak produit d'assainissement TQG ak Colorado yéen lañ fi nekkal TQG Kër Damel extension rond-point Parcelles Assainies unité 26 TQG 65 rue Ngalandou Diouf TQG 84 rue Ngalandou Diouf TQG route nationale après croisement Saly TQG 28 ci wetu grande mosquée bu Touba TQG Wakam ci wetu Brioche Dorée bi TQG la qualité mooy suñu doole TQG moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm Nous facilitons les échanges commerciaux, acheminons ce dont le monde a besoin, là où il en a besoin. Imaginez tonnes de noix de cajou, produites, conditionnées et distribuées du Sénégal vers le reste du monde. Parce que lorsque les échanges commerciaux sont fluides, de nouvelles opportunités se présentent. <laughs> DP World, change what's possible. ak sama yaourt yi li tare saveur vanille nature ak sucré ñamal mmh. gu famille gold famille l'élite ak doy pak bul fàtte mukk nag sachet bii baax te gën ci njaboot groupe yi li tare moo leen di ñaanal kooru jàmm Leila Evans Co, le spécialiste des grands événements, décoratrice de renom Leila Evans and Co la grande diva de Nord-Foire kooku mooy borom décoré mariage ba ku ñëw ci mariage ba di seetaan kooku mooy décoré ngénte ba ku ñëw ci ngénte la di seetaan dîner de gala bu ko décorer ba décorer entrée ba loolu yëfam la cocktail bu la ko defalee nga ne kii moo mën décoration amul lu mu amul ci wàllu matériel bu la defalee sa conférence wala sa conférence religieuse nga xam ne Leila Evans and Co moo la liggéeyal anniversaire wala concert bu la defalee concert nag dalay defal concert bu mucc ayib ba defal la son et lumière tegal la écran indil la ay chaise VIP indil la chapiteau indil la moquette en gazon indil la ay fumogène rentrée artiste ba indil la ay feux d'artifice réew mi yëpp Leila Evans and Co la ñuy wër ci wàllu décoration ci wàllu événementiel Leila Evans and Co 77 563 34 34 ou le 77 330 42 06 kenn du Leila Evans and Co. Vous êtes particulier ou professionnel Notre cabinet de conseil en assurance Jolof Assure SA vous propose des solutions adaptées à vos besoins pour vous accompagner au quotidien. Nous avons l'assurance automobile, l'assurance moto, l'assurance vie, l'assurance habitation, l'assurance entreprise et l'assurance voyage. Contactez-nous au 77 235 75 75 78 581 85 85 78 529 11 11 ou au 33 868 50 21. Jolof Assure SA, votre assurance de proximité. ak waqf di sadaxa jaariya mën ngeen cee soppi dunduk ñu bari fu joxe la bu njariñ la dul jeex ndax day wéy di meññ di jariñ askan wi saa su nekk wakfu di lu ku tedd ki seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle dib sarax bu pay gala ci suñu borom di fay di wéy ginnaaw sax bu dëddu àddina kon def leen wax ak application orange money bii bu ngeen duggee ci paiement dem marchand laata ngeen di dugal code bii di 34 85 39 teg ca koppar ya ngeen fas yéene def wax wala ngeen dem direct seen téléphone ci dièse 144 dièse 5 étoile 34 85 39 dièse wala ci plateforme bii di 3w point wakf tiré d'ici sénégal point com mën nañ koy dagg ci seen payoor jaare ko ci compte bis bi di sn 079 01 101 251 080 400 886 002 39 mën ngeen it tàbbal ay wéccit wala billet xaalis ci boyatu condamné yi haute autorité bu Waqf ci supermarché yi ci banque yi ak yeneen place su mbooloo yi xaalis bi ñu ciy dajalee dañu koy def ci kees gu mag gi état bu Sénégal taxawal atum 2022 ak léegi ngir ñëpp mën a barkeelu def seen Waqf ak nu seen poos mën a toll ngir ñëpp jot ci tiyaabay Waqf boobeeg Waqf état Sénégal yaatal ba ci ñëpp li ñu ci jublu mooy di financer maanaam gunge ki koppar ay projets Waqf yuy meññ jaaree ko ci yu dagan islamique xaalis bi la muy jur ñu koy financer ay programme yoo xam ne askan bi seeni loxo jotul seen ginnaaw moo ko tax a jóg soo fàttali ko démba Sénégal ñëpp bëgg ñëpp fier ndax lu rafetee ni mësta am Sénégal fii la ñuy wax kër Khalifa textile 2KT mu lay jaay en gros bépp xeetu tissu ana tissu ba nga bëgg yaa xam gros yaa xam détail waaye boo yegsee ci suñu place kër Khalifa 2K textile nekk fii ci Parcelles Assainies janoo ak station Total bu joor ci rez-de-chaussée bi maanaam ci suuf di nga fa fekk wax bazin riche fil à fil brodé voile brodé lépp loo xam ni rek da di xeetu tissu boo premier étage ca espace VIP ba di nga fa fekk ay tissu de mariage ay til ay jipir original pirxa original la fa yaa tissu pour homme qualité supérieure yooyu ñoo nekk ca kaw Getzner boo bëgg ca qualité supérieure am na fa deuxième étage ba nag lépp luy rideau décoration pour kër ak bureau ah dama ni kër Khalifa textile sagal nga Sénégal Sénégal yëpp nga sigil lii nga def biir Parcelles Assainies en face station Total Dior ñëpp ci fier kër Khalifa textile 2KT kenn

jërë def seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg bi wa bi xalilika ibrahima yàlla yàllahu bil سيدي الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سيدي الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى المصطفى سندي الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سندي الله وبخليلك إبراهيم يا الله الله بالمصطفى سندي الله يا الله بخليلك إبراهيم يا الله وبكلمك موسى صالح الحدار وبسوء بالواء إسماعيل يا الله يا الله بالمصطفى سنديد يا الله يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبسوء سليمان نوح إن يونس اليسين وزكريا يا أودا يا الله الله بالمصطفى سندي يا الله الله وبخير ونور يا الله يوسف إلا لازم وآدم ودواز الكفل سالوتا يا الله هارون يوسف إلياس وآدم ودواز الكفل سالوتا يا الله وبئس آخر وخيرهم من أنبياء ورسل لك يا الله ويوسف وبئس آخر وخيرهم من أنبياء ورسل لك يا الله الملائكة ثم ساوته جبريل ثم بميكائيل يلا وبالملائكة عن ثم سواتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله صاحب النفط إسرافيل قابد فاعل علائه أزرائيل يا الله صاحب النفخ إسرافيل قابد فاعل خلائق أزرائيل يا الله خبيث أبت الأولياء والآملين من الأخبار الله ثم الأولياء والآملين من الأخبار الله بصديق بفاروق ثم بنورين ثم أبي سبتين الله بصديق وبالفاروق ثم بزي نورين ثم أبي سبتين رسول الله بمالك سلمى يا شافيه عبد حنيفة أحمد المحمود الله مالك المعزة يا سامي يا أبي خليفة أحمد محمود يا الله باللوء والحلم فوزي ثم بحر سيك الأسيم وبالكفر لا لا لا لا باللوء والحلم فوزي ثم بحر سيك الأسيم وبالكرسي أنا صبي رسول الله وبالقرآن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم داود جاء به وروحي الله بالقرآن وبتوريتا داود جاء به وروحي الله بلغ صلاتي وتسليمي الليل والآل والأبي والأزواج الله صلاتي وتالي من ألاي له أنا صبي رسول الله وأسبيلنا إلى ربي حافية وأبلنا خسبي دارين يا الله علينا حافية علي مصطفى وافتح لنا كل بن كنت فاتحا بسالين من الخيرات يلا واو بسالين من الخيرات رسول الله واسلك بنا نحن رسول وكفينا سللا sadula da jin wa saytane yalla nasluku bina najrus rusdil waqfina salala رسول الله وكمل كل هذا الأوان نقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله كل ما كل ما نختار يا الله وارد لنا كل سيسان وسيحرا ويا سيران كل سيتعزير يا الله كل سيسان ذنب أرني كل ذنب تعسير رسول الله تاوير لنا أمرنا صلى الله عليه وسلم لنا بدنا صلى الله عليه وسلم وقبلنا رزدا توفيق الله لنا أمرنا لنا بدنا وقبلنا رزدا صبي رسول الله ودميرا كل شيء وتدر بنا قبل الوصول لنا يا له يا الله كل أخداء قبل الوصول لنا يا له يا الله ودمرا كل دائن تدير بنا حمل الوصول لنا يلا ويلا ودمر الكل أعداء تدير بنا حمل الوصول لنا يلا ويلا وكن لنا عزما من كل ما لقد ونجنا من بلايا دهر يلا وكن بركات وناجنا من يا دار يا الله وكن لنا سمان من كل ما لقدر ونجنا من بلايا دار يا الله وكن لنا سمان من كل ما لقد ونجنا من بلا يا دار يا الله والجد والبغر يا الله وعابدنا على بالسلام صلى سبلة والفق يا الله إهانة الغلاد مسلة خلب وفقد أنس والجو يا الله إهانة الغلاد مقتلة خلابل وفاقت الغنادة والجوع يا الله وفي الربيع والوباء والرحمة أخرج والرحمة سرخ والقاد يا الله والفتنة والوباء والرحمة قادر والرحمة غافر وقد يا الله تبارين وبرد ولا لا لا لا لا لا لا لا حالة أرجل والخام يلا عرن وبرد بن قربة دلالة رجل والخام يلا مصطفى وآمة وخطا يا دلة سلل والمرق والغذ ثم الغذ يلا وآمة وخطا

الحسين والثاني الله مصطفى ومن خبيئتي دنيا ثم آخرة ومن فدوء إمام يا الله ومن خبيئتي خيرة ومن فضوء ما يلاه يا الله يلمك يا من على كل شيء قدير وعلى الحسد الذي بثواب الخير يا الله يا من على كل شيء قدير عرش العظيم صاحب القرية الله مصطفى إني سألتك قلبا خاطئا متودئا وإلما كثيرا فهي الله سألتما خلبا عن المتوى لأنوى علما كثيرا نفيا متوى وتوبة خبلت ومنة رفعت مع زوجة سلوات بدي الله وتوبة قبلت قبلت زوجة سلوات بدين الله دفع محمد مسكن وسلم يا رخائنا لجنة الخلد يوم الأسر الله محمد المسجد مسجد الخيار يوم الأسر يا الله مصطفى عليه صلي وسلم دائما أبدا ومن خفى ليوديه يا الله عليه صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون ومن على المرسلين mu ngoog jërëjëf Modou Mourid Mbaye lii nga ñu bégalee te jeexagul xool sedd na ci ñu tolloon ci pause beeg publicité yeek ñoom seen fas yéene àggali na guddi gi ci télévision Futur Média président Pape Djibril Fall di sunu gan ñun ñëpp a ngi fi euh, Pape Thioune Abdoulaye Diedhiog Cheikh Ngoné Mamadou Ndiaye Bijou ak euh, Madeleine su fee gérer lépp lu jëm ci wàllu xëdd xam naa ci yow laay ñëw ci kanam tuuti ak partenaires yi ñu àndal sànq ba tey mais dañuy delluwaat ci téléphone yi pour jël leen. àggali séddale bi ñuy séddale seeni i sukkaru koor ma fàttaliwaat leen en plus de enveloppe yi ñuy joxe fii ba koor gi jeex am na nu muy demee mën nañu leen jox ay billets pour ngeen dem umra wala ziara Fès wala ñu teg ci billet Makka yooyu yëpp mën na nekk grâce ak télévision Futur Média puisque at bu jot ñoo leen ko tàmmal seen i sukkaru koor day duun ba nga xamee ni kuñ ci may xaalis sax nga jël donc leneen luñ ci teg bu bonus lay doon te benn bu ci nekk day am valeur imaginez deux cent mille nga woote léegi nii ñu may la ko ak fi réew mi toll jamono naqadi lii tubaab bi naan inflation xaw ma loolu bokk na ci combat wu politiciens yi ba ci président Pape Djibril Fall xam naa ni bu doon sagom euh, borom kër bu ne Euh, dina am sax doole poos boo xamee ne dina ci mën a jëriñ njabootam waaye ndokk ba am nañu ñu mel ni moom am conscience su jéem a xool naka lañuy ñuy dee jéem a indee ay solution ci jafe-jafe yi nga xamee ni borom kër yaa ngi koy faral di dundu ak fu ngeen mën mënti nekk ñu ngi bég ci nii ngeen àndee ak ñun nañu profité jël quelques téléspectateurs ci kaw donte euh, ci suuf ci ginnaaw yéen a ngi woote foofee itam ñu ngi leen fay jox seeni i sukkaru koor enveloppe yaa ngi lii defe naa da koy xool rek pour duufal seen i bët cent mille deux cent mille trois cent mille quatre cent mille guddi gu jot un million la ñuy séddale ci sunu ay numéro de téléphone 88 628 22 22 bu amaatee téléspectateur léegi nii wala ay téléspectateur ñu jël leen bu ko defee ñu jox leen seen i euh, seen i enveloppe bu euh, suukaru koor ci télévision Futur Média mon ami Moustapha euh, neex a àndal mag boss ñu ngi lay ziar bu baax. moom tam bokk na ci inconditionnel yu quartier général di jaar itam suma rakku bopp euh, Kamal Silla ñu ngi koy euh, béggee fu ñu toll di ndokkeel itam euh, ki nga xam ne ni moo di Moubarak Wade alors Moubarak nag suma xarit la ba noppi itam nekk ci jeunes yi nga xamante ni dañoo am conscience suk jàppale seen numéro mu jeune à travers expérience ak xam-xam yi nga xamee ni acquérir nañu ko un peu partout à travers le monde donc ñu ngi jaar bu baax Moubarak Wade ñu xool yeneen téléspectateurs Demba Guissé nee na nuyul ma président Pape Djibril Fall dina ko dégg on reçoit tellement de messages du ñu mën a liir yëpp mais merci en tout cas ci cofeel bi soit ci ñun wala ci suñuy invité en tout cas lu ñëw rek ñu jot ko ba tax rek ñu ngi bég ci euh, seen fidélité euh, naata naata taal tamit ñu ngi koy nuyu naata taal ñu ngi lay bégee di ndokkeel itam sama yaayu bopp honorable député Mame Diarra Fam moom ñëwam fii mënul ñàkk puisque ñu ngi ci waajtaayu ak élection présidentielle donc ku ci nekkul candidat itam doon euh, porteur de voix boo xamante ni da ngay xeexal sa gox wala dangay xeexal réew mi xam naa ni sa teewaay ci quartier général bi dafay am solo bërki démb rek ñoo nekkandoo woon Touba ca kër euh, Ami Mbacké Ami Mbacké bu ministère des affaires étrangères moom ñu ngi koy ziar bu baax moo ànd ak Aïssata Tall Sall Euh, ci ministère bu mag boobule donc Ami Mbacké euh, madame imam ñu ngi koy ziar bu baax a baax honorable député Mame Diarra Fall nee na nuyul ma sama doom président Pape Djibril Fall donc yóbbante bi defe naa yegg na euh, honorable ñu jël leen ci téléphone yi 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 bu amee ay téléspectateurs Pape Samba nga dugalal ma leen ci ndimbalu Apulaay ma may leen juste quelques minutes le temps ngeen di composer benn ci numéro de téléphone yi honorable député Mame Diarra Fam li tax ñu sopp ko moom fa mu dëkk mooy France am maanaam faluwul rek ñëw dëkk Almadi wala plateau dafa toog ca gox ba mu fekk baax dëkk fa ak ñoom yenn saa yi su ma koy seeti da ngay dem ba da ngay xuus yéeg wàcc jaar fu ci ay ruq jamaat doo foog ni sax moom foofu la dëkk mais terewul dafa des ak ñoom loolu rek bokk na ci li ko yi nawee soo Soda kasee ñu ngi lay ziar bu baax ak waa kër Anta Sarr yëpp merci ci cofeel bi alo allo oui. kooku. Pape Cheikh Abdoulaye Diack. Abdoulaye. Diack. Abdoulaye na nga def waay. sant yàlla bu wér. ma Diack asta fan ngay woote Thiès. fan ci Thiès nga dëkkee Abdoulaye Diack. taaxi kaw. ah taaxi kaw nga dëkkee. taaxi kaw man man man man man man man man am na ay mbokk taaxi kaw de taaxi kaw kay waa kër waa kër alaaji yaat ma juuf alaaji yaat ma juuf sama maam la mhm, loolu la yàlla dogal naka waa taaxi kaw ñu ngi sant yàlla bu wér macha allah nu ngeen def ak koor gi waaw di woor rek di woor rek waaw ñàkk woor sax wóorul ku yabu rek woor <laughs> wallaay nonu woor rek ko moom rek a sañ li bu leen lekk bu leen naan moom kenn mënalu ko daara bu leen lekk bu leen nanti heure bu ko neex jël kenn ci ñun yóbbu. ndeysaan ñuy jooyoo te duñu gisaat kooku. dëgg la mënaluñ ko daara. dëgg la woor rek ñun li ñu mën rek mooy woor. waaw noonu la ñuy def sax. xëy rek di yendoo woor ay Diack du ma la téye lu yàgg comme yaa ngi woor te yaa ngi sant yaa ngi woor te taaxi kaw. waaw dama lay jox dama lay jox euh, dama lay jox addi alaaj jiyaat ma juuf. waaw ndeysaan ndeysaan. waaw dama koy def ma xool ñaata laa koy def sax comme montant xaaral ma vérifier. may ma rek euh, Abdoulaye Diaka ah, c'est ça. Mm-hmm. jeex na quartier général may na la suukaru koor bu toll ci deux cent mille. Mm-hmm. voilà deux cent mille mooy sa suukaru koor. baax na. deux cent mille baax na wala baaxul. acca loolu baax na. Ah, dama laa jox ñeent fukki junni ak fi réew mi toll Thiès nga xam ne boo fa mayee cinq mille day mel ni milliard ma may la deux cent mille nga ni ma onho. Uh-huh. ñun yow la ñuy topp ñun yow la ñuy topp loo def baax na. ñàkk maa topp sax erreur la fii réew mi toll nii nii nii nii nii ñàkk maa bëgg sax dalay dalay indil ay problème leer na leer na. jeex na non du ma ko du ko annulé dama lay may deux cent mille donc mooy sa suukaru koor dégg nga jàkk. ay kontaan nañu nuyul ñu waa kër ga yëpp. merci d'avoir appelé bu amaatee téléspectateur ngeen paas ma ko ma joxe waat beneen deux cent mille ay deux cent lay joxe ba keroog quartier général bi jeex tey jii ci guddi gi ak président Pape Djibril Fall allo allo alo beneen deux cent mille lay joxe waat léegi nii moo tax bu ngeen déggee nit di wax may waxtaan ak moom wala di ko may bu leen raccroché puisque ku coupé ba jot ci xaalisam damay jël ki ci topp donc loolu moo mooy neexaayu quartier général bi 88 628 22 22 Mounas Ndiaye Mounas Ndiaye sama cousine la mais neen dama seytaane parce que lu tax may may may joxe addiya maamam waaye maam ji ñoo ko bokk ah, bu dee maa Adja mooy sa yaay kay <laughs> kon ñoo bokk maam ji Alaaji Atma Diouf donc ñu ngi bëggee bu faax Mounas Ndiaye xam nga Mounas euh, moo xam nga Paco Pata mi ci théâtre bi xam nga sama mbokk la ñoo bokk benn deret ñoo bokk benn benn benn benn sang le sang le sang maanaam ñoom bu ñu naawee ma naaw <laughs> mu ngoog 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 donc ñu jëlaat beneen téléspectateur Sophie en même temps bul fàtte euh, xëdd bi ndax euh, mu ngi bëgg a guddi. 88 628 22 22 88 628 22 22. di ndokkeel bu baax képp ku bokk ci staffu président Pape Djibril Fall ràññee naa ci Cheikh Baye Ndiaye moom nag moo yore mouvement bi di MLS la solution avec la coalition Pape Djibril Fall ku lim juum mais daal bëri ngeen ci euh, di euh, jàppale jeunesse bi à travers président Pape Djibril Fall donc yéen ñëpp ñu ngi leen ciy gërëm Maxu Diagne nag maag moom sama sama compagnon de compagnon pas compagnon de guerre ñoo bokk parti. <laughs> compagnon de parti compagnon de parti voilà <laughs> donc passe partout sama compagnon de parti la ñu ngi koy ñu ngi koy bégee bu baax a baax a baax il a même envoyé des question mais passe dangay bàyyi noonu rek question yi boo ko bëggee posé da ngay dem ci site internet bi wala nga dem ci. ci live Facebook bi nga def comme internet yëpp posé sa question du Ndiaye jël ko jébbal ko président Pape Djibril Fall parce que sinon boo ma ko yónnee rek day mel ni dama la faral quoi. <laughs> beneen deux cent mille laa bëgg a joxe wala yeneen i 200000 allo 88 676 05 cinq bu dee téléphone yi dafa saturé da ngeen di raccrocher composé waat donc pendant ñuy que ñuy jël ay téléspectateurs su fi fan la xëdd bi toll. Euh, Diallo sànq ba tey nag euh, ñu ngi ci woon di euh, defar li nga xamante ne mooy xëdd bi sànq maa ngi doon wax nag dinañ defar laaxu araw laaxu araw bi nag déjà pare woon na li ci des rek moo ñu ñëw. defar soow mi nga xamante ni mooy soow yëlitaare euh, moom daanaka rek pare na soow mi moom euh, prêt à être utiliser la Baye Cheikh mais nag du euh, ñàkk bu la boo bëggee rek nga relever waat ko rek dafa dolli ci meew fi mu ne nii rek ci étape boobu laay ñëw Euh, Baye Cheikh suñu partenaires yi nag duñu leen fàtte mukk ñoom ñi nga xamante ne ni nag ñoo ñuy dooleel accompagne ñu fii suñu biir waañ ba ku nekk nag mën a xool suñu taabu ju yaa ngi ji xam ne ay produit yu mucc ayib lañu ñu àndal ay produit yoo xamante ne 100 pour cent naturel la du ma taaye Baye Cheikh di ko wax euh, laax bi nag Baye commencé woon nañ nag li nga xam ne mooy préparation wu plat bi euh, ku nekk xam na ne laax nag yomb naa togg boo koy togg ah ataay bi waaw. waaw nañ ko nañ ko ko def ci kaasu Nescafé waaw. mu ngi jox ko ko waaw. ayca mademoiselle café. <laughs> waaw parce que mademoiselle Kado ñoo ko moom. mademoiselle Nescafé. c' est ma petite Eva. ah macha allah Eva mooy mademoiselle Kado. waaw ça c' est mademoiselle Nescafé. normal ak Nescafé bu ànd ak jar. bu ànd ak jar bi moom day insister pour ma insister ci. non ma télé yëpp ñu ngi wax loolu te waxaguloo ko ma ne ko télé yëpp man la ñuy toppandoo. maa la wax loolu. donc du ma leen top ñoom man la ñuy topp <laughs> waaw démb nee na ma télé yëpp ñu ngi expliquer Nescafé bi waaw ne ñaar la jarlak bu amul jar ma ne ko télé yëpp ba ci télé nationale bi sax man la ñuy topp. loolu am na. seen YouTube yeeg internet beeg ñëpp man la ñuy topp. ñëpp yow la ñuy topp. bàyyi voilà at président Pape Djibril am na ataaya. merci beaucoup kontaan naa ci donc sa café gi am na bu am jar ak bu amul jar nga ne télé yëpp a ngi koy wax mais yëpp man la ñuy toppandoo amuñu sama fay dégg nga waaw xanaa xanaa nga bañ nga fàtte fàttelu ko rek. voilà télé yëpp bu heure jotee ñoom ñëppay quartier général seen journaliste yëpp la ñuy woog seen animatrice yeeg wala ba léegi sax dégg naa dañuy maye xaalis teg ci déedéet waaw dañuy maye xaalis naan allo fooy wootee ah tubaarkàlla macha allah <laughs> ay deux mille cinq cent Pape Cheikh Diallo dans les télé c'est trop ah. loolu lépp ab cant la rek. xoolal yooyu yëpp dugguma ci. yow ca <laughs> saa yi ma ko waxee nit ñi ne ma noonu bul wax dara lu baax la ñuy copier. da ngeen ma koo gën a xam man mi fi yàgg ku nekk naa ma noo bul wax dara lu baax la ñuy copier. mais bien évidemment que loolu xam naa dama koy wax rek parce que ñoom dañuy dañu may toppandoo ba pare di xëccoog man première place bi moo tax nii laa leen koy ruubewee di leen jàmb voilà. dañ ciy gis ku niroog Bijou Ndiaye ñii dañoo niroog madoo ñii niroog <laughs> mais nag fexe ngeen mais nag amagu leen candidat présidentiel toppandoo ngeen lépp mais seen télé yi amul benn candidat bu fa jógee <laughs> ah xanaa Bougane te Bougane du <laughs> du journaliste waaye ñi dañoo mën a toppandoo waay di ma toppandoo ba pare di xëccoog man première place bi c'est trop arrêtez-vous quand même ah xëccoo leen ko seen biir mais da leen may ñaanal quoi li waykat bi waxoon bu leen ko fàtte di ñaanal <laughs> Pape Cheikh mi créé émission bu ñëpp di def <laughs> allez on arrête la récré nga continuer ak euh, xëdd bi Sophie. ay ca Diallo euh, merci beaucoup Pape Cheikh ñu ngi won ci li nga xamante ne ni mooy laax bi nga xam ne moom lañ leen andiloon tey euh, comme recette du jour pour xëdd bi déjà naka ku ne xam na ni rek ñamu dugub lu am solo la ci suñu wérgu yaram te dugub bi nag ku ne xam na ni fii lañu koy bàyyee Baye Cheikh femmes yi léegi nag dañuy góorgóorlu ba defal ay céréales yoo xamante ne ni yu set yu mucc ay la grande surface yi fépp foo dem di koo fa fekk Baye Cheikh groupement yi ci koñ bi ñëpp dañu koy defar ñoom nag dañuy jël dugub bi defar ko ba mu baax def ko ay sachet too sonnati boo yàkkamtee da ngay ñëw rek def comme ni ma def daal di teg sa ndox bàyyi ba mu baax def sa pincée de sel def tuuti beurre bàyyi nag ba ndox mi baax ndax ndox mi su baax bu baaxul rek bàyyi cheikh boo ci sottee araw bi dafay doon benn pat bu ko defee sa laax bi dafay yàqu bàyyi nag ba ndox mi bax bu ndox mi baxee nga jël araw bi sotti yëngal bàyyi nag mu di le temps que muy ñor nag bàyyi cheikh nga daal di ciy defaat nag tuuti ba bu ñoree nga yekk daal di def ci sa benn bool daal di tegee de côté bu fekkee ne da nga bëgg laax bi gën a am goût bàyyi cheikh mën nga jël li nga xamante ne ni mooy euh, sucre sucria bi nga xamante ne ni ñu bari dañuy foog ne c'est réservé uniquement pour ñi am diabète mais su fekkee da nga bëgg euh, wàññi sa suukar bu baax a baax mën nga di utiliser sucria bi nga xamante ne nii euh, moom Baye Cheikh daf daf ñu yomb dafa yomba utiliser ndax déjà nii rek am na ñaari euh, sachet bii nag mooy bu ndaw bu individuel bi bii mooy pour booy defar say jus ak say soow une grande quantité bii ngay utiliser mais bu fekkee ay petite quantité mooy attaaya ak yooyu bu ndaw bii ngay jël man nag jël naa bu ndaw bi daal déchiré nank rek sotti ko ci sama marmitu laax bàyyi ko ci nag mu ñore nekk moom nga xam ne laax bi dinga am goût bi nga xamante ne nii moom nga soxla dañu ànd ak waa yélitaare waa groupe yélitaare sànq maa ngi koy wax Baye Cheikh ñoom nag ñu defaral ñu soow yoo xamante ne nii neex na sell na te wóor na Baye Cheikh ñoom nag ñu def ko ci ay emballage yoo xamante ne yu mucc ay sànq wanoon naa leen parfum yi nga xamante ni moom la am gis nga sunu frigo baa ngi ne la lépp ay produits yélitaare la tey nag man bu vanille bi laay utiliser bi nag euh, mooy soobu 1 kilo bi am na sa euh, soobu 5 kilo bi xam naa dinañ ci ñëw waxaat ci bu baax fi lekk korité gi déjà nag moom Baye Cheikh da lay permettre doo fi nekk di jëliwaat ay siwo fële di sotteeg yooyu déjà defal nañ la ko ci siwo bi ba pare li ngay def rek mooy ñëw ubbi sa soo euh, tranquillement boo ubbee soo bi nag Baye Cheikh dama ànd ak ak waa Kosidi Kosidi ñoom it ñu andil ñu benn meew boo xamante ni sànq nag maa ngi koy wax moom nag neex ndékki neex ci wayal lañu ko tuddee Baye Cheikh moom euh, am na concentré Euh, non sucré mooy bi nga xamante ni pot bi may utiliser am na it en poudre en poudre bi moom laa leen doon woon sànq am na paquet bu 1 kilo bi ak li nga xamante ne ni mooy euh, paquet individuel yi nga xamante ne ni pour petit déjeuner bi la bàyyi cher li may def rek mooy ñëw jël ko gis nga nag dafa neexati ji doo dagg doo fi nekk di jël paaka di bënn nii rek ngay def gis nga ni daal di ubbi mooy meewu laliya bi bàyyi cher mu nekk benn meew boo xamante ne ni euh, dafa riche en calcium. protéine ak vitamine lépp la am Baye Cheikh moom mooy meew mi woor gis nga nag damay ñëw rek daal di ci sotti nànk mu fekk ji li nga xamante ne ni mooy sunu yaourt vanillé bi nga xam ne waa yëlitaale ñoo ñu ko andil gis nga nii dama ciy sotti lépp comme te nag laax bi dama ci defoon tuuti euh, sucre Baye Cheikh du jar ma ciy doole li nga xamante ne ni mooy suukar moom rek laay bàyyi noonu soow mi dolli ci tuuti meew rek bu la neexee it soow mi mën nga ko utiliser noonu sans pour autant nga defaat ci dara ndax dafa am goût te c'est déjà sucré ba pare bu fekkee nag ñi nga xamante ne ni euh, beneen bi la ñu bëgg am na nature bi am na gold bi nga xam ne mooy fruité bi banaan bi lépp am na waaye yëli taare ñoo ñu ko andil bàyyi Cheikh gis nga naka ñu nar def benn laax bu naturel boo xamante ne lii boo ko xëddee sa xel dafay dal ndax tout au de la journée dina la mën a téye boo lekkee nag sa laax ba pare bàyyi bu la neexee mën nga jël rek au Kayar bi nga xam ne moom it daf ñuy accompagner. daal di euh, koy utiliser gis nga boo gisee soow mi dañu bàyyi noonu rek euh, mu naturel yokkuñu ci vanille yokkuñu ci arôme yokkuñu ci dara dañuy ñëw rek sotti directement ci li nga xam ne ni mooy laax bi li ñuy def rek de préférence bu fekkee da nga bëgg nag bu fruité. mën nga dagg euh, soit sa anana sa pomme wala boo amee say kii nga daal di ko ci sotti mais ñun nii rek la ñuy bàyyi daal di jël nag raisin sec bi nga xamante ne ni Baye Cheikh mënu ci ñàkk ñu daal di ciy saupoudrer tuuti. defar te yàlla laax revisité. déggoo li maanaam sa élan bi nga jël ak sa grand boubou bi nga wax takk say weer na ci télé bi expliqué sànq ba tey 2500 sponsors après tout ça pour ça. dina mel ni Macky Sall ak Sonko rek tout ça pour après ça. mais dinaa sargal sama tout pour après la dinaa sargal samay sponsor ndax yëli taare du sponsor bu ndaw. waaw <laughs> mais seulement nag yow nag lii sa force mooy soo bi yëli taare nga ko defee. waaw kay waaw loolu rek moo ci uute. loolu mënul ñàkk mais tout ça. <laughs> waaw pour ça après quand coow li yokk cere doon pour libérer ko après man damaa jaaxle. tout ça pour ça yokku cere dolli ñeex. mais yokkoo dara tout sa pour ça tout ça pour après ñu ne libre naa xam naa damay dem Mali rek. dëkk yàlla baax na booy dem Mali yóbbaale ma. mu wagasu mel ni kuy togg lu rëy ndekete laax rek lay defar tout ça pour après sa regardez tout ça pour ça mais quand même c'est très beau ah loo loo ko orné nii bi daa am fromage voilà. lu weex li lan la Sophie. koko râpé. koko râpé. waaw. kon li lii rëy na quand <laughs> jar na koom am jaru ko. jar na ko quand même. kon bàyyi laax baa ngi man a tooñ rek. kon bàyyi laax baa sa laax baax da <laughs> mu ngi noonu. ay wax desatu fi. <laughs> mu ngi noonu Baye Cheikh dinañ ko yekkal nag ina dem. waaw yakkalal ina waaw yakkal ko ina chéri chéri Modou Ndiaye Rahma Modou Ndiaye Rahma sànq rek Modou Ndiaye Rahma laa gërëm bi ma tollee Kaolack macha allah maa ngi seen Tumaani Ndiaye mi ma bokkal benn yaay mhm. naan ma loo wax ci Modou Ndiaye Rahma doyul waaw te xam nga fan yi nag damaa bëgg ndogu je Kaolack moom dafa baax te social pale ba nga jëm noo xamee ni pale balaa jëm pale baa nga Kaolack pale baa nga Kaolack Modou Ndiaye Rahma seet ñu ngi ko koy yekkal seeti ko day dagal ina dem mhm. chéri Mouhamed Ndiaye Rahma Mhm. maman Anna Ndiaye tamit mu ngi fii ci site Batrin ñu ngi koy yekkal bu baax a baax mhm. di ko yakkal rek ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi seetaan ba Cheikh mhm. li nag mooy euh, recette bi nga xam ne moom lañ leen andiloon tey pour seen xëdd mooy laax bi ñu defaree rek ak soow yëlitaare ak li nga xam ne mooy euh, meew laliya bi nga xamante ne moom i daf ñuy accompagner fii suñu biir waañ ci kanam bu ñu ñëwaatee rek ba Cheikh ñu daal dressé jàll ci li nga xamante ne mooy euh, instant bi gën a neex ñëpp rek mooy dégustation plat du jour tay bi voilà instant xëdd mu ngi noonu man nag dama ci yekkal sama sama umpaañu bopp respecté ci euh, milieu euh, média fii ci Sénégal Kourani Diarra voilà Kourani rappelez-vous bu ngeen daan dégg baatam seen xool dafay sedd donc man ci mm. jarbaatam yi laa bokk ko elle a un jarbaat vieux un vieux jarbaat Kourani Diarra ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar bu baax euh, moom xalaatam day ñëw ay ñaanam day ñëw ay teraangaam itam dafay ñëw Kourani ñu ngi lay ziar bu baax di bëggee encore sunu xarit yëpp mon lamin Lamine ça c'est technicien la woon euh, King FM Lamine ñu ngi lay ziar bu baax a baax Diaf Touré moom it sunu xarit la euh, nekk à cheval entre Sénégal ak France mais Diaf moom sama xarit la vraiment xam nga xam nga man dama am ñaari am ah John Mendy voilà John Mendy sama xarit la saa yi ma ko tuddee ngeen reetaan Diaf euh, Touré sama xarit la donc j'ai vraiment deux amis yoo xamante ni ils ont des noms particuliers mais c'est mes amis à moi donc John Mendy maa ngi koy jiar bu baax njaago yu uleef la ñuy wax mon ami John John uleef ñu ngi lay ziar bu baax Diaf Touré aussi ñu ngi lay ñu ngi lay béggee bu baax et puis Pape Mor Pape Mor xam ngeen ne Pape Mor la léegi Pape Mor bu fii Pape Mor influenceur la de si Pape Mor Pape Mor non Pape Mor bi nekk fii Pape moor vidéo si influenceur la oui comme léegi ku jóg ku jóg nekk tiktoker amul école amul diplôme moom Pape Mor tiktoker la léegi de moo ëpp xaalis liggéey bi bi liggéey fii de ndax salaire léegi day yéex a ñëw soo defee sa ñaari tiktok benn jaaykatu saak woo la ne la ndax mën nga ma posté saak yow moo tax yow chaque jour boo waxee ñun ñu def nii. c'est parce que li may wax dafa am doo ñu rus. c'est parce que li may wax c'est des choses qui ne sont pas disables. <laughs> doo ñu rus tuuti je bu ñëw la 15 kay balaa caa nga nekk influenceur <laughs> man gisoo ma fan yii pour tout partenariat. dee ñu xool ñu xool bala ngaa wax gis naa ko Pape. allez. ñu àggali waxtaan bi ak sunu invité président Pape Djibril Fall ci quartier général bi tout en vérifiant ndax yéen a ngi woote pour ñu jox leen euh, seen i suukaru koor euh, Cheikh ngoone ñu delloowaat leen kàddu gi yow ak euh, Abdoulaye ak Pape Thioune bu ko defee yenn ci ay questions yi des ñu jébbal ko président. Pape man bëggoon naa euh, ñu waxtaanee lenn laataa ñuy gën a sóobu. <laughs> Euh, ci lu soxal wàllu politique ndax Pape Djibril ci programme bi may wax 63 pages gis nañu ci également muy wax 1 7 0 lan la firndeel. Euh, <coughs> jërëjëf Cheikh ngoone nga may ma rek ma nuyu jàngkat yi doon jàng léegi yëkkati fi tamit lu am solo loo xamante ni day firnde ambition. muy sindiidi bi ñu jàng léegi di ñaan sunu borom lim ci ñaan yëpp sunu borom def ko ci émission bi ak kër gi ak ki réew mi yëpp muy firi ambition tamit ci jeune parce que ki ko bind muy Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul moo ngi ko bind ci vingt trois ans vingt vingt deux ans vingt trois ci Zaïre donc ci la affirmer ambition ginnaaw bi mu dimbali ko yàlla ak yonant bi daal di wax li nga xamante ni bëgg na ko taxawee daal di wax fi mu bëgg a jëm te sëñ Basiru noonu la ko expliqué nee na booba ba mu waxee rek ci lañ xam fi mu bëgg a jëm dañ koy màndargal ci benn bayit boo xam bu ma ko tuddee mu doy sëkk mooy wax la waftax lanaa kulla baabin kunta faatihahu lisaalihina min alxayraati yallaahu mooy suñ borom tijjil ma bépp bunt boo xamante ni tijjiloon nga ko gaa yu baax yi kon ñun foofu la ñuy taxaw ci ambition boobu nga xamante ni am na ko te loolu nekk baaxu réew mi moo tax waruñoo jaaxle ci gis ndaw boo xamante ni dafa jóg pour taxawu réew mi looloo daroon El Hadj Omar looloo dal Cheikh Moussa kamara looloo dal Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu loolu moo dal fii nga xamante ni fi lañu nekk muy maam Limaamullaahi ak maam Seydina Isa Ruuhullaahi ñooñu ñëpp tey jii boo leen jëlee ba ñu jeex takk kenn ku ci nekk bi ngay jóg di def li ngay def boobu ci ndaw nga toll. léegi nag ni ko nit ñi di waxtaanee dañ naan mag ñi su ko defee xale biy déglu day foog ne ay mag lañu woon. waaye bi ñuy accomplir li ñu accomplir ay ndaw la ñu woon donc encore une fois maa ngi demander sénégalais ñu def confiance à cette jeunesse consciente euh, xam li ñu war a xam am fit am jom am ngor am diine pour ñu jël réew mi soppi ko jaarale ko ci yoonu mucc ayib loolu moo tax ñu am vision bi nga xamante ni moom la ñu am daal di koy tëbbee nag daal di koy jëlee ci abreuvoir yooyu nga xamante ni ñoom ñooy kenoo réew mi vision bi un bi nga wax un sept zéro un bi mooy la vision benn vision lañu am vision bi dañ ko centré wax naa ko léegi sur l'humain mooy nan la ñuy def ba doomu aadama bi fépp fu ñuy xool action bu ñuy def Pape Djibril Fall président de la République acte bu muy posé bés bu yàlla sàkk suba ak ngoon mooy ban jeexital lay am ci doomu aadama bi li may def ak li may wax ban jeexital lay am ci doomu aadama bi ndax positif la wala ndax négatif la su fekkee positif la ñu avancé bu dee négatif ñu teggi suñu tànk beneen bi mooy su ma nee humain toujours maa ngi ci la vision beneen bi mooy li nga xamante ni tamit dafa am solo trop te ma wax ko léegi muy la jeunesse muy ndaw ndaw mooy tabax réew loolu moo tax suñu xol jeex takk bi ndaw ñi jëlee géej gi ak désert bi ngir wuti alors que sa réew lépp a ngi fi am ngay dem loolu yëpp nag li koy laytaay toujours ci vision bi mooy la souveraineté mooy li ma wax léegi mooy moom suñu bopp beneen bi nag te loolu dama ko dañ ko étayé ci les sept grands axes set axes yooyu li si jiitu encore une fois pour wax la ne sama préoccupation bi gën a mag mooy ndaw ñi jeunesse éducation emploi ak entrepreneuriat loolu mooy sept axes yi bu ci njëkk mooy loolu mooy jeunesse éducation emploi ak entrepreneuriat sëñ bi dëkk bu ñu tabax ndaw a ko tabax dëkk bu ñu tabax ndaw moo ko tabax loolu moo tax ñu bëgg ndaw ñi lépp lu ñu war a def ci ñoom ci xam-xam ci métier ci dimbali leen ci citoyenneté ci civisme ñu def ko ci moom ba mu mat sëkk ndaxte ñoom ñoo war a tabax réew mi aujourd'hui wax naa ko léegi tudd tudd tudd géej gi tudd euh, napp geeg yooyu mais les métiers du gaz et du pétrole mais il faut que ñu waajal ci ndaw ñi pour ñu mën koo taxawee ba nga xamante ni su boobaa bu ñëwee kenn du ñu jéggaani dara même ci finition bi du ñu jéggaani dara loo xamante ni ay doxandéem ñoom ñooy ñëw di ko def waaye dinañ fekk ay sénégalais yu mat sëkk li ñu doon pour def ko. le deuxième deuxième point bi ci ci cet axe yi mooy santé sociale genre ak environnement loolu tamit benn bu ci nekk mënoon nañ koo jël faram fàcce ko mais dafay dafay dafay dafay dafay gudd mais wàllu santé euh, Mado sànq dégg naa mu junj ko ak euh, bijou gis nga wàllu paj mi Sénégal. foo ko gis nga tey système euh, syndicat bi nekk ci santé bi xam nga nu tudd. Mm. ànd gësëm ànd gësëm xam nga santé moom yaakaar naa ne mooy secteur bi gën a soxla quiétude ak dal su fekkee ne ña fa nekk dem nañ ba seen seen seen nekkin ak ni ñuy taxawoo malade yi jafe na ci ñoom ba mënatuñu ko te loolu enseignement Covid 19 la Covid 19 bi mu ñëwee dafa wane ne ñun sunu hôpital dañ ko seetaan. dafa wane ne sunu personnel soignant dañ ko seetaan ay jàmbaar lañ la personnel soignant mais li nga xamante ni moom lañ fay yóbbu ci xaalis ci ressource yi nga xamante ni ñoom fa ñoo fay dem ñoo fa dul dem suffisamment loolu moo tax rapport Covid Covid 19 bi tamit les 1000 milliards amoon solo trop bari na lecture yu ñu ci mën a def. bari na jàngat yu ñu ci mën a def ci koppar bu ñu yëkkati ne nañu fexe ba Cheikh Ngone jot ci mais ñu am fu ñu ko jaarale ba Cheikh Ngone du ci jot donc loolu tamit les infrastructures sont importantes. ci hôpital yi ñu fexe ba mu jot nit ñi ba mu jegee surtout zone yi nga xamante ni dañu nekk ay zone réculer ñun dañuy tukki lu bari di génn ci biir réew mi waaye am na barab yoo xamante ni tey amul yoon bu fa dem ku feebar am nga problème surtout jigéen ñi matu ci risque yu élevé la ñuy nekk dogguma la sax euh, président Djibril Fall. Mhm. day firndeel rek li nga doon wax léegi ndax euh, tey dama dem ci benn gox boo xamante ne ñu ngi ko tuddee càlle mhm. bi ma fa demee doon waxtaan ak soxna yi seen wàccaayu koor mais mu am benn femme bu fa nekk jot nañ fa tabax benn poste de santé mais li ko gën a metti ci loolu man ci tout tànk yi liiri mhm. lan la doon ñaxtu benn appareil respiratoire boo xamante ne dañ koy am ndax nee nañ léeg-léeg euh, jigéen bu wannee lor ba accoucher xale bi léeg-léeg day wan na ci ndox bi nga xamante ne mooy génn ci biiru yaayam te amuñu appareil bi tax ndox boobu génn donc ils sont obligés de sortir ci seen village boobu génnaat daw ba Tiwaawan te ku xam xale boobu liir la faatu bi day yomb day gaaw hmm. donc gox yu mel noonu parce que ce n'est pas si loin boo rombee juste Tiwaawan la mhm. première ruelle à gauche boo doxee tuuti rek dinga fa egg si mhm. utax jumtukaay yooyu mënuñu fexe ba egg fa pour jàppale ñooñu mhm. donc loolu loolu loolu mooy euh, may dëggal euh, Mado ñun loolu moom moo tax ñu dugg ci politique wax naa léegi ne man je suis un pur produit du monde rural te euh, am nañ xarit yoo xamante nii bi ñuy nekk xale ay feebar yu ñàkk solo moom mooy ñëw yóbbu leen nga nekk xale tamit di gis nit ñëw ci hôpital ba tàyyi am jafe-jafe am doom mu làqu léegi mm-hmm. te loolu yëpp xewi na fépp ci àdduna bi mm-hmm. ci suñu réew yi rek la des waaw loolu moo tax nag boo jëlee doomu aadama teg ko au cœur mel ni bu fi kenn faatoo mel ni ñëpp faatu su boobaa loolu day soppeeku ñun loolu lañu bëgg loolu lañu yéene pour senegal moo tax ci wàllu sante moom mm-hmm. képp ku yàlla bëgg bu ñu sénégalais yi wóoloo dénk ñu réew mi wàllu mal gouvernance ak wàllu corruption moom di ci noppal sa bopp ndax jàpp nañ ne képp koo xamante ni xaalis bu dugg ci santé détourné nga ko yow am na ku faatu koo xamante ni ci sa action ci la faatoo yow ci sa jëf ci la kooku faatoo donc loolu moo tax deuxième axe bi santé ak ci wàllu social mooy les les couches vulnérables mën naa tudd léegi nga xam ambassadeur laa ci je suis très bien placé pour le dire fi ne ni am na benn couche boo xamante ni dañoo bokk ci ñi gën a sonn mooy ñi bégee ñi dër man ambassadeur laa ci seen kuréel gi at mu jot bu ñu organiser ma ci nuyu Bachir bi nga xamante ni moom mooy présenté moom mooy moom mooy moo am ci taxawaay bu am solo nga xamante ni fi mu ne pour ñu am spécialiste yu leen faj rek problème la bariwuñu bariwuñ ci réew mi euh, new nañ trop par rapport ak ñi mu dal ñëpp xale yi sonn ci am ñu ci seen école di ci yàqu parce que boo nekkee classe yenn saa yi école classe bi dañuy dañoo war a accompagner maître bi bu pédagogie am doyul mën na la rëcc donc couche vulnérable yooyu dama tudd ñooñu rek mais mën na naa tudd ñu bari les personne en situation d'handicap ak ni ñu leen seetaanee ci réew mi nga xamante ni les lois d'orientation sociale am na mais taxawaay bi ñu leen war a taxaw dëgg dafa des te boo demee ci yeneen réew yëpp dafay am une discrimination à leur endroit te loolu jàpp nañ ne ñun loolu farata bu mag lay doon ci ñun mooy la protection des vulnérabilités loolu mënoon naa ci dugg ba mu sori mais dafa nekk au cœur de notre programme au cœur de nos de nos te day nekk au cœur des politiques publiques ñu ñëw nag ci beneen point boo xamante ni boo am solo la muy justice. mais est-ce que est-ce que waruñu waruñu woon a taxaw ci point par point par point par rapport ak les questions yi ñu ci war a poser. Mm. parce que ni nga koy waaw waaw. parce que waaw dama dama dégg nga wax wax bu am solo nga wax ni. Mm. da nga ko centré au autour de l'humain. Mm-hmm. maanaam nit wala xad karam na bani aadama. Mm-hmm. loolu mu nekk lu am solo. Mm-hmm. maintenant nit kooku dafa am fu mu war a jaar dañ ko war a yar. bokk na ci liy yar mooy école. mais ñun est-ce que am nañu école. est-ce que le Sénégal a école parce que école bi fi nekk dafa am ci ñu ñu ko donnee bi ñu ñëwee aussi bëri na yuñ ci def mais est que dëgg dëgg dëgg école bu ñu mën a tuddee école bu sénégalais euh, am na. Hmm. beneen question bi mooy euh, sànq dem dégg naa la nga tudd fii si ndii di tudd fii mag ñi gis nañu aussi lu ci bëri euh, même ci programme bi ma ko liré aussi gis naa ni wax nga ni ñoom itam dina am pàcc bu am solo boo xam ne bàyyi bàyyi maanaam bàyyi nga leen ci xel. parce que dëkk boo gis dafay am lu ñu tuddee un référent national loolu c'est normal tey boo demee Chine am nañu ko boo demee aux États-Unis Martin Luther King boo demee Inde ñu ne la Gandhi n'est-ce pas maintenant est-ce que tolluñu itam foo xam ne ñoom dañu bind damay faral di wax ni Serigne Touba la mu wax mooy man sama kiraama mooy suma mbindum loxo karamati xattu yaddi dafa am benn professeur bu ñuy wax Robinson bu jógee aux États-Unis d'Amérique mu ñëw doon defal benn conférence étudiants yi nekk fii Cheikh Anta Diop de dakaar bi mu ñëwee mu wax leen ni ki ma gis mu proposé benn projet de société bu réaliste et réalisable c'est Cheikh Ahmadou Bamba mu ya fa nekk di daanu ku nekk di tàccu mu bàyyi leen ba ñu tàcc ba pare mu ni leen mais malheureusement ça à et est destiné ce projet n'ont pas bien saisi le message est-ce que Pape tollu lu ñu foo xam ne aussi war nañu jël seen bind ñooñu ñoom seen li ñu bind. ñu jàngal ko xale bi parce que xale bi nekk primaire. wala ki nekk jardin tey boo ko jàngoon kun kaati man li durri wal buusa. danal qasdu wa taalul jila yaa mutaallimu yooyu ñu jàngal leen ko est que jàppoo ne mën na leen a defar ci seen yar ak teggin ba tey lu bari di xew du du xew. Euh, président xam naa ni sama question da koy yóbbaale rek ndax euh, ñoo bokk fi ñu jëm mën ak euh, pap man ci petite enfance lay ñëw ndax dañuy wax souvent jeunes yi jeunes yi jeunes yi te buñ koy wax xelu ñëpp ci ñi toll ci liggéey lañu lay dem ci ñi toll ci génn dëkk bi di voyager di mbëkk ak yooyu yu demee noonu. et gis naa ni muy yow ak candidat yu bëri seen projet dañu ko teg ci construire l'humain et je pense que c'est quelque chose de mondial ndax fépp foo dem ci àdduna bi bien Euh, nit ki moo gën a soxal ñëpp fi mu toll nii ba dañuy dellu sax ci côté développement durable ak lépp loo xam ne day indi santé nit bi développement wu xelam ak bien-être xam ma yaakaar ni loolu bu ñu koy commencé à bas la ñu koy commencé déjà bu xale bi juddoo rek ma da wax na ko léegi côté santé mais mille premiers jours xale yi rek ndax rien que éducation édu euh, euh, nutrition am mun na indi feebar yu bëri bañ ko dal Euh, donc petite enfance bi lan nga leen di waajal et surtout xale yi nga xamante ne man ñooy samay doom ñi nga xam ne ñu ngi ci pouponnière yi ndax gis naa la euh, nga demoon euh, seeti leen fan yi la ñu nekk Médina mais lan nga prévoir pour ñoom ndax souvent gouvernement bi mooy jël xale yi yóbbu leen fa mais bu ñu paree ci loolu. dinañ leen subventionné tuuti waaye da nga ciy gis pouponnière yoo xam ne dañuy dem ba bu ñu yalwaanul xale bi du dund bu leen nit ñi indilul donc xale yi duñ dund donc ñooñu ñëpp ci population bi la ñu bokk bu ñuy wax jeune ñoom lañu war a commencé donc lan nga prévoir pour ñoom donte commencé nga ko déjà. Euh, jërëjëf euh, <coughs> euh, Bijou jërëjëf Pape ñu laaj-laaj bu am solo te heureusement que li ma wax léegi mooy am nañ consensus ci diagnostic bi mooy xam nañ ne. jafe-jafe bu mag am na foofu bu dee ci wàllu éducation ni nga ko waxee léegi école bi ñu am nii ñun ci lañ jàngee mais dañoo jàpp ne ñun ci réforme yi ñuy def école bu ñu war a réformer la ci curricula yi ci contenu bi war ci dëxëñaat tamit lu bare bare bari notamment l'éducation religieuse loolu moom moo tax ñu jàpp ne Euh, bu ñu ñëwee dañ koy tëggaat ak boroom xam-xam yépp parce que ay assises ci éducation nationale yàgg na fi am boo seetloo it amaatoon na ci régime mu président Macky Sall problème mooy la mise en œuvre des mesures diagnostic yi ñoom def nañ ko xam nañ ne liñ doon jàng dañ ko war a yeesalaat dañ ko war a réformer des fois waxuma sax ci réforme ci contenu bi mais même forme bi sunu école yi niñ ko tabaxee boo tukkee gis jëmmi école yi niñ ko tabaxee. da ngay xam ne bëgg nañ mu nekk un espace d'épanouissement pour l'enfant duñ jël ay classe rek sànni fu ne ñu sànni fa classe jël benn mur clôture ko wala sa doom clôture pare ci parce que foofu la xale bi di passer plus de temps plus de temps mais day fekk ñu waajal ko et loolu day toucher question bijou asiatique yi dañuy wax ne tout se joue entre zéro tout se joue entre zéro et six ans donc zéro et six ans foofu dañ fa war a def liggéey bu mucc ayib ndax foofu ngay namme xelu xale bi di ko waajal ci école euh, te foofu bu ñu seetaanee kenn ku ci nekk di ko defee nu mu la neexee rek ñu bari mën nañ leen a bàyyi moo tax 1 7 0 bi mu wax ci 7 axes yi zéro bi mooy zéro sénégalais la ñuy du ñu bàyyi kenn ci yoon bi ñëpp lañ bëgg a yóbbaale loolu mooy inclusion képp ku ñu bàyyi dafa am euh, dëkk yoo xamante ni boo fa amee doom assistant sociale yi dañuy ñëw di nemmeeku sa doom ji nga jur. di xool ndax yow am na lu susceptible gaañ gaañ xale bi ci sa environnement su fekkee ne loolu am na ñoom ci seen bopp dañ lay alerter mën nañ laa dem jusqu'à retirer la garde de l'enfant xam nga lu tax ndax dañ naan la doom ji yaa ko jur mais moomu ko réew yëpp ko moom kii ëllëg lu ne mën na koo doon pour pour réew ma donc ki nga jur ëllëg mën naa doon lu ne pour Sénégal kon yow da nga ko jur mais moomuloo ko te lool c'est là où nit ñuy tuddee sax way jur mooy parent foofu lay protéger vulnérabilité yi mën a dal xale bi yépp waajal ko ci moom mu mën a màgg ci màgg màgg bu mucc ayib mën a jàng mën a jëriñ réewam buy buy màgg pour jëriñ réewam ci la citoyenneté ak civisme di dugg donc pouponnière yi muy wax loolu moo tax ñun les familles monoparentales daf ñu intéressé Sénégal dafa bari ñoo xamante ni suñu borom da leen nattu surtout ay soxna ñu am doom te amuñu ku leen taxaw yenn saa yi borom kër bi nekkatu fi wala yenn saaye sunu borom dogal divorce am te loxoom jotul ginnaaw mais kooku état waru ko seetaan et c'est là où la protection sociale prend tout son sens parce que kooku boo ko seetaanee mën naa dugg wala mu dugal xale bi ci loo xamante ni lu jafe la kenn ku ci nekk ci ñun tey xam na koo xamante ni am na doom te amul ku ko taxaw yenn saa yi mu jafe trop ci moom mu am problème mu lee bu mu ko jox am problème mu dem hôpital pour assurer ses rendez-vous am problème mu seeti pédiatre moom ci boppam am problème mu seeti gynécologue moom ci boppam am problème mu yi gën a basique bugguma dugg ci détails yi te du ko mën a mais kooku ñooñ dañ leen war a recenser identifier leen gunge leen société bi amul droit seetaan leen loolu moo tax protection sociale da ngay am sensibilité d'abord loolu moo tax am jëmm ju màgg joo xamante ni daf ci def liggéey bu am solo Abbé Pierre la tudd wax naa léegi logement sociale ci France en février 1954 mu def appel bu am solo Abbé Pierre maa ngi koy loo xel surtout ndaw ñi tey kooku ci action Abbé Pierre ci la France amee ay loi d'orientation sociale yu am solo rawatina ci wàllu logement ak logement sociaux sonal le ministre du logement ba ñu am léegi avec le truchement avec les collectivités territoriales ñu am ay budget yoo xamante dañ ko yóbbu ci wàllu woo pour logement sociaux mieux encore tey jii boo seetloo dëkk yooyu nga xamante ni bu bu sedd ñëwee hiver amuñu droit ki la amul droit génne la parce que bi muy def son fameux appel de février 1954 dafa am ko femme boo xamante ni dafa génn mooy famille monoparentale yi may wax léegi femme bi bi mu génnee ñu fekk ko mu faatu ci suufu pont bi ci sedd bi ci loxo mu ngi ci yoroon papier d'expulsion ñu génne ko kër gi moom ak doomam mu dee gelé Abbé Pierre ne il faut rendre impossible cette situation daal di lancer un appel extraordinaire mu am un élan de solidarité extraordinaire mu ne koo mën a doon ak foo mën a jóge nañu tijji ay maison de dépannage ci la liggéey boobu tàmbalee ba jur la fondation Emmaüs bi ngay gis tey un peu partout dans le monde ba nga xam kooku Abbé Pierre ci wooteem boobu la jóge sensibilité boobu ak yërmande boobu moo mënta ñàkk ci njiit loolu moo tax ngay jaaxle trop tey kat qui est directeur de la petite enfance au Sénégal directeur wala directrice Bijou xam nga ko te Bijou ci loolu lay yëngu te xamu ko ban budget lañ leen affecté yenn saay sax dañuy xool ci parti politique bi jël benn politicien yóbbu ko foofu pour récompenser ko politiquement te am na ñoo xamante ni ci ñun dañoo dem jàngi petite enfance xam ko am na ku ma xam ma koy nuyu dafa ñëw Sénégal pour tijji crèche mais elle s'est rendu compte que moom dafa am lu war a jiitu tijji crèche bu mu war a def mooy il faut que mu former ñi war a taxawu xale yi ci biir crèche bi parce que c'est un métier qui demande de la bienveillance qui demande la générosité qui demande de l'engagement waaye ka fay ne warta nam dara lu dul taxawu xale yi keroog bi ñu demee effectivement bi Bijou wax na ko bërki démb ci 8 mars bi ma ciy nuyu les femmes serviteurs yi nga xam dañu nekk ci suñu biir parti xam bi ñu xam sensibilité bi ma am ci loolu moo tax le 7 mars le 8 mars dañ na ñoom du ñu dajaroo di def ay puukare ay mbumbaay ma ne leen lu ngeen di def ñu ne ma dañuy dajale xaalis jënd ci ay denrées daal di koy yóbbu fële ci sœur franciscaine yi nekk Médina pour servir rek sensibilité boobu bu ko raw foofu la ñu am te bu ñu nekkee président de la République du Sénégal la petite enfance ci phase bi yëpp gunge parents yi taxawu leen ba ñu mën a jàng mën a yar école bi ngay wax ci budget bi li ñu wax mooy douze milliards la ñuy affecté par exemple moi je suis un pur produit de l'école catholique Notre-Dame de la Paix bu Caajaay laa jànge ma leen di nuyu ñoom ñëpp di leen gërëm ñi ma fa amoon maître yu baax c'était beaucoup plus des maîtres c'était des des repères ñu accompagner ñu ma ci gërëm kenn spécialement su ma ko tuddee tudd ñëpp Michel Ndiaye la tudd moo nekkoon le directeur à l'époque bienveillant bu maître amaan empêchement professeur bu amaan empêchement ba ñëwul moom mooy ñëw jël classe bi jàngal ñu doon ñu préparer avec beaucoup de générosité beaucoup d'engagement ma koy may may ñaan suñu borom Euh, mu yërëm ko xare ko aljana di ñaanal njabootam bu baax je suis un produit de l'école catholique foofu laa xame njëriñu éducation religieuse loolu moo tax ma jàpp ne douze milliards yi ñu wax ne dañ ko war a yóbbu ñun bu ñu ñëwoon dañ koy porter à cent vingt milliards parce que xam nañ ne njëriñu éducation religieuse te ci transformé bi ci soppi bi ñuy soppi réforme bi ñuy réformer curricula bi dañuy intégrale eh, dañuy dañuy intégré wale li nga xamante dañ ciy boole éducation religieuse parce que tey foofu ngay jëlee valeur civique et citoyenne xoolal boo da jëlee dëkk bu mel ni Louga bari na fa édifice public yoo xam kan moo ko def du Alaaji Jili Mbay hmm? ba ci palais ba fa nekk ba tey président de la république bu fa demee sax foofu lay fanaan fan la jëlee valeur civique et citoyenne yooyu dul kokki moom ak sëñ Sàmbay ñoo njëkk a mokkal alxuraan kokki ma leen di rendre hommage 14 mars bi lañ leen doon delloo njukkal foofu lañ ko jële boo jëlee tey jii Médina Gounass loolu lañ fay def boo jëlee Léona wala Médina Baye ci Kaolack loolu lañu fay def boo jëlee Fass Touré loolu lañ fay def boo jëlee dëkk dëkkaan yooyu yëpp boo jëlee fii ci Cambérène yoof Ngor loolu lañu fay def mais loolu jàpp naa ne bu fekkee ne dañoo bëgg a tabax un sénégalais boo xamante nii dafay nekk en phase avec les valeurs civiques et citoyennes les valeurs cardinales nos réalités socioculturelles mais faw ñu dooleel ñooñu loolu moo tax du ñu lésiner c'est-à-dire que xaalis dama ko yàgg a wax xaalis booy def ci éducation xaalis booy def ci santé doo ko lim doo ko tudd di ko réyal parce que foofu da ngay investir investissement boo xam doo ko inaugurer génération yi ñëw ñoo lay delloo njukkal ngir liggéey bi nga def te politicien malheureusement du sawar ci luñ dul inaugurer loolu moo tax réglé wuñu assainissement ba tey Sénégal parce que assainissement da ngay jël ay milliards nga suul ko te l' assainissement c' est la dignité barki dem bi ma demee kunun rek loolu laa fa fekk problème mu assainissement nawe dangay nekk ci noor di am ñax boo nekkee ci noor di am ñax mooy fii kat wax dëgg yàlla am na problème mu te loolu lañ fa fekk donc loolu moo tax axe yi ngeen tudd noonu la protection sociale dafay nekk la préoccupation bi ñu gën a am ci sunu mandat bu njëkk war ci def liggéey bu am solo tudd naa soxna yi tudd naa soxna yi nga xamante ni yàlla daf leen dina nattoo ñu am doom te amuñu ku leen taxaw yenn saa yi sax du ñu am métier yenn saa yi du ñu am liggéey te même bu ñu amee liggéey danga soxla accompagner leen beneen bi mooy tudd naa les personnes qui vive avec euh, un handicap ak bu mën a nekk handicap bu mën a nekk laa wax ñun xamal ne am nga euh, ku lay taxaw ci sa wet nekk ci sa wet gunge la parce que ñun ñëpp kenn ku ci nekk màgg na am na ku ku la jege koo xamante ni handicapé la am na handicap benn boroom xam-xam day wax ne sax ñun ñëpp ay handicapé la ndax ku nekk am na loo tële ku nekk am na loo tële te ku nekk la nga ca tële soxla nga ku la ci taxawu kon ñun dinañ taxaw ci seen wet gunge leen te am nañ ci taxawaay yoo xamante ni ñu ci bëri ci ñoom xam nañ ko xam nañ suñu yéene euh, tudd naa ñi nga xamante ni dañu nekk les personnes âgées vulnérabilité la tey jii pour nga am ñi leen di faj ci Sénégal néew na par rapport ak lim bi ni mu toll te soxla nañ taxaw boo boo seen plan bi ñuy wax plan Sésame tey jii boo demee tey fañ leen di faje danga fay fekk mag yoo xamante ni quatre heures du matin la ñuy ñëw wala trois heures du matin ndax gratuité ba tu turu gratuité la sax waaye boo fa demee da ngay gis koo xamante ni day ñëw mag bu ñëw amul ku ko taxaw amul ku ko accompagner nga xamante ni ñam fa fekk sax ñoo koy dimbali pour mu def ses besoins kon mag réew mu ñuy tabax dañoo soxla ay réew mu ñuy tabax dañoo am na ay jéego mais des na Cheikh mais des na euh, mais des na li may wax mooy des na sama yéene moo rëy xam naa par rapport ak yow xam nga man dama bëgg a nekk président de la république moo tax waaw ma ma jeexal foofu ngir yàlla mm. dafa am solo li ma bëgg a wax réew mu ñuy tabax dafa soxla ay magam c'est la culture de la transmission dañu soxla seeni mag ànd ak seen wér-gi-yaram ànd ak seen xel ànd ak dal ngir mën a accompagner mais tey kër yi retraités yi ñoo ko yor kër yi retraité da ngay gis Sénégal kuy tabax kër ba màgget kër gi doo ko pare da ngay retraité kër gi doo ko pare parce que amul logement sociaux te logement sociaux boobu nga xam tuddoon naa ko léegi toujours ci protection sociale moo tax ci 1959 Sénégal daal di taxawal lu tudd OHLM. office des habitations à loyer modéré keroog Barthélémy Diaz ma koy nuyu wax na lu am solo nee na papam benn mérite la am mu ne moom kër papam la dëkk ba tey ne papam mérite am xam nga mooy lan mooy fekk SICAP société immobilière du Cap-Vert di tabax ay kër di ci dimbali ay sénégalais ñu mën cee dugg ak seen njaboot di ko fay ci diir bu yàgg te duñ ko yëg Barthélémy nee na moom loolu nee na loolu état du Sénégal mënoon état du Sénégal mënatu ko léegi waaw moo tax OHLM boobu. nga xam moo moo moom ak SICAP les deux seur jumelles de du logement social de l'habitat social ñoom ñoo permettre ay sénégalais ñu mën a yar seen njaboot ñu mën a am kër un logement décent à un prix boo xamante ni presque moyen wala dérisoire ñooñu SNHLM boobu SICAP moo tabax société mooy société immobilière du Cap-Vert moom moo tabax dakaar boo jëlee SNHLM OHLM boobu moo moo soppeeku doon SNHLM ba ci la banque de l'habitat moom moo nekkoon seen partenaire technique bi leen di accompagner li may wax nii ñi fi yàgg tuuti xam nañ ci dara ñoo tabax Gibraltar ñoo tabax HLM yi ba mu jeex ñoo tabax Liberté 1 ba nangam ñoom ñoo tabax euh, ñoom ñoo viabiliser SNH euh, kii euh, Parcelles Assainies ñoo viabiliser Kër Massar mieux encore ñu déployer wu dans les régions tey jii ban région ngay dem ci Sénégal te doo fekk HLM région boo dem am na HLM région boo dem boo demee Saint-Louis am na boo demee Fatick am na boo demee Ziguinchor HLM Néma Kajoor boo demee Thiès HLM Thiali foo dem ngaay sax dem naa fa ñu wan ma benn cité HLM te loolu yëpp Sénégal mënatu ko ñun dañoo bëgg a delloo si logement social muy man Abdoulaye Diédhiou muy yow yéen ñëpp ñi toog fii ci plateau bi yëpp location bëggu leen a rey. Ah, a ci léegi nag ñi nga xamante ni dañoo bëgg location teggeeku leen parce que ñun de on va faire très fort dans le logement social te fi ñu koy jaar xam nañ ko. fi ñu koy jaar mooy le foncier d'abord dafa laaj un foncier disponible dafa laaj un financement adapté dafa laaj une fiscalité bien aménagée ce sont les trois F. d'accord fiscalité bi mooy intrant yi nga xamante ni mooy dugg si ci tabax nañ la ñuy def ba mu jàppandi. mais nan mais Mado est-ce que xam nga Sénégal am nga ñetti cimenterie yi c'est y'a Sénégal où la concurrence ñet ñetti cimenterie yi ñeent y'a Sénégal où la concurrence euh, consommateur bi moom jëriñu ko dara mais tonnu ciment ngi bëgg rey gor yi te am nga ñeenti cimenterie yi te feeñul ci prix bi nga am fer bu doy te fer mënoo ko teg bët nga am toile forte bi nekk fii di def carreau te yow mënoo am carreau te ñooñu ñëpp tey ñoo ngi jëfandikoo Sénégal sa position stratégique pour se déployer sur le reste de l'Afrique et du monde parce que ñun ñoo am une ñun ñoo am stabilité mais ñun ñoo am benn façade maritime bu leen di permettre ñoom ñu ñëw nekk fii ba pare mën a mën a kii donc ñun te loolu ndaw ñi laa koy gën a waxal man su ma sañoon tey kenn du màgget doo ko dugg ci sa kër suma sañoon ndaw ñi location teggeeku leen ku dem bay luye ndax location mënta ñàkk ndax am na ñoo xam tam dañuy tabax pour louer mais ça doit pas être ad vitam aeternam c'est-à-dire que jaaruwaay la war a doon pour nga mën a am sa yëfu bopp. kon axe yooyu yëpp ci protection sociale lay dugg réew mi nag comme néew di doole yi ñoo fi ëpp loo def lu dul taxawu askan wi yàq nga ko. loolu moo tax bu ñuy xeex pour souveraineté tey saaku ceeb ñaata lay jar fi mu ne nii. ah vingt cinq mille. vingt cinq mille. kan moo kan moo ko mën fi ne. kenn suukar si suukar si boo jëlee fii tey ci Richard Toll liñ fi produit ci suukar nu mu toll ah. kan moo ko xayma président président kan moo ko inventaire mais lan moo war a nekk lan moo war a nekk solution solution parce que exposé nga fi ay problèmes solution bi lan la maanaam lan lan moo a solution bi lan la Pape boo ko exposé solution bi lan la nga ni lii ma fi fekk parce que buñ la déggee xam solution bi lan la dama dama a lay wax solution bi la ni ngay waxee mhm. euh, ni ñu la déggee ci sa analyse yi ngay def maintenant euh, dama bëggoon nga indi ci ay saafara. saafara léegi léegi bàyyi ma dem bàyyi ma dem après ma bàyyi la nga continuer Pape. xam nga PNUD am na benn rapport bu ñu def mercredi 13 mars indice de développement humain Sénégal mi ngi placé wu ci 169e place sur 193 pays alors que en 2012 ñu ngi woon ci 150e 154e place maanaam kon conséquence mooy am nañu recul 14 places Togo. Mauritanie ñoom ñëpp ñu ngi suñu kanam. man fa laa bëgg a dem sax Togo. loolu loolu loolu tey buñ bu ñuy wax ci loolu maintenant mu ñu indi développement humain mën nga ko tënk ci. njàngale ci njàng ak yu ni mel tey jii loolu ban saafara dëgg-dëgg ngay indi ba Sénégalais yi seen niveau de vie mun a mën a mën a jag ba ku am mën a jënd. problème yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel aussi ñu mun ci génn. léegi léegi lenn saafara gi léegi dama la dama ne Jibril baal ma de ci saafara yi rek dama bëgg nga buru xalaale ci sama bos ci wàllu logement bi ngay wax parce que di nga gis nit koo xamante ne day tabax immeuble am hmm. moom day préféré di ko louer ñu koy fay tout le temps moom muy encaissé xelam hmm. peut-être du dem mu ne xaaral ma def ko sax location vente pour permettre peut-être nit ki nga xamante ne day loué moom dina ci mën a génn. Hmm. ci ñooñu yow pour yow ban solution nga mën a teg par rapport ak euh, ces gens là pour ñun ñu mën a am léegi li pap wax léegi Pape xam naa ne dégluwoo ma xam nga eh, xam naa émission bi dafa dafa xaw a gudd danga nga sonn dégluwoo ma ci li ma doon wax léegi bi ma waxee logement social. tudd les 3F tudd li ma fi tudd yëpp loolu mooy solution yi nga xamante ni moom lañ ci am. mooy dañuy ñëw changer totalement de cap paradigme bi la ñuy changer beneen bi mooy li nga ne lan lañ ci saafara li ci jiitu mooy une volonté politique volonté politique volonté li mu mën dafa am solo duma ci dugg mais volonté lu mu mënta soppi amut Serigne Cheikh Ahmed doom mooy wax ne xamul yitte xamul soxla doomu aadama boo xamante ni yitte xaj na ci ñun volonté boobu la ñu am pour changer les choses lenn lu ci nekk nous avons l'un des meilleurs programmes ci campagne bi présidentielle bi un programme boo xamante ni dañ ko passé à la loupe et au peigne fin avec des experts dans tous les domaines de la vie gisoo benn critique bu jóg jëm ci suñu programme di ko jéem a di ko jéem a salfaañe amut programme yi daanaka yëpp ndroo presque daanaka yëpp ndroo pacte bi ngay wax gis nañu euh, coalition Idy 2024 euh, loolu la wax Déthié Fall également même chose ba si xalifa ba Babacar Sall. léegi mais mais man ba pare. jàngat moyen yi tamit bëggoon naa xam fan ngeen. jàngat bi jàngat bi ma ciy def ci li kii wax ñun dañu am bijou benn programme boo xam ne dañ ko chiffré. wax leen lu ci nekk ne nangam lañ ciy jëlee fii lañ koy jëlee fii lañ koy def mais li li li Cheikh Diop wax léegi ne programme yëpp nuroo Euh, bon peut-être qu'il a lu tous les programmes. mais mais <laughs> euh, mais li ma bëgg a wax li ma bëgg wax kon mooy. tous les 19 xibaaru marax yi tous les 19 candidats méritent d'être des candidats. parce que éduca euh, euh, présidentielle c'est une chose sérieuse donc te Sénégal am na ay boroom xam-xam moo tax xam-xam bi dafa am leneen loo xamante ni moo ko war a gunge muy volonté muy am yéene def muy xam li xew tamit. parce que tant que xamoo li xew pour nga jël décision dafay su fekkee xam nga li xew tamit te amoo yéene amoo yërmande tamit su boobaa rien ne changera. loolu moo tax ñun dans la réaffectation et la redistribution des richesses su boobaa xam nañ fi ñu ko war a yóbbu xam nañ fi ñu ko war a def mais duñ ko bàyyi avec une bureaucratie boo xamante ni moom mooy jël. li war a dem ci alal ji ci ci ci ci investissement ñu koy def ci fonctionnement loolu duñu ko nangu léegi pour revenir ci sa question bi nga doon wax léegi par rapport ak euh, le logement lu ma ñor la man très sincèrement parce que du ma ñëw raconter sax une des histoires yoo xamante ni histoire personnelle la mais dama xam ñu mu dal ñu bari. Mm-hmm. dama xam ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ku leen bëgg a taxaw dëgg foofu ngay dugg foofu ngay taxaw dama xamit am kër ak cadre de vie njëriñ bi mu am ci xale pour mu mën a màgg mm-hmm. dama xam instabilité bi ci nekk ci weer wu jot wala ñaari weer yu jot huissier ñëw di la fëgg traumatisme boobu baaxul ci xale amit d'enfance sax doo ko am ami d'enfance sax doo ko am parce que foo dëkk tey suba nga génn fa dem feneen donc man sama sensibilité foofu laa ko jëmee moo tax ma ne ci logement boobu pour régler ko ginnaaw bi ma ne ci éducation nangam la ñuy def ci santé nangam la ñuy def ci logement social Euh, te néew na nag candidat bu koy tudd de logements sociaux xam naa ne comme waxtaan naa ci tey gars nañ commencé di ci wax <laughs> waaw ndax ñu ci bari voilà tawarkal la waaye sensibilité boobu dañ ko am ñun te ñi ma yàgg a suivre yëpp xam nañ ne am nañ ci yéene pour def ko beneen bi mooy gis nga bijou Sénégal ñàkkul alal xam loolu su ma ko waxee day xaw a kii ci day yàlla sax am na lum ñu dimbalee feeñal ko fi waaye donte loolu balaa loolu di ñëw sax li fi jota ne suñ ko yoroon niñ ko war a yore nit ñi mën nañoo dund dund gu teey li ma sama benn xarit naan 7000 milliards yi ñëpp xaj nañ ci ba des mooy le budget mais problème mu gouvernance la am ñaata yoon ngeen fiy dégg ay détournement de deniers moo tax ñun li may wax tout le temps dañuy fatt fépp ba kenn du gis benn prox ndoll boo mën a jaar pour jël alalu réew mi képp koo xamante ni yàlla nattu na la ba nga jël ko tamit di dinañ dinañ la dinañ la dinañ la téye te di nga delloo alal ji parce que lu ñëpp bokk ñenn rek mënuñu koo jël lijjanti ci seen bopp bàyyi askan wi di bëgg a dee gàcce la sax pour man nit ki mën na liggéey am teraangaam waaye fekk alal joo xamante ni dañ la koo dénk nga def ay ay ay ay ay ay ndax xam nañ yoon yi gars di jaar yëpp pour jël dañ leen di jox ay marché wala ñu jël ay marché jox ko koo xamante ni xamu ci dara jël jox ko cheikh cheikh journaliste la nga ne ko tabaxal ma tali cheikh mënta tabax tali bi dem jox ko pap pap mënu ko ba tey de pap cheikh Diallo mën a tabax tali ah. mais nan nga bëgg tali bi baax ah. te ki bëgg a comp kii bëgg a comp keneen bëgga a comp mhm. boo jëlee les bu ñuy defa édifice public noonu la mhm. da ngay toog ba ci ak gis muy toj tali yi noonu boo tukkee da ngay fekk tali yoo xamante ni dañ naan la tali bi def na nangami téeméeri at. mais da ngay gis mu ne cocc. ñun loolu ñu gis feneen loolu lañu ñu bëgg a defar suñu réew xam nañ ni ñu koy defee xam nañ ñi ko mën a def ñoo ngi fépp ci biir àdduna bi te dinañ leen jëli wax naa ko léegi ak fu mu mën a nekk te li te loolu moo tax am nañ post yoo xamante ni dañ leen di ciblé mënoon naa ci tudd yu bari duñ ko duñu duñu duñu ko jox kuy politique dañuy def ay appel d'offre jox ko ay boroom xam-xam. loolu engagement la boo xamante ni maa ngi koy jël fii comme léegi jamonoy vaar la maa koy jël fii maa ngi koy jël fii am na poste yoo xamante ni ku jàpp ne buñ la ko joxee pour nga bégal chef de l'état mooy nga politique yi xamal ne perte nga contrat de performance lañ lay laaj mooy buñ la joxee cahier de charge tabb la fenn dañ na la yow est-ce que liñ la tabb yow atteindre nga say résultat ou pas benn yoon lañ leen félicité léegi loolu moo tax dañoo gis d'ailleurs ci régime yi fi jàll yépp da ngay gis politicien boo xamante ni dañ koy tabb fenn du atteindre mukk ses objectifs ba bu ñu ko invité télé sax du waxtaan ci liñ ko dénk waaye day waxtaan ci prouesse politique am te et tant que mu ngi def prouesse politique il est à son poste il est nul dans son domaine ci liñ ko dénk du ci yëy du ci yàbbi mais à chaque fois il est reconduit dans le gouvernement. parce qu'il remplit ah, parce qu'il remplit le contrat. parce qu'il remplit le contrat politique. léegi euh, président Pape Pape Djibril euh, fi mu nekk nii bu fekkonte ne ñëw nga euh, yow la ñu nommé nga nekk président de la république. élire élire nañ la yaay du moins <laughs> merci nañ la yow yaay président de la république. ak li nga tënk yëpp si sept axes prioritaires yi nga xamante ne mooy offre sociale bi ngay proposé tey bu doon dem na sax sur le plan économie bi nga teg ko Sénégal fi ñu toll nii dafa am benn particularité boo jëlee un peu la la géopolitique su régionale fi mu ne nii boo xoolee réew yi ñu wër yëpp. ñàkk jàmm bi fa am diggante Mali Burkina façon et cetera nga xool li nga xamante ne am nañ ko fii pétrole souvent ñu koy méngaleeg la malédiction du du pétrole. si sa si programme bi nga xamante ne moom nga indi forcément pour que nga mën a di continuer di développer réew mi il faut rek nga jéem a allier et ce côté. Euh, vole volet sécuritaire la ak foo volet économique. Mm. tey jii euh, ak contexte bi ñu nekk nii CEDEAO amatul daa daanaka. Mm. lan nga mën a euh, pré prévoir sur le plan sécuritaire. Mhm. parce que balaa nga ne naam ne mhm. boo amoon toutes les les les plus grandes ambitions du monde bu fekkente ne jàmm amul si sa réew wala si kër li ko wër wala amoo les moyens. Mhm. mën a sécuriser sa réew. dina nekk lu jafe torop lan nga prévoir pour allier. aussi bien le développement économique mais également le benn programme ambitieux sur le plan sécuritaire pour assurer le développement euh, durable du Sénégal. déjà li ñuy li souveraineté bi ñu doon wax léegi sécurité daf ciy dugg. ma ciy profité d'ailleurs di rendre hommage au force de défense et de sécurité euh, ñi tukki yëpp ci zone frontalière yi fii ñuy wax ni am na ay doomu Sénégal yoo xamante ni ña nga taxaw ci post yi di assurer sécurité Sénégal malgré le fait que ñuy wax ne sunu frontières yi dañu yaraax waaye am na ñu ciy def liggéey bu ama am solo ngir sàmm Sénégal ngir sàmm Sénégal les personnes et les biens ñuy liggéey itam dans des conditions excessivement difficiles ñu leen di delloo njukkal muy gendarmerie muy police muy armée ci wàllu géej gi ah patrouille yi ñuy def di ci di ñu lijjanti lu am solo xëy na yenn saa yi communication bi ci war sax ñoom du ñu ko def waaye lu bari lañ ñuy dimbali bu ñu mënee nelaw ci jàmm ak salaam ak àdduna bi ni mu jaxasoo nii ak Sénégal ni ko li ko wër ak intérêt yi ñu ci am ci wàllu pétrole ak gaz donc ñun jàpp nañ ne budget dañ koy yokk considérablement bi jëm ci force de défense et de sécurité renforcer am na président Macky Sall am na benn programme bu mu fi defoon bu mu fi tuddoon programme bu am solo la mooy le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers muy PUMA jàpp nañ ne waaye da ngay gis ne li may wax toujours rek politique ni muy yàqee souvent même projet yu baax yi daf koy yàq tey jii boo jëlee PUMA da ngay ñëw fekk seen siège nekk fii ci VDN bi alors que yow yaa ngi war a intervenir sur les axes et territoires frontaliers léegi ñooñu nan ngay def ba liggéey boobu ñu war a def ci axes et territoires frontaliers yi pour renforcer le sentiment d'appartenance de tous ces yi nga xamante ni ñooy vivre ci frontières yi ba nga xamante ni ñoom kenn du mën a jaar ci ñoom ba mën a atteindre réew mi donc loolu nekk liggéey bu ama am solo beneen bi mooy ci wàllu géej gi ndaxte ñu bari tamit foofu la ñuy jaar gis nga li xew yeneen réew mi ñaanuma ko yàlla ñi nga xamante ni ñooy dogale bato yeeg di def yenn yi donc sécurité comme diplomatie liñ ciy wax lu ci bari maanaam du ci place publique lañ koy defee waaye xam nañ enjeu bi Sénégal posé fi mu ne ci wàllu pétrole ak gaz loolu moo tax man toujours ci espace public dama naan su ma sañoon ñu am des hommes politiques matures des hommes politiques des hommes et des femmes bien sûr matures et ba nga xamante ni dinañ xam fi ñu toll ak fi Sénégal toll ak ñi nga xamante ni bu ñu sañoon Sénégal wëy di am stabilité mais am na ci ñoo xamante ni ci sunu instabilité ci lañu bëgg a profité loolu tamit dama bëgg ñu xam ne réew li ci jiitu kaaraange ci la bokk kaaraange aar nit ñi taxawu leen donc euh, ci aspect ci côté boobu aussi euh, dañ ciy lëkkaloo avec le voisinage ñu am une diplomatie boo xamante ni bu mucc ayib lay doon ak ñi nga xam ñoom lañ seqal Sénégal ci suuf si ak ci géej gi ba nga xamante ni ci sunu coopération yi ñuy am dina mucc ayib ba kenn ku ci nekk dina mën a aaral moroomam la nga xamante ni moom la war a def noonu la ñuy dëgërale les institutions sous-régionales te loolu yëpp dafa laal li nga xamante ni moom mooy muy muy muy UEMOA mm-hmm. muy CEDEAO ba ci Union africaine bi nga xamante ni moom la ñu bokk wax naa léegi les accords de pêche d'accord man président de la république bëgg naa def sama kéemtalaay kàttan ba Sénégal. Mhm. dootuñu ne Guinée mooy négocier ak Union africaine. d'accord Union européenne. Mhm. bal ma may gale dootuñu ne Sénégal mooy négocier ak Union européenne mais dañ naan Union africaine mooy négocier ak ki nga xamante ni moom mooy Union européenne. Mhm. parce que su boobaa du am déséquilibre. tout à fait su boobaa dinañ fekk ñu waajal ñi gën a xarañ ci ñun ci wàllu négociation ñu dem à la table de négociation mu nekk ay nit yu mat li ñu doon. nekk ay nit yu bëgg seen réew incorruptible pour mën a défendre l' intérêt général nga xamante duñ négocier couché wala à genoux mais dinañ mën a taxaw réew mi dafa mën a taxaw surtout foofu parce que ñi ñi yëngu ci wàllu dafa bari gis nañu signé nga charte bi am na bu ñuy joxe sax ne si plus de 600000 personnes ñu ngi ciy yëngu na ay ay nappkat 700000 waaw ay nappkat li ñu leex mooy nee nañ chiffre boobu moom lay a ngi nii moom dégg am na nappkat bu mu wax loolu tey ci wàllu accord yi ak licence de pêche yi nest pas beneen boos yi boobu ba léegi ñu ngi sàkk audit ci pavillon sénégalais bi ci maanaam ñaata bato moo fa nekk bato yooyu fan la ñu jugee ak yenn façon euh, licence lañ leen signéel yooyu yëpp Pape je pense que ni est-ce que am nga ci euh, euh, ci wàllu licence yi ak accords yooyu nga wax ban politique ngay teg dëgg dëgg dëgg ba nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy nappkat yi dootuñu dundati jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund tey jii benn jour maa ngi seetaan jàkkaarloo Pape am benn xale bu ñu ci invité moo duggoon ci gaal gi nga xam ne moo moo tàkkoon ci gaal ci ci géej gi mais bi ñu ko waxee ni ko ba xam di nga demaat mu ni sii dinaa demaat li tax may dem mooy dafa maanaam image bu reetaanu la mu ni bateau yi nga xam ni ñooy jël suñu jën yi di ko yóbbu ñu ne ko waaw mu ñooñu laay dem pour nanguwaat suñu jën ci ñoom image bu reetaanu la mooy licencié yeeg yooyu tey ban taxawaay nga ci nga ci naraam euh, Pape euh, jërëjëf euh, Pape ci laaj bi nga xamante ni laaj nga ko wax naa léegi ne charte bi dama ko signé sans réserve. waxoon naa tamit ne amul lenn luy tere su ñu ñëwee ci wàllu napp gi ñu def ci liñ ci war a def. la politique bi ñu ciy def c'est très simple mooy fexe ba ñiy dund ci napp gi mën ci dund confortablement muy ñu nekk Mbour muy ñu nekk fépp ci ci sunu côte bi yëpp les 758 kilomètres de code yi nga xamante ni am nañ ko. Euh, inventaire du pavillon Sénégal. loolu dañ ne ci charte bi daf ci am ñi ma yàgg topp yëpp yàgg naa tudd pavillon Sénégal foofu dafa am sax mbir yu day waar yu fa am moo tax investigation lay laaj yu profonde ba xam ndax amul ay bukki yu sàngoo deru bëy loolu mooy lan mooy da nga ciy gis navire de pêche boo xamante ni tey dañ koy tuddee Kayoor ndekete ab doxandéem a ko moom daal di laqatu ci benn sénégalais ñu nekk di napp nga foog ne ay sénégalais ko moom ndekete ay sénégalais moomuñu ko loolu suñu responsabilité la loolu suñu combat de génération la loolu boo placé wul l'humain au cœur doo ko def moo tax ñun loolu dafa leer ci suñu bopp moo tax sànq ma wax ne bi ma demee ci ñoom di signé dama ne donte ñëwuma fi woon loolu dama koy def parce que dafa nekk ci suma programme lu jiitu ma fay dem mooy inventaire du pavillon il ne demande pas beaucoup dama leen wax keroog ne leen yéen seen charte bi sax li ngeen ci dëxëñ daal néew par rapport ak ku bëgg a dimbali Sénégal li war a def xanaa xamoon ne tudd naa fi léegi wàllu malnutrition mais xanaa xamoon ne tey boo demee ci euh, ñi nga xamante ni ñooy pédiatre yeeg yooyu nutritionniste yi mais lu bari loo xamante ni war nga koo dundee war nga ko accompagner xale bi ci wàllu lekk gu sell ci géej la war a jóge mais bu dee yow amoo jën yu yoo lekk. fan la nit ñi di wére bu dekkee ne say légumes baaxul fan fan ngay wéree bu fekkee donc ñun loolu dañuy am claire conscience ci ñàkk bi ñu ñàkk géej gi li mu jur leer na ci suñu bopp tey ji boo demee dëkk bu mel ni gànjool mais gànjool tey boo fa demee daanaka pour nga fekk fa xale bu góor en temps normal problème la parce que ñoom ñëpp Cap Skirring la ñuy dem di nappi te pourtant am nañ fu ñu war a nappe mais protégé wuñu ko ci nit ñu nga xamante noonu lañ ko war a protéger am nañ suuf suñ war a bay mais dimbali wuñ leen gunge leen donc Pape maa ngi dalal sa xel ne bu fekkee ne dafay laaj repos biologique dina am inventaire pavillon Sénégal dina am pêche artisanale dina dund pêche industrielle dina dund. pêche industrielle boo xamante ne détenue par un privé non pas local mais national waaw la nuance est importante. pas un privé local mais un privé national waaw donc loolu dafa nekk chantier bu mag boo xamante ni am nañ ko li may wax tamit Pape moi je suis j'appartiens à une génération boo xamante ni sunu dugg ci politique dafa dafa war a jeexal ay tappale ci politique dafa war a jeexal dunde politique loolu moo tax ñu tudde suñu bopp les serviteurs on va être à la tâche ba keroog ñuy wuy ji suñu borom loolu moo tax loolu moo tax waxuma wax joo xamante ni day nuru waxu kuy wut damay wax wax joo xamante ni ñi koy dégg xam nañ ne waxu ku bëgg defar la j'ai envie de travailler pour ce pays de faire travailler les Sénégalais toutes les ressources humaines de qualité de ce pays ñu woo leen à l'effort de construction nationale parce que réew mu ñuy tabax la donc loolu vraiment c'est un engagement fort boo xam dañ ko def devant les Sénégalais te wax jii may wax wuutewul ak serment bu may def en tant que président de la république bu war a waat ci kanamu sénégalais yi. président Djibril Pape Djibril si ah. am na fi ne nii débat bi fu mu fu mu toll. Mm-hmm. mooy la monnaie. Mm-hmm. Euh, ñenn ñi nga xamante ne seen euh, xam-xam màcc na ci nee nañ. Mm-hmm. Sénégal war na dem vers une monnaie unique ñenn ñi nee nañ déedéet. waruñu si dem. Mm. mais liñ si mën a jàpp déjà mooy que une monnaie pour que nga am ko une monnaie locale il faut nga am devise boo xamante ne si lay reposé wu. ñàkkul ne yow si sept axes prioritaires yi nga xamante ne jot ngeen ko def kenn ngeen ci xalaat déjà lan moo si say position et nan ngay loolu yëpp bu fekkente ne dañ si war a dem vers une monnaie euh, locale ou bien ou pas. xam nga dama wax léegi ne ñun la mère des batailles te loolu laa bëgg ñëpp retenir par rapport ak sunu programme mooy la souveraineté à tout point de vue souveraineté à tout point de vue. lu ñu am léegi dinañ ko téye lu ñu amul dinañ ko téye leneen lu ñu amul tam dinañ ko mbébét pour ëllëg donte dañuy jeter les bases pour que les générations futures ñu bu ñu ñëwee xam na ñun ñoo leen liggéeyaloon lii pour ñoom. sur la question de la euh, euh, euh par rapport à la monnaie question bu bëri passion la ñu bëri di ci wax rawatina bii nga xamante ni dafa am lu bari lum ñuy fàttali mooy moom goo xamante ni xëy na moomoon nañ ñu ko. ba daaw euh, yaakaar naa suma juumul nga gis euh, ñoom Alassane Ouattara ak ñooñu def ci ay jéego daal léegi sax dañ koy dañuy changer CFA bi de ko ECO yu mel noonu mais ñun li ñu jàpp mooy li si jiitu mooy nañu wuti économie bu dëgër d'abord économie mooy defar mone c'est l'économie qui fait la monnaie donc bu ñu amee économie bu fort ñu liggéey nag ci un marché tijjee ko donc maa ngi jéggi Sénégal parce que tey su ma sañoon sénégalais yi produire yëpp produit bu ñu mën a produire xam ne parce que tey mënoo fi nan nga fiy liggéeyee loo xam 18 millions de sénégalais yëpp dañ koy soxla donc marché bu tuuti tamit du permettre sénégalais bi nga xamante ni dafay nekk dans l'industrie mu mën a dem à la mu mën a dem donc danga soxla boo gisee Nigéria ak dëkk yooyu lan moo tax. ñu am ay champion c'est parce que aussi dañu am marché bu yaatu donc moo tax man ñi nga xamante ni yëpp dañuy bëgg koo xam dafay recroqueviller wu sur lui-même tëju man du ma tëju damay tijjee ko donc man li ma jàpp mooy français CFA bi am na lu bari loo xamante ni mën nañ ko ci wax su ma sañoon tey dañuy am une monnaie boo xamante ni dafay jël en compte nos intérêts ba mu mat sëkk mais comme bii nga xamante ni am nañ ko pour le moment am na une certaine stabilité dama ne nañ ci nañ ko joyanti gën ko baaxal parce que nu sommes en mission ba nga xamante ni loolu nga xamante ni tey jii dafa nekk une forte demande des populations africaines des jeunes africaines ñu mën ci am monnaie boo xamante ni dina dëppoo ñun ak sunuy su suñuy bëgg-bëgg ci ci ñi nga xamante ni ñoo seq tey jii franc fa ñu mën a dem ci loo xamante ni dina gën a méngoo ak li ñu bëgg ba pare te dootuñu fàttali moo tax dafa am une dimension symbolique dootuñu fàttali euh, lépp loo xamante ni dafay nuru ne dañ la mas nañ la moom. d'accord voilà loolu mooy euh, sama euh, euh, position. vous êtes vous êtes dernière question. avant question internaute yi. d'accord vous êtes vous êtes 19 candidats mais si 19 candidats yi dafa am ci lu ma ci jaaxal sànq maa ngi wax ne daanaka programme bi dafa xaw a méngoo mais jafe-jafe askan yi nga xam ne bëgg ngeen ko faj benn kilo kilogramme benn kilo kilowatt d'électricité ñaata la ak kilo ceeb ñaata la kilo diwlin litre diwlin ñaata la. ndax xam nga ko bari na ci yéen ñoo xamante ni boobu ba tey ñu ngi àddu ci programme te xamuñu kilo ceeb ñaata lay jar loolu. c'est réel problème. xam autre chose également bu bëggoon euh, euh, poser comme euh, moom mooy dernière question bi l'affaire Karim Wade lan moo si sa sa sa xalaat. bon man jàpp naa ne ma njëkkee ci bi nga xamante ni moom nga mujjee posé xam nga l'affaire Karim Wade koo mu ne am na sax une affaire Karim Wade. pour man li am mooy des difficultés yu ñu am ci processus électoral boo xamante ni jàpp naa ne war nañ ko joyanti war nañ ko joyanti donc ci processus électoral boobu li nga xamante ni ñuul na ci ñu war ko joyanti bokk na ci li nga xamante ni yëpp naqarlu nañ ko euh, mooy lafaire lii ci affaire double nationalité yi mooy ñi nga xam dañoo am ñaari nationalité bokk na ci tamit lu ñu wax affaire fiscalité impo mooy ñi nga xamante ni est-ce que dañu yoreel Sénégal ba pare ci wàllu impôt euh, daal di euh, dañu yoreel Sénégal ci wàllu impôt ba pare euh, ne mën nañoo nekk président de la République et je précise que nekk sax un homme d'affaires par exemple comme homme d'affaires yi nga xam dañu ñëw en politique impôt sonal la ba mënoo fay impôt pour man c'est pas un problème problème dëgg kay jàpp naa ne mooy ki nga xamante ni dañ dafa bëgg a nekk président de la république ñu fekk ci gëstu ñu def ne mës na njuuj njaaj pour tromper pour bañ a fay impôt te mën ko te njuuj njaaj fraude yooyu laa jàpp ne su fekkee ne am na loolu c'est un problème majeur boo xamante ni am na donc quelqu'un comme Karim Wade euh, man jàpp naa ne ku bëgg Sénégal la loolu laa gëm gis nañ ko it mu liggéeyal Sénégal góorlu lu nekk def na ko pour la coopération internationale du Sénégal nekk un grand Sénégalais donc euh, am yéene bokk ci ñi nga xamante ni ñooy ñooy taxawu Sénégal euh, tukki ñu génnee ko Sénégal aussi dans des conditions yoo xam nébuleuses te loolu bëgg nañ mu jeex ci Sénégal mooy ci conditions yi nga xamante ni moom la demee fële nga xamante ni moom mooy Qatar di Doha donc loolu yëpp. nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni jàpp naa ne nemmeeku nañ ko ci processus électoral bi jàpp naa ne élection bi parti démocratique sénégalais daf ci waroon a bokk man ci ñi gëm ne parti démocratique sénégalais élection Sénégal am te moom mënu ci bokk jàpp naa ne loolu. est-ce que mënuñu gis Pape Djibril Fall lëkkaloom ak PDS. xam nga Abdoulaye Wade nag sunu maam la ñun ñëpp man je suis un digne héritier de l'héritage de Wade un digne héritier de l'héritage de Wade Abdoulaye Wade dafa bokk ci ñiy tax Sénégal remporter ay combats démocratiques yu mucc ayib Sénégal tey jii dafa tax euh, Abdoulaye Wade moo tax Sénégal am isoloir mbañ gàcce Sénégal Abdoulaye Wade bi muy dajale les intellectuels africains di daje ak ñoom pour ñu xool ne leen décolonisation ngi waaj a ñëw gaa yaa ngi waaj a dem ñun nañu réfléchir nan la war a gungee Sénégal Abdoulaye Wade du ndaw loolu moo taxoon euh, Senghor tudde ko Njombor bëgg Sénégal kenn mënu ko nattable kenn mënu ko nattable loolu moo tax d'ailleurs malgré son âge Abdoulaye Wade continue d'être avec nous mu ngi dëkk ak ñun ci biir réew mi donc ku mel ni Abdoulaye Wade man hommage rek la koy rendre donc je suis waa PDS ëppale wuñ ma ci Abdoulaye Wade waaw te sax bu ma dajeeg ñoom assemblée nationale ma leen di nuyu président Lamine Thiam ak ñoom ñëpp ak ñoom Abou Mbacké Thiam xale yu am solo da ngay xam ne ñii waajal nañ leen ci école bu am solo muy l'école libérale. donc man euh, aw ma ci jafe-jafe euh, Karim Wade est un frère dañuy jokkoo man ak moom dañuy waxtaan euh, ci Sénégal ci mbébét bi mu am ci Sénégal ak bëgg bu mu bëgg bu bëgg Sénégal donc si aujourd'hui effectivement nous avons seen gunge parce que man je travaille ci benn large front boo xamante ni bëgg naa ko pour dem ci li nga xamante ni moom mooy conquête des suffrages mais surtout ñoo xamante ni seen yitte. du rek dañuy daw ànd ak benn coalition parce que dañu bëgg ay poste réew mi kenn du ko séddoo Momar Momar Samb moo doon wax naan réew mi kenn du ko pàccoo dañ ko war a péncoo kon ñun duñu nangu ay nit yoo xamante ni c'est des prédateurs nga xam ay poste moo leen liiteel fu ñu jàpp ne tooy na ñu daw ñu daw ne nañ ñu fa dem am jikkoy weñ ak jikkoy bukki ñun bëggatuñ loolu ci Sénégal parce que politicien yoo xamante ni jikkoy weñ ak jikkoy bukki dafa xaw a bari ci suñu réew donc beneen bi nga xamante ni laaj nga ko wax naa la léegi ne la saaku ceeb vingt cinq mille lay jar litre huile mille sept cent francs litre suukar neuf cent francs da ngay lire wala. non mais ñun dañuy liggéey ci ay chiffres parce que lu may wax dama ko bëgg a xam mais Cheikh dama bëgg nga xam ne ñun dañoo bokk ci sénégalais moyen yi xam nga yow xamaloo ma milliard xamaloo ma milliard xamaloo ma sàcc xaalisu Sénégal xamaloo ma détourné xaalisu Sénégal. xamaloo ma corruption xamaloo ma détournement de deniers publics xamaloo ma mësu mësumaa am mètre carré boo xamante ni état du Sénégal moom ma ko jox mësumaa fekk fu ñuy séddalee suuf ñu dagg suuf jox ma kon question am na question yoo xamante ni xam ngeen ñi ngeen ko war a laaj ñooñu ngeen koy laaj vous avez des politiciens très riches ñooñu bu ñu ñëwee nga laaj leen loolu xamuñu ko mais moi je suis au contact du sénégalais moyen ki nga xamante ni dara yoru ko di xëyandoog moom di gontandoog moom ñu may dis ay soxla ma am tey jii ci sama njaboot bopp wala comme suma njabootu politique ñoo xamante ni dama leen xam ñu jàng seen jàng bënn amuñu métier ma xam ci ñoo xamante ni dañoo am ay jafe-jafe jàng am na ci ñoo xamante ni ñun ñooy def ay ay pexe di leen wutal ay bourse di leen booleeg ay école am na ci ñoo xamante ni fourniture ñun ñoo ciy góorgóorlu te du tey lañu ko def école bu Thiadiaye tey école bu Thiadiaye muy euh, CM bu Thiadiaye ñun ñii ci sunu taxawaay gouvernement scolaire ba te li may wax nii deux mille 2020 la ñooñu ñaan salle informatique tey jii la salle informatique de l' école de Thiadiaye ñun ñoo ko équipé te loolu ci sunuy dërëm ak sunuy ñaat dërëm la ñu jël dajale ko def ko dem jëli sunu benn xarit bu nekk ingénieur en génie civil ñu ne ko classe bi kat mënul am ordinateur il faut que ñu defar ko 2020 la laa ko def boobu nekkuma député. bay bëgg a nekk président de la république mais Cheikh nit bu la diggee ndékki jox la nga ndékki digg la añ jox la nga añ jox la njoganal mais bu la diggee reer xanaa nga mën koo gëm koo xam mësul sàcc sa xaalis mësul sàcc sa suuf kenn mësu koo fekk ci ger kenn mësu koo ger di ci sant sunu borom du suñu njàmbaar Sëriñ Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu daf doon wax ne jàmbaar amul kuñ dimbali moo am kon dimbalu yàlla moom moo ñu dal sunu borom wërsëgal ñu boole ñu ak ñu ñuy taxawu dimbali ñu ci ay wéyjur yoo xamante ni ñoo ñuy gunge ba pare bañ lu bon ma leen di rendre hommage su may wéyjur yar ñu tàggat ñu ci bëgg lu baax ak bañ safaan tàggat ñu ci bëgg lépp loo xamante ni lu lew la nga mën ko dunde lu lew la ñu fas yéenee dunde loolu moo tax am na question yoo xamante ni Cheikh am na gaa yoo xam bu ñu ñëwee bés boo fi toogee ci plateau bi nga laaj leen ko parce que jekk na ci ñoom nag parce que on a des politiciens très riches au Sénégal on a des fonctionnaires très riches au Sénégal te je pense que question yooyu ñoom mérité nañ ko ñun sénégalais yi couche vulnérable yi ñoo tax ñu jóg te kenn mënta tere ñu taxawu leen kenn mënta tere ñu soppi réew mi bu neexee suñu borom. on va retrouver maintenant question wu internautes yi ak hashtag bii di QG9 wala QGTFM 2024 Mamadou Ndiaye sànq ba tey yaa ngi koy taataan. pour ñu jébbal ko président Pape Djibril Fall. voilà day question réponse première question bi euh, président Pape Djibril euh, internautes bari ñu ngi doon posé wu question di laajte. après tout ce qui s'est passé situation politique bi réew mi ni mu doxee dañu gis ni ñëpp dañoo yenn ci borom xam-xam yi dañu gis ni pouvoir président bi dafa président de la république dafa am pouvoir bu bari. est-ce que yow bis boo nekkee président pare nga pour wàññi pouvoir président de la république euh, man président de la république euh, Mamadou effectivement jàpp naa ne li tax ñuy wax ne président de la république dafa am ay pouvoir mooy yenn saa yi ni ñuy gisee muy dugal loxoom ci yeneen pouvoir yi loolu moo tax c'est moins une question liée à l'institution c'est beaucoup plus une question liée à la conception bi nit ki am ki exerce pouvoir bi relation bi mu am la pouvoir ci ni muy utiliser justice ak moo tax ñun la séparation du pouvoir daf ñu intéressé mooy dinañ nekk président de de la république boo xam du jëfandikoo justice mu ko wax naa léegi ne dañoo am depuis 64 ans ñu gis ne l'état est conçu comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte donc président de la république am na lu ko doy sëkk mooy liggéeyal askanam donc ñun bépp pouvoir exorbitant boo xamante ni gis nañ ko boo xamante ni nemmeeku nañ ko buy tax président de la république di kase yeneen pouvoir yi wala di ci dugal loxoom ñun loolu soxlawuñ ko li ñu soxla xam nga lan la mooy jël toute cette force bi nga xamante ni moom la la Sénégal jox nga mettre ko au service de l'intérêt général mm-hmm. parce que pour nga saafara it fokk nga am pouvoir pouvoir la tudd pouvoir mooy lan mooy une capacité de faire capacité agir sinon soo ko amul lan ngay def doo mën a def dara doo mën a def dara ne ñun léegi ñëpp a yem ñëpp on déshabille la fonction c'est pas possible donc aussi bëgg tamit wax lu neex nit ñi ba tax nga wax loo xamante ni da waxu Macky Sall lan la fi waxoon diggeewu fi waxoon loo xamante ni bëgg a falu rek ko ci dugaloon ba mu ñëwee mënu koo def ñu koy vaar suba ak ngoon guddeeg bëccëg loolu duma ci fekk dama ne man Papa Djibril Fall du ma utiliser pouvoir pour influencer la justice du ma utiliser pouvoir pour influencer l'Assemblée nationale li ma bëgg mooy de très grands députés yu am légitimité ci seen localité xam li leen yóbbu assemblée nationale mooy contrôler l' action de l' te texte yi jox na leen la possibilité de contrôler l' action de l' exécutif moi j'ai envie en tant que président de la république assemblée nationale di ma dimbali ci di auditionner les ministre waxuma sax les ministres même les directeurs di leen woo di leen auditionner que toutes les chambres jouent le rôle mais su dañu sax am régression xanaa ci wàllu woowu xanaa yéen a ngi ñëpp a ngi fàttaliku jamonoy président Abdoulaye Wade. ay ñoom Samuel Sarr ñi ñëpp assemblée nationale da leen daan jël di leen auditionné seen secteur ñu xool lan moo ci ne lan moo ci dox lan moo ci doxul des heures ñu auditionné leen gis ngeen même en France dans l' affaire Benalla ay affaires yu bari su amee da ngay gis ne les concernés as commission bi touché seen loolu daf leen di woo assemblée nationale auditionné leen ba mu leer mais loolu ku koy def assemblée nationale su koy def kan lay dimbali. président bi président de la république lay dimbali. le directeur de la santé le directeur de l' agriculture le directeur de l' élevage le directeur de la pêche le directeur de mines mais ñooñu sénégalais yi xamuñu leen mënoo ma ci citer kenn pap kenn ci ñi ma tudd nii le directeur de l' agriculture xamoo ko le directeur de lélevage xamoo ko xam nga ko Cheikh xamuloo ko le direct wax naa fi léegi directeur de la petite enfance xamoo ko. non si parce que Diégui. Diégui Diop mi ngi ciy def liggéey bu am solo moom mooy directeur de la kii euh, petite enfance euh, Pape Djibril xam nañ ko quand même. vérifier xanaa yaa ngi ko dañ la ko yónnee message kon léegi. non non laajte na ko sànq di te waxoo ah, ko. non euh, laaj ma quand même man ma jógee fii ma génn dem dox dem génn plateau bi quand même. Pape la ko laaj laaj moo woo quand Ah, may nuyu jéggi bu baax sama sœur Gone bu ma def noonu quoi aussi. may nuyu sànq waxoo ko may nuyu jéggi bu baax. directeur laaj na ko sànq. laajal Pape kan la laajoon Pape kan nga laajoon bu ma bu ma tooñ quoi aussi <laughs> Cheikh ah, la wax vérifié watal bu baax. donc li ma bëgg a wax mooy yooyu yëpp tey bu leen assemblée nationale doon woo di leen auditionné waxuma audité auditionné laa wax déglu leen. expertise yi nekk assemblée nationale mën a bonifier ñoom seen réflexion bu ñu leen waree accompagner sur le plan législatif ci corpus bi ñu am ñu accompagner leen mais loolu ku koy def président ngay dimbali noonu la bëgg justice ñu am justice boo xam dafay accompagner les enjeux de développement du Sénégal accompagner le processus de développement ci yoon yi nga xamante ni war nañ ko gën a baaxal mu am un dialogue entre les institutions am une intelligence avec les institutions et chacun puisse jouer convenablement son rôle mais pas ñu nekk fi di tojante ay bopp réew mu ñuy tabax encore une fois am on n'a pas de temps à perdre te man j'en appelle à la maturité à l'intelligence et au patriotisme des gens qui animeront ces institutions parce que tey jii boo demee dans les dans dans les grandes démocraties ñu tuddee les grandes démocraties chambre yooyu yëpp da ngay fekk ñu dajale fa ñoo xamante nii boo ñëwee ci suñu réew yi ñoo ngi toog seen kër moi aujourd'hui je connais de très grands experts ay boroom xam dans tous les domaines de la vie économique et sociale mënuñoo jëriñ Sénégal parce que amuñu espace d'expression amuñu espace d'épanouissement ñooñu ñëpp su ma sañoon Sénégal daf leen di jëriñoo sur le plan sécuritaire yaa ngi koy wax tey jii ñun li ñuy dal sax moo gën a metti dangay am nit tey jii jox ko benn poste bu stratégique mu liggéeyal Sénégal ba am expérience bu mucc ayib nga gis organisation internationale ñëw jël ko dootul mën a jëriñ Sénégal wala sax ba ci sous région bi ñu ñëw jël leen yóbbu leen foofu ñuy liggéey dootuñu mën a jëriñ seen réew donc man je veux vraiment ñu am ay cadre yoo xamante ni toutes les personnes yi nga xam suñu borom def na ci ñoom xam-xam ak xel mu rafet am yéene dimbali réew mi ñooñu ñëpp ñu ñëw gunge Sénégal seen sages la conjugaison entre sunu jeunesse ak seen sages day am solo Kéba Mbaye moo doon wax naan la science et la sages mu ne c'est pas l'apanage des anciens. La science et la sagesse, c'est pas l'apanage des anciens. Mais nous avons toujours besoin des personnes yi nga xamante ni blanchies sous le harnais pour ñu ñëw accompagner li nga xamante ni moom mooy suñu réew j'en connais beaucoup ñu bari damay waxtaan ak ñoom xam naa leen ñu bari soumettre nañ leen suñu projet de société ñu indi ci seen sagesse indi ci seen expertise ñooñu su ma sañoon ci chambre de réflexion yooyu d'avis ñu mën a gunge Sénégal deuxième question internet yi. voilà euh, euh, sa vision ci numérique bi surtout sur l'intelligence artificielle si sa stratégie de développement économique et social. ma ciy gërëm bu baax suma benn jeune frère. ma peur c'est l'intelligence bu tudd Ndiaye ja ma peur ciy gërëm bu baax suma benn jeune frère bu tudd Ndiaye Dia. Mm-hmm. Euh, bu tudd Ndiaye Dia daal di nekk fële nga xamante ni moom moo nekk France. mu créer benn institut des algorithmes au Sénégal di ci def liggéey bu am solo ci wàllu intelligence artificielle ñu ciy échanger bu baax ci wàllu numérique ma koy félicité di félicité ñim ci àndal ñëpp wàllu intelligence artificielle ak numérique dama jàpp ne suñu borom ñun réew yi war a dabe ñun la ko yàlla indil parce que jàpp naa ne foofu rek moo des secteurs yoo xamante ni sunu ndaw ñi xarañ nañ xarañteef boo xamante ni mën nañu faa def lu baree bari loolu moo tax euh, kii euh, Mamadou ci wàllu innovation ak recherche accompagner le ministère de l'enseignement supérieur foofu loo ci def doyul loolu tamit jàngale Covid 19 la loolu c'est l'un des enseignements de la Covid 19 mooy il faut davantage financer la recherche il faut davantage financer le numérique parce que adduna bi foofu la toll il faut aller plus vite et il faut faire les choses très bien bien sûr mais il faut aller très vite parce que jot amul te tey jii foo mën a wàcc ci àdduna bi di nga gis ne ña ngay jëfandikoo intelligence artificielle boo xamante ni tamit Mamadou il faut que ñu jàng ci les erreurs des autres mm-hmm. parce que su ma sañoon du ñu am benn technologie boo xamante ni dina dindi la cordialité ak la chaleur bi am entre ñun du ma bëgguma tamit benn eh, développement boo xamante ni day ñëw yàq li nga xamante ni moom mooy suñu vivre en société suñu vivre ensemble mm. donc su ko yàgg su ko dooleelul waru ko soofantal donc vraiment dañ koy encourager loolu. Cheikh dañuy am benn politique de développement stratégique. Euh, Mamadou dans ce sens la pour permettre à tous les jeunes ba pare réorienter leen ci aussi dans ces la là mais surtout créer aussi parce que tey jii dem naa ISEP bu Thiès ma leen di nuyu bu baax seen directeur di def euh, monsieur Niang di def liggéey bu am solo mais am na module yoo xamante ni foofu dañ ko tëj parce que dañu leen di tàggat ba pare du am fu ñu exercer. donc c'est bien xale yi jàng am na ay xarit yoo xamante ni aéronautique lañu def mais tey mënuñu liggéey Sénégal parce que industrie ci wàllu aviation amu fi tey ji industrie ci wàllu automobile su fi amoon les métiers de l'automobile kenn xamul ni mu toll Pape Cheikh xale yi mën ci liggéey industrie ci wàllu aviation kenn xamul ni mu toll tout une euh, chaîne de valeur xale yi mën ci liggéey boo demee tey jii ci dëkk yu mel ni Allemagne da def sa BFM ñu dem jàngali la métier rapidement ngay monter bateau di monter avion c'est ça que nous voulons pour le Sénégal mm, mm, mm. permettre am am de te ISEP yi ñoo ngi ciy def lu am solo très sincèrement mm-hmm. ñoo ngi ciy def liggéey bu am solo yenn saa yi nga recruter fii ci télévision yi koo xamante ni foofu lay génne avec les métiers de l'audiovisuel te foofu lañ leen di tàggate mais mm-hmm. il faut aller encore mieux mm-hmm. et plus surtout dans le ferroviaire parce que Sénégal boo gisee jafe bi ñu gën am accident yu bari yëpp loolu ko indi parce que transport de marchandise ak transport de masse dafa wuute ki war a transporter marchandise buy transporter masse lu ne mën naa xew bokk na ci liy ah, euh, tax tamit mbir yi gën a cher mooy barab yi ñuy bayee souvent sax lekk gi dafay sori ak barab yi ñuy consommer nan lañ koy rapproché ferroviaire rek moom moo ko mën def moo tax sur le ferroviaire te day dundalaale dëkk yooyu yëpp man wàcc naa Maroc jëlee train Casablanca mu yóbbu ma ba Ifrane près de quatre cent kilomètres Ifrane sama dëkk mais da gis ne dëkk boo romb bay nañ ko boo fa eggee ndox bi ngay naan ba ci toilette bi ngay dugg ndox bi nga fa fekk ay na différent lañ ciy bind de l'eau différente donc loolu laa bëgg te loolu day ñëw ci décentralisation xaw ndax dina fi xaj. mooy nan la ñu bëggee de collectivité territoriales yu fort mais yu am vocation. ndax collectivité territoriale bi vocation lañ koy jox. ñu ne par exemple Thiadiaye je prends un exemple Thiadiaye maa ngi xam naa ne naan déplaise à Seydina Ndiaye. Euh, xam na ndax nee na ma li ngay tudd caajaay dafa bëri. fa bokk waaw ma ne leen wax dëgg yàlla su ma bëggul caajaay du ma mën a bëgg Sénégal. dama ko bëgg lool moo tax ma nous a fatigué ak Joal. moo tax ma mën a bëgg Sénégal. yow poème poème agoo sax pour pour pour caajaay. mais gis nga quand même. waaw ma def poème. moo tax moo tax am na benn internet bu laajtee Pape Djibril Fall président de la République Dakar serait toujours la capitale du Sénégal. ba xam li mu la dégg ngay wax caajaay tooñ rek caajaay ah, nag xam nga capital xaju fa waaye dina jag la dernière question dina mucc ayib de léegi foofu exemple bi ma doon joxe li tax mu am solo mooy pour wax décentralisation ni mu amee solo ak ni ñu centraliser léegi lépp Dakar la nan la def ba kenn ku ci nekk foo nekk ci Sénégal la nga nekk fekk la fa ci am solo ñu ne moo tax dëkk yi foog ñu am vocation nga ne caajaay par exemple yéen seen suuf jeex na caxat-caxatee nañ ko ba mu jeex ah amatu leen suuf de kon léegi lu ngeen di def ñu ne ah kon il faut qu'on se projette kon il faut que ñu am euh, dëkk bi kon service lay doon ñu ne kon foog ñu liggéey ci numérique dal di dugg si intelligence artificielle daal ñu ne kon sunu doom yi kat foog ñu waajal leen ci ay incubateur ndax ñoom ville de service lañ war a am ñu ne waaye ñun suñu amee ville de service kan moo fi kan moo koy jëfandiku ñu ne CCN bi mu taqalool de dese na suuf même bu fekkee ne maa ngi leen di masawu ndax fan yi nee nañ am na ay prédateurs fonciers yu fa ñëw jël nañ ba jël seen armère ya donc ñu ne ah kon Sessène des na suuf kon Sessène moom mooy am vocation agricole ñu ne kon fii war naa am ay ferme agricole moderne yu yaatu yoo xamante nii doomi Sessène ñoom ñoo cay liggéey di ci gis seen bopp autour des métiers de l'agriculture ak élevage mm-hmm. waaye ñoom nag ñooy soxla services yi am caajaay ñu ne Sandiara ñu ne Sandiara de ah commencé nañ fa am na vocation industrielle am na sax ay euh, lycée de formation yu fa nekk donte lycée bi dégg ngeen Macky Sall nee na lycée bi mënta fexe ba pare lycée bu ma nga ca Sandiara ñuy masaw waa Sandiara bu baax ndax lycée bu dul pare <laughs> donc Sandiara léegi mooy la ville au chantier inachevé après Rufisque <laughs> waaw tàmbali ay chantier rek te du pare mukk donc Sandiara ñu ne yow yaa ngi commencé industrie kon Sandiara day am une intelligence avec ñaaw ak Thiadiaye ak dama jël benn gox boobu rek la jegem ñu ne léegi kon dëkk bu ci nekk am na vocation kenn ku ci nekk interdépendance day am kenn ku ci nekk soxla na la moroomam am léegi nag ñu liggéey maintenant sur les infrastructures ci transport bi fexe ba dem fenn fu ci nekk daal di yomb kenn ku jóg mën a dem fenn na au lieu que ñu nekk léegi xam nga lan moo am da ngay am maire yoo xamante ni ñoo taqaloo commune ñu bokk benn parti di def ay tendance politique ba lor waa dëkk ba mm. ñun loolu lañu bëgg mu changer. moo tax intelligence la ñu soxla avec des exécutifs locaux forts avec euh, un conseil municipal bu boo xamante ni ay nit yu xam yu xareñ yu mën a liir mën a participer à un débat d'orientation budgétaire xam li ñu fay def xam li ñuy wax ba bu ñuy def délibération du ñu def délibération di joxe suufu jàmbur te yëguñu conséquences yi mu am donc ñun vraiment sur ce plan la loolu la ñu bëgg taxawaay boobu la ñu bëgg a am ci Sénégal pour suqali ko mooy une décentralisation boo xamante ni man par exemple j'ai raté le concours bu Prytanée militaire dama waroon def concours Prytanée militaire xam nga tax ma raté ko préparé woog yëpp ba noppi mais caajaay gi ma dëkk Prytanée bi concours bi dem na ba jàll te yëguma ko. ah ndax aw ma information. à l'époque ah. donc l'accès à l'information. Mm. ñu fexe ba nit ki fu mu dëkk ci fu gën a sori. ñu dématérialiser le numérique revient noonu la ñu noonu laa bëgg ñu réformer l'administration ba dootul nekk une bureaucratie daal di tabax de très grandes écoles de commerce et de négociation comme ni ko réew yu mag yépp amee ba nga xamante ni dinañ génne ñoo xamante ni seen xam-xam dina màcc ci li àdduna bi mën a converser avec le monde mën a commercer avec le monde ñu waajal leen jox leen ay jumtukaay ba ñu mat sëkk li ñu doon mhm. ba nga xamante ni dootuñu nërmeelu ci négociation parce que le problème que nous avons c'est la négociation. waaw donc daal euh, Mamadou. loolu bokk na ci maintenant sur la capitale Thiadiaye du du ma ko def capitalu Sénégal nag <laughs> du ma ko def capitalu Sénégal waaye daal bëgg naa mu mucc ayib ndax dëkk bu mag la. incha allah c'est un petit euh, bled. waaye dëkk ay mag ñoom ñoo fa dëkk ay kilifa yu mag yoo xamante ni ñu bëggoon Sénégal. Mm-hmm. Euh, jëriñ réew mi tamit. Mm-hmm. Euh, taxawu réew mi la preuve le ministre des forces armées Habib Thiadiaye c'est le voilà donc cela veut dire que Thiadiaye euh, voilà macha allah. lan nga jàpp ni waroon nañ ci wax et jotuñu ci ñëw. Euh, am na loo xamante ni daf ma ñor trop Pape Cheikh. toujours jeunesse bi mooy ndaw yi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu transport. Mhm. ñu exposé leen trop ñu jóge fii. di dem ba Mali di dem ba Burkina Faso. Mhm. di dawal ay oto yoo xamante ni ay millions la ñuy transporter. Mhm. waaye yàlla xam na ne ku ci feebar doo mën a faju mhm. wuñ leen. dimbaliwuñu leen. ñoo ñooñu seen condition daf ma ñor parce que damay dajeek ñoom di waxtaan ak ñoom am ñu ma ci xam. ñu pour man gunge leen ci formation farata la gunge leen ci protection sociale farata la. en intelligence avec le secteur privé. bi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekk. parce que secteur privé boo bëggee dooleel yaa ngi dégg léegi ngay jàmbat salaire yi. Mhm. mais salaire yi daa war di teel a ñëw lool. Mhm. nit ki ngay liggéey liggéeyloo balaa ñaqam di fen di da nga ko war a fay. Mhm. loolu farata la. mais il faut que kooku war a fay am ku ko fekk si dimbali ko. su ko dimbalee ba pare nag su réglé wul la législation sur le droit du travail. su boobaa yat bi daa war a dal ci kawam. normalement waaw loolu moo tax. Mm. te tey ñoo ngi ma koy yóbbante balaa may ñëw moo tax daal transporteur yi. loolu ñor na ma trop ñu taxawu leen parce que mënoo jël xale bu ndaw jox ko mu war a dawal camion fii parce que am nañu xéewal macha allah Sénégal. dañu am façade maritime donc bëri na réew yoo xamante ni fii la seeni marchandise di jaar. su fi ñëwee loolu opportunité bu mag la pour le secteur privé sénégalais. ñu mën a accompagner aussi ces jeunes à travers ce métier important mais dafa bari risque mooy dawal oto jëlee ko fii war koy yóbbu. ba Mali ba Burkina Faso. Mm, c'est des jeunes. c'est des jeunes mais kooku kooku ah. man ay xale yu ndaw la ñuy nekk. yi nekk à travers le pays. mu ngoog su boobaa. non seulement ay xale yu ndaw la ñuy nekk. mais ah. seen patron yi dañuy am xaalis. mais nañ leen bu baax nañ leen taxawu nag. voilà loolu nag ñu taxawu leen nay la ñuy am des fois. waaw kay léegi nag kooku ñooñu soo leen taxawu sax seen vulnérabilité des patrons qui gagnent beaucoup d'argent. seen seen vulnérabilité. Pape dafa te j'en appelle vraiment journaliste yi ñu gën ci taxaw sax parce que ñooñu seen seen vulnérabilité risque bi moo mag lu ne mën kooku lu ne mën na cee dugg vrai lu ne mën na cee dugg soo ko protégé wul donc noonu lay bàyyee xel ñi nekk dans les autoroutes du Sénégal mm-hmm. saa boo leen romb ñoo ngi takk morceau yu xonq xeex naa ci bay bëgg a dee en tant que chroniqueur mm-hmm. xeex naa ci ba sonn mm-hmm. seen contrat yi war nañoo fexe mu méngoo avec la le droit du travail sénégalais mais le droit du travail sénégalais jàpp naa ne dañ ko war a réformer te ñun dañ koy xoolaat bu ñu ñëwee. fii nit ñi sax dañoo war a réformer suñu seen bopp. ba nga xamante ni suñu ñëwee. ki ngay liggéeyloo di nga ko mën a taxawu ba mu mën a gis boppam ci li muy liggéey ba nga xamante ni su boobaa Cheikh buy liggéey si xel mi dina fi ne. Ah. mais Cheikh am na condition yo bu bàyyiwul dépense kër ga. mais bu ñëwee xel mi du fi ne. xel mi du fi ne. donc su boobaa tamit non seulement xel mi du fi ne. mais même li muy liggéey yow yaa ngi koy exposé. parce que bu bu ko yàlla dimbaliwul lu ne mën na cee dugg. wallaahi wallaahi. donc loolu tamit lu ma ñor la donc les autoroutes du Sénégal wax naa ko wax naa le personnel soignant ñi nga xamante dañoo nekk fi gën a sori ci biir Sénégal. Mhm. nekk fa ci ay cases de santé. Mhm. am na dëkk boo xamante nii dem naa fa euh, Santhiou Diadji ci Louga département de Louga. mais dëkk boobu non seulement l' accès est difficile mais mhm. Pape Cheikh dëkk boobu. waa dëkk bi jeunes yi ñooy cotiser di fay personnel de santé bi fa nekk. tu trouves te bari na ci biir Sénégal. Mhm. waa dëkk bi ñooy cotiser di fay personnel soignant. moo tax réew mi léegi ñi ñi mën ñëpp bitim réew la ñuy faju loolu tamit. malheureusement te yàlla xam na ne fii Sénégal waxuma la sax xereñteef gi ñu am ci sunu ah médecin yi on a ah, mais il faut que ñu dimbali leen. dimbali aussi le secteur dimbali le secteur privé moi je veux vraiment. Mhm. être un président de la République boo xam man maay nekk le VRP du secteur privé national. Mhm. comme ni Mouhamed Sissi di def fu muy mais dañ nekk des hommes d'affaires patriotes. quand même parce que mënoo gagné xaalis ba pare tamit. Mhm. di ko noose. man Sénégal laa gis président bi organiser cérémonie bu rëy tubaab bi ñoo yore organisation bi. te même agence boobu di ko gérer man sénégalais bi nekk ndaw dama am dama am agence boobu. mu ngoog fii laa ko gisee Sénégal. moo tax y a beaucoup yoo xamante ni seen métier. man mosuma gis loolu il faut faire confiance. moo tax il faut faire ba confiance. à l'expertise sénégalaise sénégalaise oui. ba pare nga gëm ko fonk ko. Mhm. Sénégal tey boo tukkee domaine boo mën a dem. Mhm. may nuyuwaale toute la diaspora. dommage da ngay fekk des experts dans tous les domaines les domaines les plus pointus. bah mais bu ñu ñëwee fii Sénégal di liggéey dans un ministère politicien bi nga fekk ci ministère bi. Mhm. saa boo xëyee moo lay fàttali ne yow bi ñuy conquérir pouvoir bi yow nekkoo fi woon. Mhm. kon sa place bi mérito woo ko. Mhm. moo tax it ñu bundu xataal la ba nga jëlaat say bagages dellu sa dëkk. moo tax ku fi falu def ay nouveaux riches. exactement donc on doit travailler ci benn euh, secteur public secteur privé bu am doole mais suffisamment patriote. Mhm. mooy tudd naa fi léegi doomu Ndiouga Kébé bi def fële ci Touba lekku fi mais ku mel noonu da koy dooleel. Auchan bi léegi tudd naa ko Auchan ay sénégalais lay recruter des jeunes sénégalais. mais man seen condition de vie dafa ma intéressé ndax ñoo ngi leen di taxaw bu baax ndax ñoo ngi liggéey heure normal yi ñu war a liggéey ndax dépassé wuñ heure yooyu ndax contractants yi mooy les petites et moyennes entreprises yi nekk autour de Auchan di ko fournir ndax ay sénégalais ñoo ko moom ndax yaa y un transfert de technologie un transfert de compétence dans ce sens. parce que tey ba ci soble bi ñuy bay Sénégal sud-africain ñoo koy bay di ko jaay en contre saison. fële ci Angleterre à un prix extrêmement cher exorbitant. te loolu ay sénégalais mën nañ ko dëkku baykat la dëkk. dëkku sàmmkat la dëkku nappkat la. mais on parle des vrais baykat pas des cultivateurs du dimanche. comme on les appelle yooyu waaw yooyu tam waxuñu ko moo tax ma ne suffisamment patriote. <laughs> Euh. parce que boo nekkee suffisamment patriote. gis nga ci mbay li nga ci mën a régler ci chômage du jeex ci élevage li nga ci mën a régler ci chômage du jeex waxuma la nag les métiers du gaz et du pétrole. Mm-hmm. mais am na lu am solo ci pêche bi mooy la reconversion des pêcheurs qui ont été benn soxna keroog dafa ma wax am solo nee na maa ah, Pape Djibril bu ñu jëlee sa toolu baay yow dañ lay indemniser de mu ne ma ñun géej gi nag suñu toolu baay la mm-hmm. ndax ñun amuñu suuf bu ñu bayee ñun géej gu ñu nappe la ñu am mm-hmm. te te pétrole beeg gaz bi fi mu feeñ yëpp. ay zone de reproduction la woon. ci jën mais ñooñu il faut que nga dem bàyyi leen xel. Kayar ak Saint-Louis nga bàyyi leen xel ba ci waaw Guet Ndar ah, mooy jaxeer mhm. xeer boobu. waaw ba fii fii muy Dahomey muy muy Sangomar. Mhm, ba Kafountine. exactement fépp ñooñu fa nekkoon léegi nu ñu leen di def. Mhm. nappkat yooyu da nga leen di seetaan. doo leen seetaan loolu moo tax ñun un 7 0 la 0 bi mooy duñu seetaan kenn. du ñu bàyyi kenn. ñëpp la ñuy xool ak bëtu yërmande. ak am yéene taxawu réew mi defar ko. mu ngoog je pense que euh, dañuy dem ak dernière question bi Cheikh Ngoné. waaw euh, voilà donc je viens tout juste de recevoir un message xam nga jéegi si lu soxal wàllu petite enfance daf ci am jéego yu am solo yoo xamante nii def na ko mais instant bi ñun euh, directeur lañ am mooy maître 40 ans de télé laa def Ibrahima <laughs> Ibrahima Guèye donc. yëpp miin naa ko. voilà non déglu déglu déglu bu baax li muy wax dafa am solo léegi léegi Pape sànq yaa ngi wax loo wax accès rectificatif lay waaj a def nii rek yëpp bàyyi ma continuer sama question quand même voilà donc yaa ngi wax dama ci jéggi attends attends je termine d'abord 40 ans de télé yow xam nga xam nga xam nga <laughs> Pape Pape Pape Pape da ngay woon ne Pape Djibril sa candidat la nëbbu ma ko man man dama assumer samay responsabilités voilà d'accord léegi ñu dem ci lu soxal accès à l'information sànq yaa ngi koy wax wax si également li nga xam ne euh, donc Euh, jot na la dal bu ñu wax accès à l'information donc conseil des ministres décentralisé également war na ci war a mën a bokk ndax tey euh, boo jëlee réew mi dina bokk ci looy taxaw bu baax. déjà li may njëkk a def mooy du ma nekk président de la république boo xamante ni dafay am un protocole bu koy teree dem ci askan wi. ñi may ñi may topp yëpp xam nañ ko euh, ku bëgg a jege sénégalais yi laa ku bëgg a waxtaan ak ñoom laa fu ma mën di dem je au contact des sénégalais. gis nga Cheikh Cheikh Cheikh Ngone gis nga ba ci fu ma mës a liggéey ñooñu ñu tuddee personnel bi ñu jàpp ne ñoo gën a suufe ñoom laa gën a xaritool fu ma mës a liggéey ñoom ñëpp ñoom may dégg mooy kuñ tuddee vigile wala kuñ tuddee neneen ak neneen ñooñu lay gën a jege di xam seen préoccupation dinaa ci dem ba kuy tudd dinaa dinaa ko xam kuy kuy ngénte dinaa ko xam kuy takk jabar dinaa ko xam li tax ma koy xam mooy dama leen jege moo tax ñu ma koy wax dama ci am une sensibilité ci seen condition de vie donc loolu moo tax man Pape Djibril Fall président de la République du ma am secret ci benn coin recoin du Sénégal parce que pour aimer un pays pour travailler pour un pays il faut connaître son histoire et sa géographie man je connais l'histoire de ce pays je connais la géographie de ce pays dañ ma ci nampatal samay maam it ci loolu lañ nekkoon <laughs> duma dugg ci loolu ci loolu lañ nekkoon donc loolu moo tax xam bi ñu xam réew mi moo tax dafa may neex may dem ci biir réew mi fu ne lay dugg fu ne lay dem di xam li ñuy dund noonu laa nekkee en tant que bi nga ma xamee ci journaliste daaw ma nekk un journaliste assis boo xam day toog rek jàpp njàmburam wër naa Sénégal lu baree baree bari en tant que journaliste en tant que député dañu ma dañu ma madoo dañu ma def député demaguma assemblée nationale demaguma installé guñ ma ma commencé wër Sénégal di def une tournée parlementaire keroog dem naa ci dëkk boo xamante ni dama leen di tudd tout le temps avec beaucoup de fierté xombal Saloum la tudd nee nañ ma góor gi daf ma nuyu mu ne ma 70 ans am naa ko c'est la première fois may gis kuy wut am dellu siwaat yi ñun dëkk boobu amul courant mu ne ma élection saa bu jotee keroog ñun ba ñu fa demee guddi googu bi ñu fa demee ñoo taal suñu lamp oto yi pour mën a leeral dëkk bi pour mën a waxtaan ak waa dëkk bi mais dëkk boobu tey jii am na courant ba mu amee courant waa dëkk bi dañ na ma jàmbat gi nga ko jàmbat moo tax courant bi ñëw ma ciy remercier la diligence du directeur général de la Sénélec mais loolu bu fekkoon ministre bi yor Sénélec fu ne ma ngi fay dugg fu ne mu ne fa naam Dramé mais dina ko xam mais tey tu as un ministre de l'élevage boo xam fii lay toog Dakar éleveurs yi di ko fi fekk un ministre de l'agriculture boo xam fii lay toog agriculteurs yi di ko fekk un ministre de la pêche boo xamante ni fii lay toog keroog bi ma recevoir les pêcheurs yi dañ na ma seen dernière rencontre avec avec euh, le ministre dafa mujj dafa mujj bouder la rencontre bàyyi leen ci salle bi loolu c'est inconcevable gis nga le sens premier du moom ministre xam nga lan lay signifier servir c'est le sens premier du mot ministre étymologiquement servir lay signifier moo tax servir c'est la plus haute station de la seigneurie c'est la plus haute station de la seigneurie monseigneur Benjamin Ndiaye keroog bi ma ko seetee dane ma Jésus a voulu être serviteur bay fomp tànk apôtre mi donc ñun tout ce que nous voulons être serviteur te dama koy wax ñi may àndal yépp ak ñi bëgg a liggéey ak man ëllëg leneen luñ doon lu dul serviteur xam xamal ne maa ngi ci sa kaw ku ma dénk mbirit parce que un président de la République ce qu'on lui demande c'est de faire travailler les gens Faire travailler les gens, c'est l'évaluation, c'est le contrôle, c'est la sanction positive comme négative. amoo beneen liggéey amul yaa ma neex amul népotisme hmm? amul nommé nit teg ko ci ay sentiment man ba ci kuréel gu ndaw gii ma yor rek du ma ci nommé nit teg ko ci sentiment ñoom ñëpp xam nañ ko je suis très dur surtout quand il s'agit de travailler parce que boo ko deful day dellu siwaat ci sa kaw Sénégal 64 ans yii loolu dafa feebar boo xamante nii la dafa war a jeex moo tax j'en appelle à tous les Sénégalais ak sénégalaises yëpp fu ñu mën a doon nekk ne buñ ñu dénkee réew mi Sénégal soxla na la ñoo ngi lay tàllal suñu loxo di la waajalal barab bu yaatu bu mucc ayib boo xamante ni soo fi ñëwee di nga mën a liggéeyal sa réew convenablement pour permettre au Sénégal mu développer définitivement de am na ko may message léegi ne ma fii ci Dubaï ñoo ngi lay seetaan. mais boo demee Dubaay buuru Dubaay Pape Cheikh cabinet McKinsey dañ daf leen recevoir ñoom ci ci ci ci moom moo leen woo ñu ñëw mu ne leen dama bëgg régler la question des embouteillages lan ngeen xalaat ne moo ma mën a permettre gars yi defal ko étude ñëw ne ko ah il faut que nga def sept fois sept voies pour régler embouteillage yi mm-hmm. wala nga def tramway wala nga def TGV mm-hmm. xam nga lu mu leen tontu mu ne leen ñett yëpp laay def tubaab bi ne ko mais loolu soxla woo ko mu ne leen damay liggéeyal ëllëg moo tax waaw hmm. ah, moo tax def na ba def lu dëkk ba soxlawul mu ngook Dubaay kay <laughs> moo tax fi mu ne nii c'est devenu une destination mondiale quand même seen aéroport boo ko rombee aéroport Mohammed V bii Casablanca soo ko rombee xam ne dëkk bi économie bi dox na hmm. waaye xoolal suñu aéroport bi yenn saa yi di nga fay romb di comme man damay génn lu bari damay romb di xool ñaataay jóg waaye yenn saa yi di nga fa romb ba ba jàll benn avion du jóg <laughs> yenn saa yi bu baree ba bari benn ay jóg fee mar fee aéroport yi day mel ni luuma position stratégique fële day mel ni luuma nii la nii la avion yi di def bu wàcc beneen yéeg bu wàcc beneen yéeg bu wàcc beneen yéeg mais loolu dafay wane indicateur la pour wane état de santé de l'économie et de l'attractivité et de la compétitivité de ce pays mais loolu la ñu bëgg pour suñu réew mhm. est-ce que mën nañ tere ñu bëgg loolu pour suñu réew mhm. laa bëggal Sénégal nañ ma bàyyi ma defal ko Sénégal incha allah yàlla na ko suñu borom def président yan kàddu ngay tëjee jotaay bi euh, li ma tàmbalee sant suñu borom mhm. waaw Pape Cheikh man ñi war a gën a sant yàlla man ci laa bokk waaw yàlla moom dama ko ameel njukkal moo tax sama statut ma ciy bind tout le temps Abdou Chakour waaw ku war a sant suñu borom la euh, bu baax a baax a baax a baax euh, sant samay wayjur bu baax a baax a baax a baax. ay jàmbaaru fakk tëdd lañ. ku góor ki comme ku jigéen ki. di leen ñaanal suñu borom mu yàggal leen fi. amiin boroom euh, borom desee lu ma dara. Mhm. li ma koy ñaan rek mooy mu jox ñu senegal ñu liggéeyal ko liggéey bu mag a mag ci senegal euh, di beral nuyoo nag suma wayjur bu jigéen. Mhm. soxna Codou muy soxna su tedd. Mhm. soxna su baax euh, ku bëgg boroomam euh, ku am yërmande ku sell te su ma ko tuddee rek tudd naa toutes les mamans du Sénégal jigéen ñi ay jàmbaar lañ loolu moo tax ma am sensibilité jëmale ko ci ñoom boo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem euh, di ñaan sunu borom yàggal leen fi téwér téwéral leen di gërëm bu baax a baax a baax ëttu diine Sénégal yépp sans mhm. exclusive mhm. Pape wax na ko léegi oustaz Pape fu ma ci dem day mel ni fa laa bokk mhm. doomi te wax dëgg yàlla fépp laa bokk ndax sunu borom moo dogal Sénégal ñëpp bokk di sant bu wér di ñaanal sunu borom mu yàggal fii xalif généro yépp tey di bés bu am solo ci wàllu taarixu yoonu murit tey mooy màggalu Serigne bu Mbacké radiyallahu taala mu def liggéey bu am solo ci wàllu éducation njabootu sëriñ Touba yépp kenn ku ci nekk jëloon nga sa doom jox ko ndax ni mu meloon ci yar ñëpp ameel ku njukkal nekkoon un brillant intellectuel sociologue psychologue philosophe lépp euh, bàyyil ñu fi téere boo xamante ni bi ci gën a siiw bu am solo mu xoratul ayn nga xamante ni dane Pape Djibril Fall yow lépp loo xamante ni say farata bopp la dinaa la ko dinaa la ko dinaa la ko dinaa la ko bindal kon ñoo ngi ñaan sunu borom mu dolli ko yërmande. Mhm. di ci ndokkeel tamit njabootam sëñ Amsatu sëñ Abdou Samat. Mhm. sëñ Cheikh Say mi nekk ci bopp bi. Mhm, soxna jaariyatullahi Mariama bu sobu soxna Baali ñaan sunu borom tamit yàggal ko ak liggéey bi muy def allahumma amiin allahumma amiin di gërëm bu baax di ñaanal ka sama xarit ba tuddee un accompli. mooy Mouhamadou Moustapha Bachir Diop. fële ci France dafa bind livre bu am solo ci Cheikh Mouhamadul Muntaka. tuddee ko un soufi accompli. te j'ai le te liggéey boo. xam nga Mouhamadou Moustapha Bachir Diop hmm. boobu. rakk soxna Ami Mbàkke la daje bu ministère de la. en plus en rakkam la effectivement ci ci mu def liggéey bu am solo kon sëñ. Mouhamadou livre d'ailleurs Cheikh Mouhamadul Muntaka di ñaan sunu borom dolli ko fan yu bari dolli ko wér. waaw ndax dundam am na njëriñ lool. noonu laa koy ñaanale euh, sëñ Babacar Sy Mansour. bu sunu maam sëñ Mansour albal xawmi di ñaan sunu borom yàggal ko fi wéral ko. allahumma amiin di bàyyi xel nag koo xam suma papa la woon. Mhm. di ko ñaanal muy sëriñ Pape Malick Sy. sëñ Pape Malick ndeysaan. waaw kooku su ñëw na ñëw na ba ci kër gi uniquement. pour seet si la. gis nga bi mu ko defee. mosuma voilà il s'est déplacé jógee ci jógee këram ba ci télé bi ne Pape Djibril Fall lay seet si. comme ni ñu li ñuy tuddee pied de grue. fan si yeeg yooyu nit ñuy xaaree ci biti. noonu la noonu la sang bu toll noonu jógee këram. ñëw ba fii fàtte xaju fii. wallaay ndeysaan nga xamante ni daanaka. gis nga mosul génn weer. yal na yàlla yokk leeram. mosuñu dugg benn weer ba génn ko te woowu ma téléphone. waaw je te souhaite une santé de diamant. ah oui. mu ne ma je te souhaite pas une santé de fer mu ne ma parce que l'avenir du fer c'est la rouille. Ah. ci français bu mucc ayib. waaw ah. ah, kon may ñaanal njabootam suñu borom teg ci ñoom loxo. il fut un allah nit ku baax. yalla xam na su ma ne ko mais papa kañ laa lay gis. mu ne ma kan mooy gis sa papa di wut audience. sa soppe la woon de moom. waaw kon maa ngi ñaan suñu borom dalal ko ca audience yu mag ya allahumma amin ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke maamam Seydi Hadj Malick allahumma amin di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadou Makhtar Laye ndax mm-hmm. ndakaaru lañ nekk mm-hmm. di gërëm bu baax suma xarit Seydina Issa Laye mm-hmm. euh, mu ñàkk grand frère am laay Laye Samb oustaz Baara Laye Samb nga xam barki démb rek ñu ngi koy rendre hommage bi ma mujjee bind message dane ma maa ngi Bruxelles j'ai beaucoup de projet pour yëmbal nekk jeune bu pétri de talent. foofu la toogoon bi mu fi mujj. wallaay ndeysaan foofu nga toog ndeysaan nekk ku am yéene. Oh. waaye keroog bi ñu koy denc. nga xam ne euh, la rakam bi di wax Seyd la rakam bi di wax Seydina Issa Lay Samb. ma ko mm-hmm. koy jaalewaat. Mm-hmm. xam nga Baara Lay Samb kii maamam boo ko xamee moom du la jaaxal. Mm-hmm. imaam Saxiir Gay mooy maamam. Saxiir Gay imaam Saxiir Gay un valeur compagnon de Seydina Issa Lay. liggéey ci diine ji loo xamante ni mucc na ayib nekkoon un homme d'ouverture kooku mooy maamu Baara Laay Samb kon noonu rek la mën a mel. loo mhm. doon mu dëgër. Mhm. jeunesse boobu nag laa bëgg bés bu ñu yoree réew mi ñu yaatu lool ci réew mi. Mhm. bari lool ci réew mi mën ñoo gunge ci développement bi ñu bëgg. di gërëm bu baax suma mbokk ya nekk fële ci Sokone waa kër sëñ Ahmed Dem yi di ñu jàppale di ñu gunge ci réflexion waa kër Cheikh Moussa Camara di gërëm le clergé catholique. monseigneur Benjamin Ndiaye ci gunge bi ak taxawaay bi ak ñaanal yi donc di gërëm waa réew mi yëpp. Mhm. sans exclusive Pape mhm. Djibril Fall Pape Djibril Fallu Sénégal la. Mhm. damay dégg ñu naan diw diw mooy diw diw mooy diw diw mooy diw ñu ne nag ah ñun ñooy Sénégal waaw li Serigne Fallou Mbacké doon wax naan man maay Sénégal ñun li ñu bëgg a doon mooy Sénégal Sénégal uuf ñu dénkuñu réew mi ñu soppi réew mi. Pape Cheikh ki nga xamante ni moom lay jeexale mooy rendre ko hommage fii laa daje woon ak moom muy Baye Ndiaga Diop eh. hmm. euh, ameel ko njukkal bu yaatu Baye Ndiaga hmm. ndax jotaay bi ñu defoon fii hmm. moom moo sàkk woon ngeen nangul ko ko ne dafa bëgg ma bokk ci émission boobu waaw je me rappelle mu nekk ko mu nekk koo xamante ni li mu liggéeyal sunu maam ñun ñëpp muy Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine liggéey bi yaatu na lool gànjaru na lool am na solo lool kon Baye Ndiaga ñoo ngi ñaan sunu borom euh, mu dolli ko leer ak yërmande te teg loxoom ci njabootam donc euh, vraiment Pape Cheikh loolu moo doon kàddu yi di la gërëm aw ma sa fay laa bokk di ñaan sunu borom Cheikh a ngi wax léegi naan yow yow yaay sunu candidat mhm. ñun ñooy sa candidat mhm. waaye loolu terewul benn yoon sa professionnalisme mhm. euh, bu baax a baax a baax professionnel bu mucc ayib nga liggéey naa ak yow. Mhm. nga am sens du travail bu aigu. Mhm. et du professionnalisme. di tenir plateau noo xamante ni ci élégance boo xam mucc naa ayib. Mhm. macha allah. yàlla na nga fi yàgg yàgg koo def. di gërëm équipe bi yëpp. Euh, ñoom Mamadou Bijou borom pouponnière bi wax naa sama gars yi léegi ne nañ ko taxaw bu baax incha allah Mado moom tamit macha allah kontaan ci moom coiffure yi <laughs> euh, Pape di la ñaanal bu baax yow tamit euh. sa yoon yàlla suñ borom sàmm la sa goût bi nga am ci savoir mhm. suñu borom dimbali la kër mhm. groupe Futurs Médias c'est un grand groupe dafa am ay détecteurs de talent mhm. Bouba il a des yeux de lynx waaw ah, il sait voir waaw donc bi bi ma gisee nga ñëw ci groupe bi xam naa ne mm-hmm. am na lu nekk ci yow mm-hmm. yàlla na yeewu te suñu borom aar ko di gërëm Abdoulaye Diédhiou moom jabaram man rek lay topp dafa maa bëgg <laughs> ah di gërëm Cheikh Ngone tamit mm-hmm. moom tamit macha allah sama rakk bu baax la macha allah ascension am na solo di gërëm sëñ Mouride Mbaye moom tamit di ko sant bu baax ci sindi bi mu fi jàng léegi yaakaar naa mën nga ko jàngal macha allah di gërëm bu baax personnel technique bi yëpp mm-hmm. serviteur yëpp ci biir Sénégal ak mm-hmm. sénégalais ak sénégalaises yëpp mm-hmm. ci confiance bi ñu am ci ñun ak détermination bi ma gis ci ñoom pour def ñu le cinquième président incha allah de la République du Sénégal kon maa ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal nag sama njabootu bopp mention spéciale ak madame Fall di ko gërëm bu baax di ko sant moom tamit pour euh, taxawaayam ak gunge bi nga xamante ni moom ñuy gunge. Mhm. di gërëm waa jàmm gën Sicap Mbao mhm. yëpp donc euh, di gërëm toute l'équipe qui nous accompagne. Mhm. Euh, notamment di di ñaanal bu baax suma njaboot. Euh, suñu borom yàggal leen wéral leen sàmm leen. amiin di gërëm Pape Cheikh le personnel bi nga xamante ni l'équipe bi ñuy àndal mooy sama staff réduit. ak sécurité bi surtout mention spéciale à la sécurité bi nga xam ñooy ànd ak ñun. guddeeg bëccëg suba ak ñoom amatuñu rapport xaalis léegi man ak ñoom. ak suñu chargé de com. waaw ak suñu chargé de com. waaw voilà di leen gërëm ñoom ñëpp mais sécurité bi Pape Cheikh lu ma ñor la trop. Mm-hmm. amatuma ak ñoom léegi relation xaalis. Mm-hmm. keroog bi ma duggee Yoff kenn ci ñoom. Mm-hmm. Abdoulaye. këram laa ndogoo. loolu confiance lay firi. ak oyof bi ma dugalee këram keroog pour ma ndogu. waa kër ga yëpp bég ci loolu ma yëg na ci suma kër laa nekk xam nga nga dem ba ñoom ñu bëggee la noonu ñeewant la noonu di la gunge kon aw ma seen fay donc di ñaan suñu borom rek kenn ku ci nekk liñ ci def yàlla na boo ko réccu allahumma amiin di gërëm nag ñi ñuy gunge yëpp di gërëm sénégale yi j'aime ce pays merci waaw du du ci sori na ci man merci Démé li Lamine Gueye doon wax naan j'aime ce pays d'un amour ki m'arrache les larmes mais dama leen ñeewant dama mm-hmm. leen bëgg mm-hmm. dama am yéene servir leen mm-hmm. dama am yéene taxawu leen incha yal na ko suñu borom mottali te mu gën ci ñun gën ci réew mi incha allah waaw incha allah yal na ko suñu borom def allahumma amin merci président Pape Djibril Fall alors on vous offre un premier cadeau enfin c'est nes Nescafé qui offre un premier cadeau euh, pour euh, inviter euh, quartier euh, général je laisse le soin à mademoiselle Nescafé voilà bi am jar ak bi amul jar télé yëpp a ngi bi am jar yow coow li dina la topp ah, ba sujet bi jeex am yoo xam ni kenn du ma ko wax coow li da topp ba fin de saison merci donc, beaucoup à Nescafé c'est Nescafé bi ci topp nag mënuñu la may cadeau bu ëpp kaamil hmm. voilà donc kaamil bien personnalisé ak juma bi xam naa boo ko gisee sa xel dina dem. ci est xam nga ne c'est la deuxième fois nga ma jox kaar mi personnalisé. yàlla naa la ko jox chaque année joxoon nga ma fi bu jógee Turquie. waaw joxoon nga ma ko. bii nag moom laa la jox ren. Ah, ok jërëjëf macha allah kaamil baa ngi ci biir. et lii c'est très symbolique. dama dem dama dem Makka. Mhm. di wër di def Safa ak Marwa. Mhm. benn waay ñëw ñuy waxtaan ma ak moom Moustapha. Mhm. ma koy waxtaan ba ñuy waxtaan ba ci yàgg mu tudd ma la. ne ma Pape Cheikh nag bu ñëwee Makka à des heures yoo xamante ni kenn yëgu ko lay ñëw di wër. di tawaaf waaw di tawaaf. Ah, ah, ah. waaw mu ne ma heure yoo xamante ni mu ñëw wax ma ko nii. Mhm. ci saa si laa la def benn vidéo. waaw donc màkk it yàlla nañ fa yàgg daje. yàlla nañ fa yàgg dem allahumma amiin incha allah donc vraiment maa ngi lay remercier Pape Cheikh. jërëjëf Pape kaamilu alxuraan bi tamit. lu am solo la ci sama dund. macha allah waaw donc euh, ndax. waaw lu am solo la sama dund daal macha ci gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sama turandoo bi nga xam moo ko wàcce muy Seydina Jibril macha allah voilà jërëjëf merci président Pape Djibril Fall Cheikh ne ñu ngi lay gërëm ba xibaaru maraxi waaw incha allah Pape jërëjëf ma di la jaajëfal yow itam bu baax a baax ci tenue d'antenne bi nga xam ne da koy amal saa su ne mhm. ñuy amal li nga xam ne moom moo di euh, quartier général di gërëm ñi nga xam ne ñoom laa bokk bokkaloon plateau bi di samay ay euh, naataango gërëm également Euh, Pape moom c'est mon frère parce que euh, dañ am relation bu particulière man ak moom ma koy jaajëfal bu baax a baax Pape jaajëfal euh, ki nga xam ne donc saa su ne su may ñëw ci du soxal quartier général wala soit yenn présentation yi may def da ci ànd ak man mu di Cheikh mi ngi Médina Cheikh donc il est au 76 633 34 17 76 634 633 plutôt 34 17 jaajëf Euh, donc euh, dig daje ak mbokku téléspectateurs yi ci édition yu euh, télévision Futur Média mais prochainement ci quartier général jaajëf. merci Cheikh ngoone Abdoulaye yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax. waa ñu lay delloo gërëm gi Pape vraiment di la féliciter waat parce que je pense que yow loolu rek la ñu war a def féliciter ni ngay ni ngay gérer sa émission loolu defe naa ñëpp ci ànd nangu. ñu lay ñaanal rek yàlla génn la ci bay ngay defaat yeneen euh, yeneen relevé yeneen défi amiin amiin euh, mu nekk nag ay défi wu directeur nga waxoon sànq wala bu yan ah. waaw voilà mu nekk ay défi wu directeur muy nuyuwaale beneen pape bi toog foofu di suñu suñu naataango euh, di nuyu Mado uh-huh. dama ci bëggoon yokk Mado mu sell mi ah. boo ko xoolee loolu la lay jox <laughs> ci kanam gu leer waaw kay euh, boo ko gisee lim lay njëkka may mooy euh, reetaan bi mhm. te loolu mooy day symboliser euh, jàmm mhm. Brigitte naka naka ñun noonu defe naa Brigitte moom émission am yëpp da koy da ree la ci gën a def <laughs> waaw Mamadou Ndiaye moom sama sama waay bopp la ma koy nuyu également di nuyu ba sama sama confrère bi Cheikh di ko masaw moom it li ko daloon fan yi nii Euh, Pape Djibril nekk na euh, defe naa ñi ko seetaan yëpp gis nañ ko. Mhm. mbégte bi ñu am ne ak moom si plateau bi nekkul rek ne euh, si monde média bi ñu bokk ak moom. nekkul it rek ne fii la jógee si biir kër gi dafa fekk ni ndaw la. Mhm. su ma juumul bokk na si les plus jeunes candidats. yu mu mhm. Afrique mu sa am. waaw ah candidat présidentiel c'est plus jeune. voilà donc loolu mën nga nekk ndaw ba pare ku la xool xeeb la. fekk ko ci. Mhm. defe naa ne liñ fi toog yëpp ñun boo xoolee question yu bëri jotul sax jib ndax foo ko dugg dina ñëw tontu la bëgg naat feneen. Mhm. te loolu il faut nga am benn bagage intellectuel. Mhm. pour que nga mën a mën a tenir loolu lu lu mel noonu. et ça je pense que euh, c' la plus grosse fierté bi ñu mën a am ñun tey en tant que euh, confrère. ñu am koo xamante moo ñu représenté. te yoon la nag avocat yi nañu réew mi. gis nañ euh, waa impôt domaine. jot na nag journaliste tamit di <laughs> réew mi vraiment mooy le le mal qu'on lui souhaite ñu ngi ko koy ñaanal euh, yal na yàlla leeral euh, yoonam euh, yal na ko yàlla li mu bëgg muy jël nguur gi suñu borom mën na ko yal na ko yàlla defal vraiment ñuy gërëm également ñi nga xamante ne toog nañ ba léegi duñu seetaan. ma mhm. gërëm gërëm ci it madame. Ah. waaw moom mooy sponsor. moo jàpp ci combat bi quoi moo <laughs> <laughs> madame Seck. Bah, madame oui. Fall Soda Seck. Soda sama Soda la waaw Soda Cinco Prestige. voilà waaw. <laughs> <laughs> moo ne moo ne ma li ngay yóbbu quartier général man maa koy ñëw. moom moom noonu la mel et puis daf la yàgg bëgg. voilà Soda daf la yàgg bëgg nekk taalibe borom daaru. tey rek man ak moom tudd nañ la lu bari macha allah macha allah. nuyuwaale également jàng jàngkat yi. waaw Modou Mouride vraiment li ñu fi yëkkati macha allah euh, yëkkati na kii. macha allah waaw rafet na trop. d'ailleurs moom moo na a tëj sax incha allah. mu ngoog merci beaucoup Abdoulaye et puis nuyul ñu euh, madam Diédhiou. merci ci euh, ànd beeg ñun tey ci quartier général euh, Soda Cinco Prestige moom ñu ngi koy gërëm bu baax sama jigéen la jigéenu Aba jigéenu président Pape Djibril Fall bëri na ci ay sañ si murit yu murite lool yu ñuy sol ci moom lay jógee donc ñu ngi koy ndokkeel dafa yàgg bëgg président Pape Djibril Fall yenn saa yi bu la gisee day bëgg. seet naa Pape Djibril gis naa Pape Djibril loolu la ñëw na fi loolu day doon mbégte ci moom donc du coup euh, ñu ngi koy euh, ndokkeel et di gërëm tamit Diaw Imo moom dafa bokk ci ñi nga xamante ni suñu ay projet personnel def ciy jàpp donc jaw Imo di sët ba noppi itam di taalibe ku tedd ki Serigne Touba donc nee na fi mu nekk bëgg na on a reçu tellement de message de personnes yoo xamante ni Pape Djibril Fall kese la ñuy topp waa Joal yi nag nee nañu dañ lay accueillir lundi fi mu ne ñoom ñu ngi jubilé parce que suba Thiès la ñuy def waaw suba yaa ngi Thiès boo jógee Thiès yaa ngi Joal donc waa Thiès a ngi lay xaar mais waa Joal yi ñoom surtout ak ñoom mbiru saar yi xam naa ni fi mu nekk nii ñu ngi préparé ay akar ak ñoom seen parce que dañoo mën gan. donc Joal président Mbiru Jàmbaar soxna Jàmbaar la waaw. donc euh, jigéenu euh, Pape Jean Pape Jean itam mu ngi jàpp ci liggéey bi bu baax ñu ngi ko ci gërëm. merci euh, Pape Thioune tey daanaka baptême le foot baptême de feu woon ci sa ci saison quartier général bi ak yow ñu ngi lay gërëm bu baax et puis on te retrouve très prochainement dans cette émission. Euh, mbég am nañ ci mbégte lool sax ci bokk ak yow plateau bi. Mm-hmm. très sincèrement. Mm-hmm. daan toog Thiès. Mm-hmm. doon rêvé bokk ci plateau bi. boobu ay at la ci ginnaaw. suñu borom matal ko. donc ñu ngi la ci ñu ngi la ciy béyee daal. waaw ñun dañ la sopp lool. Mm. yàgg la topp. di la ñaanal borom bi sàmm la. amiin amiin amiin yow ku baax nga. amiin amiin amiin te baax rek moo am solo sama baax dara ma baax am na tànk waaye jéggi nag dex. waaw parce boo baaxee fi nit ñi toog da ngaa baax du la fekk. Mhm, mhm. yow ku baax nga. Mhm, kontaan naa loolu yàlla xam na ko. dafa mag mu baax nag bu wax ni bu ñu la waxee xale baa ngi nër di dem. nee dawal topp ca. parce que yàlla du bàyyi ba nga nekk mag mu lay jox parce que ëpp na loolu. muy Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum. te mu am loo xam ni pape mii daf koo wax. sama turandoo. mu tënk ko ci volonté. moom la arab ba doon wax naan law kaana himmatul insaan fi suraya la nadathu mhm. mu ni yittey doomu aadama su nekkoon ci dem ba ca biddéew ba gën a sori mu yegg fa mhm. loolu ki ko wax mooy le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa mhm. yi ñi ngi dem ci kaw moo tax góor gu baax nga waxoon ni yàlla jàmm bu amul volonté gedd na la parce que day xam ne doo jëriñ sa bopp fii non seulement mais doo doo jëriñ sa bopp fële jëm te loolu gis nañ ko ci bab mii ñu ngi koy ñaanal borom bi sàmm ko. Mhm. borom bi lafal ko jot. Mhm. vraiment bu ñu demee ba bëgg métier bi. Mhm. moom moo tax moo tax macha allah moo tax ñu bari des fois di ñu di ñu di ñu méngale. koy ñaanal bu baax sama waa di di nuyu ci sa gars yi nag Madaw. ñoom bokk nekk Thiès muy jàmbaar nekk koo xam ne ci yu bari def ma ci doon taxaw. bu ko defee di nuyu sama doyen baax a baax kontaan naa doyen Abdoulaye. Euh, na ami Cheikh aussi. waaw ah. <laughs> xale yi kat dañuy magal <laughs> dañuy Oh. waaw en tout cas ñu ngi koy nuyu baax baax am mbégte bokk moom itam plateau bi di nuyu aussi ki nga xam ni mooy euh, Mamadou aussi mm-hmm. euh, di ko nuyu baax baax bijou am nañu mbégte yi tamit ah, bokk ak mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi doon topp ak foo mënti nekk ci àdduna bi ngeen di am jàmm rek ñuy mm-hmm. euh, tamit ñu ngi lay gërëm bu baax balaa ñuy dem ci Sophie bay jox Mamadou Ndiaye tàggoo tour de table bijou Ndiaye itam bay dellu ci Modou Mourine Mbaye mu tëjal ñu guddi gi laataa ñuy dellu siwaat je rappelle que Déthié Fall mooy nekk suñu invité avant rappelle parce que annoncé guma ko donc du coup <laughs> ñu xamal leen ni Déthié Fall euh, mooy nekk suñu gan bu ca kaname moom euh, bëri na ay mbir yoo xamante ni bëgg nañ ci waxtaan ak moom euh, ci quartier général dimanche soir bi affiche baa ngi noonu affiche bu ñu leen di partagel ci suñu réseau yi moo xam Facebook Instagram X ou Twitter ba ci TikTok bi am ngeen possibilité suivre ñu donc il sera notre invité ci prochain numéro quartier général tout à l'heure ou demain ça dépendra gérer notion wu <laughs> merci Madeleine. <laughs> merci Pape Cheikh comme ni ko c'est toujours un plaisir de partager le plateau ak yow ak ñi nga xamante ne ñoom la bokkal plateau bi également et puis di encourager waat bu baax le président Pape Djibril Fall. comme ni ma ko waxee rek macha allah liñ naan ragal pété day xañe wërsëg moom dafa Euh, bokk ci ñun mun naa ne ci liggéey bi ñuy bokk euh, maanaam groupe bi mu nekkoon waaye rawatina xale gi mu doon gëm boppam moom bu ma koy déglu muy wax sama xel day dem ca la woykat ba waxoon rek naan arène bu euh, mag bi moo di àddina Eh, di nga léewtoo ba tas di nga xaw ma nu mu koy waxee ba egsi ci eh, ku yooy xaju fi mhm. moom li muy tuuti tuuti tuuti mën nañ nee ni yooyam boobu àttal na réew mi mhm. kon nag yàlla na ko ko yàlla may mu yenn ko ba ñun ñëpp ñu fekkee ci te gis ci sunu njëriñ ndax lu ne mel rek wallaay mhm. macha allah eh, moom la ñu gis waaye comme ni ñu koy defee saa su ne y des gens qui nous accompagnent tout le temps ci émission bile donc ñooñu laay remercier mais di sargalaat nag sama benn waajur bu jigéen di soxna Sophia Muntaga Tall Euh, di mbokk ndeyu jaratu Fat Samb koléré aja déggéen mi ñuy jooy te noppeeguñu ci euh, borom këram bi mu ñàkk kon maa ngi koy koy masawaat bu baax di remercier nag ki nga xamante ne tey moom laa àndal ci sama lépp li ma sol donc mu di Awa euh, Baro borom Bamba Maka Size pour les bijoux bijoux bi nga xamante ne moom moo di Oryx ak bijoux Runway maa ngi ko ci remercier ak tissu bi ma jox pour la maison beauté c'est Glam by Mado comme ni ma koy waxee mm. merci à tout le ci beneen quartier général. voilà et puis je dem di suivre Facebook am ak Instagram elle a des promos yu baax pour jigéen ñi. j'ai vu benn affiche sànq bu am solo j'ose pas faire de pub mais allez voir ce que ce que Mado propose sur Instagram ak sur Facebook elle a des promos pour des pour des produits de beauté sama lamine baa ngi xasan mais dem leen ngeen abonné wu ci page am elle fait des lives et en plus de ces lives là elle a des promos pour des produits yoo xamante ni d'habitude dafay cher quoi voilà donc euh, allez allez voir ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux Ndiaye yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax yaayu xale yi. maa ngi lay gërëm Pape Cheikh eh, ci ni nga ma woowee noonu daf ma neex sax te bokk na ci point boo xamante ne euh, Marek Pape Djibril eh, gi bokk nañ ci gis-gis muy ci euh, jëmmal xale. ndaxte ñoom ñooy avenir u ëllëg donc bu ñu leen tàggatee rek def ci ñoom li wax suñu développement wu dëkk day gën a yomb te am na beneen point bi nga xam ne dañ fay rejoindre ren te mooy bu ma tukkee fu lu ma gis lu baax samay statut lépp lay posté lii kañ lay am Sénégal donc vision bi rafet na ñuy ñaan yàlla may la euh, force ak kattan nga réaliser ko et que sénégalais yi patient aussi ak candidat yëpp ndax foog naa ni ku ci ñëw rek euh, lu jëmale Sénégal kanam nga bëgg donc bu ñu xasee ba fal leen rek ñu am tuuti patience may leen ñu liggéey ça a été un plaisir bokk ak yéen plateau bi muy euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fi toog Chérif Abdoulaye Pape que je découvre aujourd'hui Mado tu es magnifique toi moom je t'aime. merci beaucoup Sophie ku na mburu poro. mon frère poro. <laughs> Sophie aussi c'est un plaisir merci ci ceeb bi. ak euh, Penda ñaar amuñu sa fay. am ñaari paa yoo xamante ni bu ñu demee ci baar bi booy ñibbi dañu boro la ñu woowoon te boro. <laughs> moom laa la jox c'est ce que tu m'as rappelé boro heures du matin la ñuy ñibbi donc merci beaucoup ca baaru ah. Boro. <laughs> te bi ñuy dugg si mon frère la ñu waxante mais bi ñuy ñibbi. boro la ñu wax <laughs> merci beaucoup équipe bi nga xam ne ñoo may jàppale chaque jour Pape Cheikh avant may ñëw dañuy wowante muy Adji Thiam Mariam Mendy. Euh, Baye Modou pour xool naka laa mun a gën a pobee rek. pour génn ci télé bi. Mm. merci beaucoup Massi Sadji Cham ak monsieur Nior pour bijoux Marianne pour tissu yu baax yi may jox Baye Modou ak coupe bi muy coupe avec tout le cœur. Mm-hmm. Adja Mbène ci make bi samay daal Touré Tchène daal numéro yëpp a ngi si sama réseaux sociaux yi. Mm-hmm. donc bu dee da ngeen ci bëgg jënd wala ngeen am ci wala ngeen bëgg a xool sax li xew fii dugg leen si réseaux sociaux yëpp donc ba ci kanam Pape Cheikh. voilà man boo tuddee Marianne rek sama xel dem ci euh, Nabou Bathily voilà ñu ngi koy gërëm bu baax quoi borom décoration ah les les les tapis de chez moi sont de. sont de chez chez Nabou ah. gis naa yi ñuy def <laughs> dama lay gunge. il faut ñu dem fa abe ben mënul ñàkk ah. mag lu mu def yàlla baal ko ko mag buur la Mamadou Ndiaye ñu ngi lay gërëm yow tamit bu baax na bu Nabou Bathily merci ak équipe yu Déco Rasoul par contre waxaguma leen euh, offre yi nga xamante ni Promobile daf leen ko jagleel mais dinaa ci ñëw xam naa suba bu soobee yàlla regardez tout ça c'est des offres yoo xamante ni am na solo te Promobile suñu yëf la. voilà Lipro Mobile jagleel sénégalais yi dina ko détailler euh, incha allah ci euh, prochain quartier général bi donc merci à euh, Pro Mobile merci u Ndiaye. merci beaucoup Pape Cheikh. merci <laughs> beaucoup euh, aux internautes euh, ak téléspectateurs yi ñu doon suivre partout mën nañu wax dans le monde. jaajëfal leen jaajëfal bu baax suñu invité président Pape Djibril di ko jaajëfal il a du mérite vraiment te man toujours mbégte laay am di ko gis. ci euh, au devant la scène politique muy euh, défendre ay idéem mu nekk ndaw ndax d'habitude euh, ci politiciens yi dañu fa am benn tranche boo xam ne ñoom la ñu daan gis rawatina mu am nekk ndaw. Hmm, mais réew mi xale yeeg moom léegi de lu nag. Hmm. ba ba léegi nekk ci koo xamante ni day xëccoo ngi mbirum njiitum réew mi. mu nekk loo xamante ni fierté la. Hmm. ñaari fierté la fierté la ci ndaw gi mu doon mais fierté la mu nekk ci koo xamante ni dañuy suñu collègue la woon. loolu tamit mbégte la vraiment te dama koy wax saa su ne di ko jaajëfal di ko gën a ñaanal yàlla yàlla gën a dëgëral euh, li mu li mu mbébét li mbébétam ci Sénégal yàlla mottali ko jaajëfal ko bu baax a baax encore une fois jaajëfal sama eh, sama yi ma nekk loon fii Pape jaajëf euh, sama Cheikh grand jeeju euh, di ko jaajëfal bu baax ak ñi nga xamante ni ñooy jàngkat yi eh, Pape ba ci ba ci kanam doyen Pape kay doyee laa am benn problème. <laughs> Tipi Style numéro téléphone 77 731 87 60. mooy moo moo fi fii comme d'habitude. comme ni ñu koy defee mi ngi HLM Grand Yoff. en mhm. face euh, école bilingue jaajëf. merci doyen Pape. Fiso merci. <laughs> moom laa wax Cheikh Cheikh Ngone léegi nii damaa def télé ba fi mu ne léegi toogaay bi du ma ko mën kon xanaa yàgg ci télé Cheikh Ngone ah. léegi damay ay njëgënaay ak lu ne lañ may tegal te ya bi premier quartier général bi rappelez-vous il y a neuf ans j'étais comme ça. début ba feew émission mais léegi ay naa lañ may tegal may tàggoo naan Sophie ñu ngi lay gërëm. <laughs> je commence droit mais su may tàggatoo damay weng. mais téléspectateurs yi ba tey dañuy bëgg di la gis. ah garaawul amul problème doyee laa léegi ne nii moom mag Mansour Mbaye kif kif. <laughs> man kay xam naa ni moom qui va prendre le fauteuil là d'ici l'année prochaine c'est la question qu'on doit se poser maintenant <laughs> merci Sophie. merci merci ah oui xaaral muy xaar xaaral Pape Pape remercier ki ko habillé waaw. non non non loolu mënul ñàkk. waaw mi ngi noonu muy muy Pape Shop. Uh-huh. numéro mi ngi nekk ba Thiès di 77 842 92 mi ngi noonu 842 92 54 Pape Shop. Pape Shop merci beaucoup jërëjëf kon kay di nga xam ni di nga tax nit ñi di jógee Dakar di ñaw lu ji rek. Ah, waaw waaw yi affaire koy def. Pape ñu ngi koy gërëm bu baax Diallo sama classe de guerre nga. wallaay maa la wax loolu. tàggatoo <laughs> mi ngi noonu Baye Cheikh kontaan noonu rek ci ànd ak yéen ci plateau bu tey bii di sant yàlla bu baax boobu ñu may ñu fekkee ba jeexal ci jàmm ak salaam euh, Baye Cheikh di euh, ñaanal bu baax rek euh, président Pape Djibril yàlla na ko yàlla may ndam yokk ko rek ba mu yëg ko incha allah Baye Cheikh jaajëfal rek suñu partenaires yi nga xamante ne aussi dañuy accompagner fii suñu biir waañ agroline tomate linguère sucria Sénico warga Flesia ak diwlin Kadi ak ak waa la vache qui rit am nañu nag so sosa resto aussi daf ñuy accompagner fii suñu biir waañ euh, daara ci saucisse bu mucc ayib bi yëlitaare soow yi meilleur ñoo koy defar euh, Dekakila naka Baye Cheikh du ma jug di ko wax électroménager yi baax yi gën yi mucc ayib ñoom ñoo ñu koy andil euh, waa savon soxna mati ñi nga xamante ni dañuy yëngu tamit ci agroalimentaire ñoom it dañuy accompagner fii suñu biir waañ xel comme pizza ñoom it seen adresse ñëpp xam nañ ko ñu ngi maris HLM ak fële ci cité euh, cité douane Baye Cheikh NMA Sanders ñoom tam dañuy accompagner euh, waa COSIDI euh, ñoom it dañuy accompagner bu baax a baax ci li nga xamante ne ni mooy meew bi di meewu Laliya poulet teral sédiment ku ne xam nga ko ginaar yi nga xamante ne ni Baye Cheikh mucc ayib. am gu neex a toggee neex a euh, préparé Baye Cheikh waa sédiment ñoo ñu koy andil Baye Cheikh du ñu def rek lu dul jox leen dig daje ci kanam tuuti la ñuy wax rek ci beneen recette boo xamante ne di ngeen ko mën a reprendre seen biir kër soit mu doon xëdd wala ndogu ngeen mën ko reprendre nag euh, tous les détails dañ leen koy won fii euh, ci sunu biir wàññ Baye Cheikh léegi nag damay souhaiter rek joyeux anniversaire à Tata Dabagna depuis cité euh, Batos moom it Ibrahima moo ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire di remercier rek Fatou Djimé ci tenue yi nga xamante ne ni dama koy faral di sol mais nag tey sama yaayu bopp moo ma jox tenue bi mooy sama goro yaa Astou Diop maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di leen jox di daje ci kanam ci beneen recette Diallo Diéry mu ngoog merci et di gërëm suñu gars yi nekk euh, euh, Paris dama fa am benn gang. gang gang gang gang <laughs> gang gang entertainment <laughs> donc ñoom maa ngi leen di béggee bu baax ñoom Cheikh Mbacké tout sama gars yëpp ñu ngi leen di béggee 18e euh, ñu ngi leen di ñu ngi leen di béggee bu baax Ndey Der Der la science Jamila. Euh, euh, voilà ñu ngi leen di ñu ngi leen di béggee bu baax xadiloo xadiloo moom sama jigéenu bopp la borom restaurant bu mag boobu la nekk ca Paris Awa Yafa ñoom ñëpp ñu ngi euh, ñu ngi leen di béggee bu baax et puis Liba Silla photographe ak ñi mu àndal ñëpp merci gis naa ne yaa ngi daw rek sànq ba tey pour président Pape Djibril Fall yow ñoo bokk benn papa Libas ñu ngi lay béggee bu baax Ndiaga Fall aussi ça si moom petit frère moom tamit euh, ñu ngi koy ziar bu baax Marème Ndiaye Gawlo nabiyen la mais sànq ba tey mu ngi seetaan euh, émission bi ñu kontaan lool ci moom euh, Modou Mourid mbay yow la ñuy bàyyi nga tëjal ñu jotaay bi toogaay bi yàgg na waaye ci émission bi la bokk nga toog ko ak ñi nga àndal ci yar waaye ci wane ak sa taalibe ngir wane encore ni cofeel gi defe naa am na ci sa diggante ak sénégalais yu bëri kàdduy cant lañ lay bàyyi nga jébbal ñu ko bu ko defee juste après nga tëjal ñu jotaay bi comme ni nga ko ibbee woon. waaw kay jërëjëf alhamdulilahi rabil alamin mhm. ginnaaw tàmbali na liggéey bi ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin mhm. di santaat bu baax a baax kilifa kër gi di ñaan suñu boroom guddalu fanam di siyaare bu baax nag Pape Djibril mhm. euh, sa discours bi wax dëgg yàlla jàpp nañu bari jànkat yi ba ci ñoom jàpp na leen lool ndax ñun ay donga Euh, te it gis nañ sa suñu bopp ci discours bi nga def kon ñoo lay bàyyi xel te di la ñaanal di ñaan ci darajey sëriñ Touba rek sëriñ Touba bi nga xam moo mën a maye tey tibbale mu tibbal la jox la réew mi comme ni nga ko bëggee euh, di nuyu Pape Cheikh di la bëggee bu baax na ma la ko waxee woon man sëñ Fallou rek laa bëgg mhm. te gis naa ni nga mel ci moom mhm. sànq maa ngi koy wax gaa yi ko defee ñoo ngi lay ñaanal ci darajey sëñ Touba yàlla wéral la guddal saw fan. li ngay def saf na ñëpp nee naa leen léegi Pape Cheikh amul noonu ndax day kaf di ree yaatu di nuyu ñëpp ñi ci plateau bi di nuyu nag euh, Père Diaw bu Malick Gakou moom sama baay la sama xarit la gis ma rek yéene ma mhm. lépp lu mu gis lu baax bu sañoon man maa ko yam mhm. waaw kon sëñ naa lim jaw maa ngi lay nuyu baax di nuyu waa Géejawaay gi ma jógee mhm. nga xam ni ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek bëggoon ngaa gis sañ Modou Mouride Mbaye quartier général waaye di sant sama yaay yi nga xam ni euh, soxna Aminata Dieng di ñaan suñu borom guddalu fanam sëñ max ma Mahmadan Mbàkke ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu sëñ Tawalo sëñ Mor Bey di sonn ci man waaye di nuyu baax soxna mu Mbàkke wala dégg ko di sama xarit di ma jàppale di sama jigéen ak képp kuy jàppale sëñ Modou Mouride mbay di ñaanal sama way jur bi nga xam ne bi mu fi jógee léegi ma tëgul weer di sëriñ Mouride mbay nooru daara yi nii suñu borom gën a yokk ay leeram ci barkeb xasida yi di ziare ñi nga xam ne maa ñoo ma ànd nga xam ni sëriñ Tuubaa boole man ak ñoom kenn ku ci nekk saa yu may jóg rek su ma la nee jógal doo ci teg baat te kenn ku ci nekk lii ma ko mën a nii noonu nga koy defee mhm. kon noo ngi leen di sant di leen gërëm mhm. bu ko defee di sant diaspora fu waay mën a nekk gis nañ message yi mhm. ak yëpp bu ko defee sëñ Pape Cheikh nu woy sëñ Fallu bégale ko képp ku bëgg sëñ Fallu jeex na waaye rawatina na kon di ko yàlla def ku mu neexul yaay ki réere yaareere baayu mbeen galaso ni ko ku mu neexul bul yaa ngi reere yaa ngi reere reere baay mbel nga baay ko yàlla def ku mu neexul la soo kumu neexul yaay ki reere yaay ki reere yaa reere baayu mbeel gala soo baayu falliloo bismillahi tay ma way seex fallu laayi fallu nga ne lu yàlla la man bëgg naa la bismillahi waaw fallu laayi eh, fallu nga ne fàllil loo bëri ay may bëri ay ndam bëri sañ-sañ loo ma wax sa def na loola namun dara bagun dara